Aïcha dalati leen jàmm ci kër gi ngeen xam ne du jóg mukk di gën di nekk seen wet muy seen web maa ngi leen fii nuyooti di leen ziar di leen baalu àq di leen wax ne mbégte koor na ñu ñëwaat ci beneen numéro bu bees ak euh, gars xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi yëpp comme ko baaxoo saa yi ñu ndogoo ba ne rek ndogu ngeen yéen ñëpp ci jàmm ba ba suur ñengeen yeeg faaleen yeeg mbéngeen yi ak jengeen yi euh, maa ngi leen di ziar bu baax a baax xam naa ne fi mu toll nii ñoom kenn ku nekk si ñoom mënatul dara euh, mbégte koor nag comme ni ngeen ko xamee saa su ne dañuy ñëw ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy Euh, xibaar yu ñeel lii nga xam ne moom mooy koor gi war koo dooreek ak ki nga xamante ne nii moom mooy euh, Aïcha Thiam soxna Aïcha maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di bàyyi rek nga nuyoonteeg mbokku taalibe yi xaar li nga xam ne moom mooy info ramadan salaamaaleykum rahmatulah Ameth nuyu naa la nuyu également ñi ma bokkal plateau bi di nuyu suñu gan gu màgg gi euh, teew fi tey ci Mbecté Koor den wax euh, Mbecté Koor euh, tàmbaleeti na ci beneen numéro de la semaine ci kanam tuuti incha allah ma dëgg ma leen li nga xamante ni mooy info koor gi maanaam ràq naa fi lay ak li nga xamante ni mooy heure ndogu beeg heure xëdd bi ci kanam tuuti la incha allah. ay sa soxna Aïssa ko ki nga xamante ne ni boobu ba léegi yéen a ngi koy laajte. Eh, tey nag ñëw na muy oustaz Abdoulaye war a bokk ak ñun li nga xam ne moom mooy jotaayu waxtaan eh, guddi gi àjjuma ji dama koy bàyyi rek eh, oustaz nga daal di nuyu mbokku taalibe bokk mbokku jullit yi wax leen tey ban ponk nga nar a waxtaanee. waaw Mouhamed ñu ngi lay ziar baax di ziar ñi nga xamante ñoom lañ bokk ak plateau bi fa tabarakallahu di wax ni namoon nañ ñi nga xamante ñoom mooy auditeurs yi nga xamante ñooñu bàyyi xel ci waxtu yi wax dëgg yàlla di leen baalu xàq nag ci weer bu màgg bi di leen baalu xàq di wax yàlla nañ yàlla boole loo xamante ni jaamu nañ ko yàlla ci bis ko yàlla nangul ah xanaa di waxtaane mooy njëkk yi rek mooy yërmande mhm. ndax wa rahmatullahi kullal xalqi rek xad waasia ndax dañu ne yërmande yàlla mu waat nu yaat nu ci ku ne moo xam ko lu jullit kon fa tabarakallahu yërmande googu incha allah ci li ñuy dugg mooy doomu taala ci kanam merci beaucoup oustaz Abdoulaye kon ci kanam tuuti ñu waxtaane li nga xam ne moom mooy euh, yërmande borom bi subhanahu wa taala yaatu lool euh, romb li nga xamante moom mooy géej maamulaan ramadan de Euh, bokk na ci li nga xam ne ñu ngi doon laajte dina amam du am effectivement dina am ki nga xamante ne nii moo ko euh, gàccoo di Absa Anne moom it mu ngi ci plateau bi soxna Absa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di la ziar di ziar ni nekk ci plateau bi waaye itam di déwénati mbokk internet yi di leen baalu àq bu baax a baax defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal le ramadan de euh, ñëwaat na ren ji bu si kanamee tuuti amet ñu doxantu ba marché Castor ñëwaat. ayca merci beaucoup ca kanam tuuti ñu ànd ak sa Anne ci ramadan de euh, Mouhamed jàllo moom tamit exceptionnellement tey ñëw na ci bés bi ànd ak xam naa xaritam Oustaz Abdoulaye moo tax mu ñëw euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mouhamed di la dalal jàmm ci plateau Mbégte Koor gi. waaw Ameth maa ngi lay ziar bu baax euh, di la sant di la di nuyu euh, waa plateau bi ak euh, ñi nuy teewlu di ziar bu baax <laughs> Oustaz Abdou Lo xaritu kennal yàlla <laughs> ñu koy jaar bu baax di nuyoo di am mbégte lool teew si mbégte Koromen bi. ayca merci beaucoup kennal sax xam naa du ñàkk dina fi jaar parce que. moo ñu ko tàmbal dinañ dinañ ko indiwaat leen mu ànd ak ñun. tey nag ki ñu daral ci ganu mbégte koor muy Dame Mbodj moom kenn dootu ko présenté Sénégalais yi ku ñu ràññee la ci li nga xamante ne nii moom mooy euh, askan wi mais également ci biir seen Seneweb ndax tàmm nañ di bokk ak moom jotaay yi daaw sax moo tijji woon li nga xam ne moom mooy mbégte koor mais ren dañ na ko kaay tijji mu bañ xaw ma lu ko waral dama koy bàyyi mu nuyoo ak gars yi ba ci kanam xam naa situation bi ak actualité bi ni mu demee woon moo taxoon mu bëggoon a layam layam yi mais gannaaw baal nañ la ko daam maa ngi lay nuyu très ravissant. maa ngi lay fay Ahmed euh, di am mbégte wax dëgg yàlla ñëw teew ci sa émission. Euh, ànd ak euh, chroniqueur yi fi nekk yëpp nga xam ne ñoom ñëpp ku ñu moom miin lañ euh, di nuy rek oustaz moom it mi nar bokk ñun waxtaan wi di wax ni effectivement daaw effectivement ni nga ma koy fàttali léegi man mii maa ubbi woon mbégte koor te jàpp naa ni jigoon naa leen ndaxte émission boo lancé mu am succès bi mu am daaw Euh, macha allah kon ren am nañ yaakaar que nawoon fa woon. Euh, am nañ yaakaar ci ni fii ba xëy na trois heures du matin incha allah euh, ñi ñuy seetaan du ñu ennuyé wu. parce que ñun dañu jàpp ni réew bi nag lu luñ ciy wax dañ koy wax ci suñu akulaay taala kon ñu koy waxee. man sama style mooy du ma samay wax du ci leb duma ci fay bor damay wax li ma gëm. ku ci nekk foo mu mën a féetaleet say xalaati bopp la waaye daal man noonu laay doxale sama àdduna eh, jàpp na rek réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk nañ ko teg ci dëgg bu ko defee réew mi jëm ca kanam donc maa ngi leen di sant bu baax a baax di am yaakaar ni wax dëgg yàlla daal dinañ def émission bu mucc ayib. bu yeboo kon ngeen defaraat seen toogaay yi ndax daam mu ngi naan ba trois heures du matin waaye xalaat naa ak moom boo otul fi la ñuy xëddee <laughs> donc damay bàyyi euh, le tonitirian Mandione Aidara moom tamit mu daal di nuyoo moom mi nga xam ne moom mooy indi gan yu am solo yi euh, ci kër gi comme ni ngeen ko ko xàmmee ma bàyyi la rek nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Mbecté Koor. jërëjëf Mouhamed Ndoye aouzu billahi minal seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi nga xam te nii nuyu nañ mbokk taalibe yi ak mbokki jullit yi nga xam te nii ñoom ñoo ñoo safoo du bàyyi xel ñu ngi amati mbégte gu mag a mag rek di bokk ci jootaay bi nga xam te ni jootaay bu am am solo la ginnaaw bi nga xam te ni nuyu naa ñoo ma bokkal plateau bi ainsi que suñu gan gi nga xam te ni moom si saa suñ ko woowee rek dina bàyyi lépp daal di ñëw teew donc di leen jox dig daje rek ci kanam tuuti incha allah ñu ñëw yaatal ak ki nga xam te ne moom moo nekk ganok tey Mouhamed Ndoye aca ah, merci beaucoup Mañoon Aydara di leen rek li nga xam ne moom mooy ndogu askan wi ah, tey ah, comme ni ngeen ko tàmmee nga Ngom ca kanam tuuti dinañ am aussi li nga xam ne moom mooy rinkumu Babacar yi gannaaw bu oustaz noppee rek Babacar Kebe dina ñëw ci plateau bi indil ñu ñaari ponk rinkum yi nga xam ne moom la baaxoo indi ko ci waxtaanu mbégte koor bi la waaye laataa loolu lépp dañuy fekk ji Euh, Makhtar Sarr ca studio religion ba mu daal di ñëw waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy xadis du jour ñu daal di dellu si dugg ci waxtaan bi bu baax a baax jaa ngeen jëf dal leen jàmm billahi alalim min ashaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi nañ ci xadis du jour xadisu tey bi mbokk yi day wax ci mbir mu doy waar mbir mu tasaaroo te mbir muy jur merum yàlla di jur gàtt fan di jur wërsëg wu yàqu di jur mbugalum bàmmeel di jur xisaab muy audit bu tar yowmal qiyaam di jur merum yàlla di jur dugg safara xanaa mbokk yi mbir mi raglu na mat na moytu mbir moomu moy man mooy njaaloo xadis bi mbokk yi ci njaaloo lay wax di ko wattandikuloo hadis la bu ñëw ci riwaaye yu bari benn bi ahmad ko solo ci wéeruwaay bu rafet yenent bi ne laa tazaalu ummati bi xayrin maa lam yafshu fihim addina fa isa fasha fihim addina fa awshaka an yaumahum allahu bi adabin sama xeet duñ duñu dëñ di nekk ci sécurité dal jàmm feeg njaaloo tasaarowul ci seen biir waaye ba su njaaloo tasaaroo ci seen biir ñu jox jigéen ña carte ñuy jaay seen bopp auberge ya bari ñu fay njaaloo hôtel ya bari ñu fay njaaloo apartement yu ñu meublé ya bari ñu fay njaaloo mu ne musiba mën naa këpp ci seen kaw riwaaye benn bi loolu la wax bu abu ala ne laa tazaalu ummati bi xayrin mutamasikun amruha maa lam yadhar fihim waladu zina sama waxeet duñu deñ di nekk ci jàmm seen mbir ñu yoral ko seen bopp fekk ay doomu njaaloo tasaaroo wuñu ci seen biir fekk ay doomu njaaloo tasaaroo wuñu ci seen biir nee na su boobaa nag seen mbir yi dootuñ ko téyelati seen bopp ñeneen ay ñëw yor seeni mbir nañ xool sunu bopp ci Sénégal buñ demee ba naan waaw Occident yi léegi suñ lépp ñoom lañ ko jox mbaa yi nañu njaaloo doomu njaaloo yi tasaaroo ci dëkk bi mbaa loolu éviter nañ ko yenent bi nee na seen mbir du dañ ngeen koy yoral seen bopp fekk doomu njaaloo tasaaroowul ci seen biir riwaaye bu Abu Yaala bu bazaar ne ida dahara zina dahara al faqru wal maskana bis bu njaaloo fesee ñàkk day tasaaroo ci seen biir ak yi laaj ñàkk ba amatoo sago dem di laaj day dangeen ngeen di bëri yalwaankat <laughs> su njaaloo tasaaroo ci seen biir da ngeen di bëri yalwaankat ay miskin Sénégal am nañ ci doyal abu yaala ci wéeruwaay bu rafet ne ma dahara fi qawmin zina wala war riba illa ahallu bi anfusihim adab allah ñaar yii bu tasaaroo ci population ñi ngi wootal mbugalum yàlla këpp ci seen kaw ñaar yooyu mooy yan mooy njaaloo ak riba Sénégal nag am na ñaar yooyu ba doyal banque yaa ngi fi ne danañ ci dikk ci hadis yi di ñëw incha allah mooy ko gis mu naan pere pere pere pere nag moom doo mas a pare waaw doo mas a pare def naa pere man la doo ma sa pare doo ma sa pare dem ci banque yi ñu lebal la un million fayeeku la un million cent riba mbugalum yàlla gu tasaaroo mbugalum yàlla tey ñu baree baree baree bari li tax nangootuñoo sëy njaaloo gu yomb gi rek la waaye bu jigéen ñëpp takkoon seen sër góor ñëpp takk seen tubéy léegi alxayr yi bari léegi sax ñenn ñi waxuma njaaloo ci bi di sëy mais da nga gis sax ku nekk ci biir sëy di njaaloo am nga soxna ba ko fi dem di njaaloo ci am sa borom kër am far di njaaloo yenent bi nee na loolu population bu mu bari kenn mënul fexe ba population mu développé Sénégal dañ ñaan dañoo bëgg émergent mu développé ak jëm kanam ak pétrole beeg gaz beeg yooyu yëpp mooy yi feeñ mais yi nëbbu ba tax pétrole bi ñu jëfandikoo ko gaz bi ñu jëfandikoo ko mooy wala anna ahlal qura amanu wa nu la fatahna alayhim barakatin min asamaai wal ardi walakin kadabu fa axadnahum bi ma kaanu yaksibuun suñu bëggee gaz beeg pétrole beeg zircon beeg yooyu ñu jëriñoo ko day fekk ñu déggal yàlla te déggal yàlla bokk na ci ñu bàyyi njaaloo waaye léegi ñeen ñi njaaloo dem ci frigo bi ubbi naan la ñu yemale naanoog na njaaloog euh, defar doos naan kafe moom la ñu pour ñoom loolu nag du dara wax ngaa ndaw si juba ngeen ngeen njaaloo waa ji bëgg nga ko jox ko sa bopp yooyu du dara te aka bon aka yées aka xaraam akay jur mbëggalum yàlla njaaloo day tax taar boo amoon nga ñàkk ko wërsëg boo amoon nga ñàkk ko day waral gàtt fan day waral mbugalum bàmmeel day waral xisaab bu tar ëllëg yomal xiyaam day waral sax ci safara day waral merum yàlla yi yépp njaaloo daf koy jur te ñu bari léegi defuñ ko mu nekk dara bànneex boo xam ne nag ay minute la mu jural la sax ci safara dara jaru ko xadiisu tey bi mbokk yi loolu la leen loolu la doon indi di jaa ñu jaajëfal leen ci seetaan bi ba beneen yoon ci beneen xadiis wasalaam ayca merci beaucoup oustaz Makhtar Sarr mi doon waxtaane ponk bu am solo boobu laataa may jox dàmbooj mu réagir si damay njëkk a jox oustaz Abdoulou euh, ci li nga xam ne moom mooy waxtaanu njaalo euh, ak conséquence yu mën a indi ci askanu lëmm yow lan nga ko gisee waaw Mohamed di jaaraat oustaz Makhtar fa tabarakallahu di indi na ponk bu am solo te mu bëri Sénégal loolu nag mooy baatu njaaloo ndax yaakaar naa ni yàlla bu ne ci alxuraan laa taqrabu zina waxul sax bul bul dem di njaaloo waaye bul jege ku la ne bul jege waxul bul laal. Mhm. te oustaz foofu koy wax ci olof lu bëri parce que gars yi bëri dañoo yaakaar ne zina bonbon bii lañ leen tere. <laughs> njaaloo bëri. ngeen koy wax ci olof lu bari parce que gars yi laa taqrabu zina ñu yaakaar ne zina gi la dem jënd préservatif ba mu am rupture. <laughs> loolu yàlla fii Sénégal gii. ah Sénégal daan dafa nekk réew moo xam ne neexut a waxe nag. waaye comme ni ko oustaz waxee rek di nga njaaloo bëri na lépp loo xamante ni dëkk bu la gën a dellu gannaaw rek njaaloo moo dàq dëkk bu ëpp crise rek moo dàq njaaloo te njaaloo moo gën a bon ci àdduna di nga njaaloo dafay rey xol njaaloo dafay rey xol li yàlla naan kallaa baraana ala qulubihim maa kaanu yaksibun koo xamante ni dootu bu bu dee ba di njaaloo yéen sarasan ñu ne xol si doomu aadama dafay mel ni papier blanc boo xamante dafay weex tàll mais saa bu njaaloo rek dafay am benn toq toq boo xamante day toq ci kii ci papier bi. mel ni daa lañ ci. daa mu ngoog comme daa mu ngoog misaal léegi saa boo toq di ko toq ba gisatoo ci fooy bi nee na xol bi noonu lay dem ba ñuul kukk bu ko defee xol boobu dootul fàggatu leer. Hmm. te njaaloo tamit dafay dafay waral gàtt fan. njaaloo day wàññi wërsëg foo fekk njaaloo ko dafay ñaw. <laughs> foo fekk jaarukat dafay ñaaw non sérieux sama xel dem na ci yu bari. doo am da ngay gàtt fan da ngay ñaaw. oustaz li ngay wax nii c'est dangereux. non sérieux gisoo am na lu mu wax nee na xelam dem na ci. dem na ci ñu bari ñu may gis ci télévision yi. xamante ni bii macha allah ñaaw rek. mu jàpp ni peut-être li nga wax la taxaraw. oustaz Oh. non ñaaw ñaaw ñaaw bi la lay déggee si ñaaw bi. Hmm. ñaaw bi waaw peut être xanaa sa kanam. maanaam. sa kanam hmm. ñaaw bi daal di ko bu fekkee ci kanam kese moom. dina boo. doo ñaaw bu bu mooy ñaaw jukku. ah d' accord ok. Hmm. waaye kanam bi tamit du am leer. da ngay xool kanam gi boo doon xoolee rek yàlla day déformer seen kanam comme bafoo. te na souvent alam xurtuñ. lañ waxoon nga xam ne waa ju doon xas ki nga xam benn yënati. yàlla ne naa leen wax waa jooju. yenente bi wax salaay salaam danaa doon ko décortiquer ba xam mooy waaj kan ñoo waaj boo xoolee ko ñaaw la mm-hmm. mu ne nan nga xamee ak ñaaw ñoo yàlla kon ñu ñaaw ñu nga bind ñu ñaaw bëri na torop mu ne boo xoolee bakkan bi comme bakkan baa xuux mm-hmm. sa nasimu alal xurtum inna balaw naa kama balaw naa ko njaalookat foo ko fekk du am benn leer wa man lam yaj'al Allahu nuuran famaa lahu min nuur koo xamante ne yàlla ci leeru yàlla mënu cee tànk doo am benn leer fu jëlee leer njaalookat foo ko fekk xol bi dafay gaaw wow du ndax lu tax la fa nga xamante ne moo waroon branché su xol yi muy yërmande gi ci boppam dafa bàkkaar gi moo fa branché wu ndax yàlla ci yërmande lay toog te ala bi zikrillahi tatma'inul qulub njaalu nga foo ko fekk xel ma du daal koo gis mu dem njaalu benn xale wala mu moo xam jigéen wala mu góor bu toogee xel mi dootul daal day naan ah xale bi ma ëmbut naan nangam dalu ko naan mhm. du te bu xëyee bu fanaanoo njaalu saa bu xëyee ñaan yu taxaw day yaakaar ci moom lañ nekk hmm. moo lu danger la. te nag luy njaalo. te nag <laughs> man njaalo laa bëggoon a xam moom. te li gën a mooy yaa ngi loo xamante ni nag yàlla su loo yaa loo xamante ni lu gën a loo xamante ni dafa am solo ci doomu aadama mooy lan man yu. Hmm. da koy sànni daal. nga koy sànni ci àll bi. koo xamante ni li ñu produit mu génne doom doom joo xam war a amal askan bi njariñ amal diine ji njariñ wala xeexal diine ji taxaw nga ñëw tuur ko ci àll bi loolay mbalu. kon doom yi sànni ci mbedd bëri na de oustaz. waaw te loolu lépp dañ koy rek naa ah. non dañ koy bu ñu demee yoonu xam yàlla tayul yàlla tayalul te yàkkamtiwul. amul baale. at ani min allah wala ajalatu min shaytan yàlla yàkkamtiwul dara dara dara dara ñun ñoo am problème. ndax yow maa ngi am géej kala faa traversé di nga versé. te li gën a garaaw mooy njaaloo bu fekkee yow mi ngay def. Hmm. waxuma la yow ki nga koy defar sax. mais fa nga koy defee bërëb boobu si boppam daan taxu seede hmm. yow mi isultu xam ni su yàlla ci alquran fa nga bi koy defee hmm. moo tax bëri na suuf soo suuf yoo xamante ne hmm. buñ nee yow ma xam nañ taxaw di seedeel ne ay nit naan na bërëb nangam ànd ak diw sàngam yàlla ne waaw gaa nga taxaw na waaw yàlla man fu ma ko defee waaye yàlla loolu mënta ne man ko suuf si daf mooy tuumaal yàlla ne <laughs> kon de alaxira bu suuf ah. ñu ne mooy faar ni ngay toogee ci plateau bi di soxla benn élément ne Mzito jox ma ko yàlla noonu la koy joxe day bés bu mu tam jox la ko nga ne fang. am na réalisateur moo tax gis nga àdduna àdduna moo tax mag ñi dañoo baax te yaru mhm. lépp lu mën a xew dañuy ñaan yàlla yàlla may mu jug rafet. Mhm. ak lépp lu ci loo mën a ne ndax yàlla ku baax la ndax moom laa moom laa wax sànq ba muy tijji léegi. wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasia min faajiri wa mudiin zahiri baadi jono yërmande yàlla. xaju na ci bu ko dul julit kon xaa koy jullit xelam war naa dal lii yéen saa sana wax ci xadis na ndax am Abu Lahab mi nga xam ne moo ma gën a bañ te keroog bi nga xamante ni dee ñu war koo di ko rey bañ ko tiimee waa ñu koy dokkal dogal da koy naan waaw yow lan ngay wax sa kàddu gu mujj mu ne boo nee Muhammad moom laa gën a bañ tey mu ne ndegam kooku altine ci boppam sax altine ñu féexal ko génne ko ci àdduna euh, ci safara muy doxantu tuuti di zonge comme ni nga ndegam koo xamante ni mus naa sopp sang bi benn yoon. est-ce que kon nag ñun mën nañu am sens ci loolu. mais loolu lu ko ñaan mooy da ngay ñaan yàlla sutura. Mhm. ustur la naa bi sitrikal jamil fi diini wa dunya bi la taasir. Mhm. comme ni ko maam Cheikh El Hadj Mal daan defee ci rawat euh, ci ay lawraadam. Mhm. Mohamed. njaalu daal mu ngi noonu. njaalu baaxut njaaloo du yees mooy lan dem tuubaat ndax atta ibuna li zanbi kama la zanba ku def jéggalu yàlla neen ah comme reconnaître na rek mën naa ko baal. waaye sax sa bon. jërëjëf yàlla yàlla nañ ci yàlla musal nag. amiin amiin ci kanam tuuti dinañ ñëw ci yërmande gi parce que comme wax nañ gaa yi duma yi ak li leen di xaar ci kanam tuuti dinañ ñëw ci ci yërmande gi euh, damay bàyyi dàmbooj rek nga réagir par rapport ak li nga xamante ne nii moom la ñaari ustaas yi waxtaane léegi ak conséquence yi nga xam ne dafa koy def ci ab population surtout économiquement. macha allah euh, ñaari ustaas yi d' abord maa ngi ciy profité di nuyu euh, ustaas Mokhtar Sarr nga xam ne dañuy bokk. ay kuréel yu bëri surtout ànd sàmm jiko yi euh, moom mooy vice président bi topp ci kër Mboup man ma bokk ci euh, comité de pilotage bi euh, ci ñiy coordonné ànd sàmm jikko yi ak Cheikh Omar Diagne mi tey nga xam ne nekkoon na ci mais fan yee ñu génn ci la tekkoon ndombay tànkam mais ñun ñii dañoo seq lu ne mm-hmm. léegi rek ba la may yegg si laa waxtaan ak kër Mboup ci sujet bu am solo ak lu ma doon dénk ci biir ànd sàmm jikko yi lañu war a doxal ndaxte ñun tout temps ñu ngi dox ci suuf yu bari ci réew mi man damay wax toujours ni usaas yi di den di jonjanteeg ñoom am na solo ndaxte dañ lay yee ci lu bari euh, fi ñu dugg tey nag lu ama am solo la ndaxte réew boo bëggee defar waa réew ma da ngay defar jikko yi te comme njaaloo dafa bokk ci li nga xam ni bokk na ci jikko yi nga xam ni euh, ku ko yore dootoo yore màndargay nit ku sell kon ñoom buñ nee nit ñi nañ ko moytu euh, loolu bëgg askan yu baax moo tax ndaxte képp ku lay parce que dañuy wax ni yàlla subhaanahu wa lim ñuy tere ak lim ñuy digal yépp moo gën ci ñun amul lum ñuy tere wala lum ñuy def loo loo xam ne dañ ci ay loru parce njaaloo Euh, comme ni mu ko waxee bu nee sànq doo doo da ngay ñaaw ñu bëri dañuy defal niñ la jëmme parce que Sénégal ñun leen jàppe ñaaw mooy jëmm ji boo ko xoolee mu ñaaw loolu yow sa xalaat la parce que ku ñaaw ak ku rafet kooku ci bu dee ci jëmm ji rek ngay wax kooku yow dañ ci ci yow sa gis la la dépendre ci regard bi man ngaa gis nit mu takk soxna nga ne soxnaam si daa ñaaw fekk moom daa jàpp ne moom miss àdduna la takk mm. kon ñaaw ji du jël du jëmm ji la ñuy wax mais nit koo xam ne dafa lëndëm parce que njaaloo day day day day dindi leer di indi lëndëm comme ni ko oustaz si di waxee kon lëndëm googu day tax yow doo leer maanaam ñu xool la rek sopp la ndax leer gi na ci yow leer googu nag dafa am solo ci ab jullit parce que yu bëri ci jaamu yàlla da koy joxe ñoom ñii xam nañ parce que am nañ xam ba xam ne dañ naan boo dëkkee jaamu yàlla di sellal day am leer gu muy def ci yow mais boo dëkkee safaan wa foo toll di mooy yàlla day taxit yow da ngay lëndëm lëndëm googu mooy tax ñun da ngaa ñaaw maintenant nag loolu li ñu ciy jàngate mooy nit ku nekk boo nekkee ci àdduna bëgg nga àdduna bi dañ fee jaar rek pour dem ñun fii du suñu àdduna bon ñu sax fi dàkk passage la pour dem ëllëg yàlla àtte ñu ci suñu jëf kon nag ñun comme loolu lañ ñu digal ñun ñëpp war nañoo taxaw la ci loolu ba ku ci nekk nga yar ci sa njaboot ñu màggaale ko parce que ñu ëpp ci njaboot gi dañ dul leen ta nàmpatal ci loolu ba ñu màgg defal ni dañ leen maanaam ñu fétal seen i doom ñoom ñooy tax xale yi bu ñu màggee def leen neex mais njaaloo moom bokk na ci xeetu mbon mbon yi nga xam ni jullit bi war na koo moytu ndaxte ku ne bëgg nga koom-koom te booy njaaloo effectivement day delloo ginnaaw day delloo ginnaaw am réew loolu moo tax su ñu ànd sàmm ji koy ñuy xeex ci ngóor jigéen bi bañ a law suñu réew parce que ngóor jigéen réew mu mu law musiba mën na leen a dal te gis nga bu ñu ko daan wax ni ñu dañ naan mais Europe pourtant ñoom fa la ngóor jigéen law te ñoom ñoo ëpp doole. mais soo seetloo da ngay gis ni bu ñu amee doole dañuy toog a benn guerre am ñëw ravager ko yàqaat ko wala benn musiba am ci réew mi rek mu jaxasewaat économie bi daanuwaat. Mm-hmm. yooyu jàngat yooyu nit duñ ko def pourtant mm-hmm. fi mu doon li nit ñuy tiit ci problème mu russe ak Ukraine bii mm-hmm. borom xam-xam yi nee nañ bu delluwul ginnaaw mën na raser Europe. parce que ku ci nekk yore nga bomb yoo xam ne nga raas sa morom surtout euh, euh, Vladimir Poutine mi xam moom lañ gën a ragal satan dëm bi mën naa toog ca ca ca Russie di ko dóor mu yegg États-Unis te man na dóor benn bomb raxas France mu mu mel ni suuf xam kon loolu bu ñu la koy wax war nga xam ni euh, xeetu mbon mbon bu yaatoo rek jàppante yi commencé am xeex yi commencé waat am bu ko defee la nga defoon lépp nërmeeluwaat kon njaaloo loolu lépp da koy mën a andi ci àdduna bi kon lépp lu ñu mën a mooy war nañoo fexe ba jikko yu baax ba njaaloo wàññeeku ci àdduna bi njaaloo wàññeeku ci réew yi parce que réew moo xam dañuy sellal njaaloo ba néew fa loolu dina tax wax dëgg yàlla réew ma mën a am koom-koom mën a jëm ca kanam. jërëjëf euh, Dame Mbodj maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu am solo yooyu euh, Mouhamed euh, laay bàyyi moom it mu réagir si ci li nga xamante ne nii moom mooy kàddu yi mais la plupart du temps jeunesse bi nag la ñuy gën a joxoñ baaraam tuuma. Euh, yow <coughs> waaw effectivement euh, Ameth Ndoye euh, damay nuyu Oustaz Makhtar Sarr effectivement ni nga ko waxee noonu la si yi ñuy jëfandikoo yi nga doon junj sànq si ñu si am ay rupture yenn saa di ko jëfandikoo si njaaloo booy xool ndaw yi ñoo koy gën a jëfandikoo te bu rupture amee tam ndaw yi ñoo koy gën a yëg. Mm-hmm. comme dañuy wax si alxuraan di wax si ni suñu diine di ñu yaree si mboytu njaaloo ak danger yi nga xamante nii moom moo si nekk xam nga damay faral di déglu am na xel fa ñaar suñu sëriñ mu naan alxuraan. boo si génnee mbirum sexe dara door si des kon dañuy sukkandiku si alquran euh, bu ñu demee suratu muminuun bu ñuy xool yàlla suñu borom euh, si wax mandarga yi ay jullit. Mm-hmm. Euh, di lim mandarga yi di lim yi ba juróomeelu aaya bi foofu noonu yàlla suñu borom sous le contrôle de oustaz mi ngi tagg wala boog mi ngi ciy boole ñi nga xam te nii seeni awra dañuy muccal seeni awra ñi nga xam te nii nekkunu ñoo xam ne nii danoo yey si ñoom bu nekkee góor a jërëjëf oustaz moo tax lépp looy wax <laughs> na am dalil donc loolu lu lu am am solo la euh, kon loolu benn ponk la pour soññ ñu bëri si euh, ñu gën a téye seen bopp ngir gën a sàmm seen i cër seen i awra ndaxte lool dafa bokk si màndargay jullit ndax yàlla moom ma ko wax. surtout am nuur bu ñu fa demee euh, foofu si accusation yi man si laay gën a insister yàlla suñu borom mi ngi wax si. Euh, bu nit di tuumaal nit njaaloo ñeenti seede yi war a am di développé di développé ba ñëw sax si maanaam ba tere sax ñun ñu siy wax koo xam ne nii amoo si benn firnde même boo si amee firnde te seede yi motul amoo légitimité pour wax si mm-hmm. wax jooju yàlla su borom bi ngi naan da ngeen siy wax yaakaar ne lu oyof la par exemple euh, dara xew si jamono euh, jullit bi yow nga naan lii amaana ñoom ñaar sekk ne nangam yàlla su borom ne da ngeen siy wax yaakaar ne lu oyof la waaye si du garaaw la donc wax jooju sax ñu siy wax si mbirum njaaloo donte ne laala woo si day doon loo xam ne nii euh, c'est une calomnie boo xam ne nii noonu la koy waxee bu bu bu bu la donc loolu noonu c'est c'est une grande abomination. donc loolu ñu siy xam naa ne mois de mars dina leen tafeel. <laughs> loolu laa coowal Adji Sarr ñu waree wax ñëpp ñu réglé ko. wax laay man buntu Sud Beauté laa yem gën a wóor daal. ba ñu dugg si biir néeg donc loolu dañ koy dama koy dénk sam bopp di ko nekk ñi seetaan mooy ñuy moytu mbirum njaaloo yemul sax si ko def waaye di si wax di ko tuumaal ay nit loolu tamit day doon loo xam ne sa amaana mën nga si am baakaar boo xam ne mooy raw sax njaaloo bi ndaxte lu yàlla bañ la lool daal laa bëggoon a wax oustaz bu nekkee jum naa si maa ngi siy jégalu <laughs> bu nekkee am na loo si mën a dolli aussi pour ñëpp gën see mën a gindeeku muy du am solo mm-hmm. mais daal loolu laa si bëggoon a wax amee si gàttal sox soxna yi soxna yi laa jot. nisaawo yi. nisaawo yi waaw nisaawo yi yéen. <laughs> Euh, ma ma ma commencé ci ab sa aat yar gi yar gi yar gi am na ci solo de am na ci wàllu bu baax a baax. waaw euh, ci nit ñuy yare ñoom ci suñu culture sax nag balaa dara di xew dañoo dàq njaalo. Euh, ba tax na ci ku jigéen ki par exemple buñ koy yar tout le temps bu demee ba commencé gis loo xamante ne day wane ni moom mi kat jigéen dëgg la. dañ koy euh, tàmm di wax pour nay sori nay sori jig nay sori góor euh, bu mu duy faral di jaxasoo ak moom donc yar bi da ciy am solo torop ndax day tax nit ki jomma def dara bañ na ko sax ba dañ la daan xupp dem ba di la ragalloo des fois da nga daan dem ci ay dëkk yoo xamante ni dañ naan ko jigéen ki euh, bu ñu demee ba jox la sa borom kër te fekkuñu si yow dara mën na am ay daan yoo xamante ne dina tegu sa kaw lépp rek pour dawal nit ki njaaloo waaye man Ameth dafa am loo xamante ne tout le temps je me suis la question peut dinaa génn tuuti li ma laaj hmm. mooy le fait yi ñuy jëfandikoo muy préservatif ñu koy jaay ci pharmacie. Euh, euh, euh, loolu de xanaa ma jox xale yu góor yi ñoom bañoon ñu tontu ci nee na lii di préservatif préservatif fii ci suñu. réew mi ak xaaral beeg yooyu lu tax ñu fay jaayee ay garab lañ fay jaay ku feebar faj maanaam ku feebar mais. dañuy gis ni yooyu itam ci pharmacie lañ koy jaay. mais bul fàtte ni préservatif dafa bokk ci moyens yoon nga xam ne ci wàllu contraception yooyu. au premier degré daf ci bokk. Ah, mooy maanaam bu nu bëggee même yenn saay booy xool anam yi nga xam te moom la ñu wax si góor a jigéen même bu nekk dañuy sëy euh, si anam yi nga xam te ni ak jumtukaay yu ñu mën a jëfandikoo pour solil nguur gi hmm. dañ si boole préservatif voilà donc loolu euh, na am une vertu thérapeutique si wàllu boobu. sa bul fàttali soxla sa bopp ba mu ëpp feebar la de. Euh, waaw mais préservatif nag léegi am na ñaar yëpp aussi. am na bu jigéen am na bu góor. am na ñaar yëpp waaw. mais légitimé moo ko def. ba pare tamit économie bi basé wu ci préservatif loolu tam lan lañ cee wax. Mouhamed sàngara dafa xaram wala a ci luñ ci wax. ki koy jaay ki ko ah. transporté ki koy jënd ñëpp. waaw chaîne de valeur bi yëpp kay. léegi kon jarul ngeen ñu koy détaillé. mais nag am na solo de bu leen bu leen bu leen bu aussi euh, amul solo. parce que soo gisee tey jii nii li nga xam te ne moom moo nekk préservatif. ñu ñu ñu ñu autoriser ko ñu koy jaay ci ay pharmacie euh, ngay dem sax ci hôpital souvent jëkkër ak jabar dañ lay conseiller sax yéen am na fu sa soxna di toll nga jëfandikoo li nga xam te moom moo nekk euh, préservatif mm-hmm. donc je pense bien que ne moyen la bu nga xam te ni mën na aar waaye tamit dañ koy jëf ci anam bi ñu koy jëfandikoo souvent moom mooy problème bi mais li tax sànq bëgg wax naa mooy fu mu nii yàq gone yi lay gën a def da leen sa yow boo mënul téye sa bopp jëfandikool préservatif te fekk na amagoo sax boo te mu ngi def ravage yu. mu ngi def ravage yu métti métti ci jigéen ñi moo tax si boo xoolee. ak ci góor ñi. loolu lépp conséquence parce que yooyu yëpp conséquence ko ci gis yàlla bu ne neen bul def dara nga def dara rek yàlla bu mu la tere la am na lu tax mu tere la ndax nit ki mënoo xam sa bopp ba gën a xam sa bopp ki lay bind dëgg la mais oustaz est-ce que est-ce tamit euh, jaaykat yi tamit côté boobu amuñu si part de responsabilité parce que avant pilule du lendemain euh, pour na pas tudd turam boo demaan ci pharmacie di laaj di koy laajte kenn du la ko jaay dañ leen naan dañ koy jaay sous ordonnance léegi boo demee xale bu 5 ans sax boo ko yónnee ci pharmacie nga bindal ko tur bi mu demee indi la pilule du lendemain est-ce que tamit kon boobu taxawaay bi jaaykat yi ci pharmacie yi tamit amuñu ci amuñu ci benn benn responsabilité ndax xale bi bu xalaatee su ma njaalooyee ba pare dem jënd pilule kenn du ma ko jaay amaana du xalaat dem njaaloo parce que dina ragal jël ci ëmb wala euh, lu ñu mel ni man dama jàpp rek aussi par rapport ak loolu aussi njaalo ci boppam pour man sax dafa dafa dafa xaw a parce que njaaloo maanaam bu fekkee comprendre naa ko moom mooy par exemple nga sekk ak ku nga xam te nii lewu la mun nga am jabar sekk ak ku nga xam te nii du sa jabar mun nga bañ am jabar aussi sekk ak ku nga xam te nii du sa jabar moom mooy copain ak copine yi nga xam ne moo am ci biir réew mi waaw mais li nga xam moom mooy constat bi moom mooy que ne bés bi yàlla sàkk ñoom Oustaz Abdoulaye ñoom Oustaz Makhtar Sarr ak Oustaz si si biir dëkk bi yëpp chaque jour ñu waare waare waare njaalo baaxul wax daan yi nga xam te moo ci am xupp mais njaalo day gën di law ci biir réew mi. mais am na ñuy gindi aussi. am na ñuy gindi effectivement mais man man man constat bi ma def quand mooy day gën di law et donc. baañoo su loolu sukkandiku. si su la ngay sukkandiku pour xam ne mi ngi gën di law. ci li ñuy sukkandiku moom mooy moom ci statistique yi ñuy sukkandiku mooy bés bu yàlla sàkk émission yi nga xam te ne day am ci dëkk bi yu nga xam c'est très suivi su ma du ma tudd tur pour def publicité mais dañ da ngay gis ab jigéen bu dem ba ci kër bu dem ba ci rajo ba wala ba ci télé ba di évoquer ay problèmes yu nga xam te ni souvent lan moo ko lan lan mooy principale cause moom mooy njaalo ci ci ci ci ci ci sax bu ñu xoolee li gën a bëri sax moom mooy ci borom kër yi maanaam góor ñi si boppam li nga xam te ne moom mooy li ñuy bàyyi seen soxna yi di dem di def fi naka su dul noonu muy dem bay créer ay problème ci seen biir famille ñu duñ ko mën a muñati ñu génn ouvertement wax ko ci rajo yi wala wax ko ci télé wala ñu koy wax ci site internet yi nga koy gis je pense que loolu yëpp bu njëkk amutoon mais boo xoolee léegi nga koy bàyyi xel bu baax a baax man parce que dama koy bàyyi xel bu baax a baax dafa bëri ci biir réew mi et loolu pour man il faudra aussi ñu trouver solution bu nga xam te ne peut-être moom mooy tax ba mbir moom mi wàññeeku wala ñu xoolaat bu baax a lan mooy cause yi pour mën cee trouver ay ah, merci man nag wàllaa bëggoon a ñëw ay daam man sax dama laa bëggoon a ci question absolue parce que dafa am solo euh, mu ngi wax bokkul ci waxtaan wi waaye am na solo loolu ci waxtaan suñu suñu nguur yi euh, xam suñuy culture xam suñuy valeur ñu ne ñu gëm ñoo ëpp ci ci ci askan wi un pour cent rek ñoo gëmul lan moo tax ñoom ñuy joxe autorisation yooyu nga xamante ne nii dafay nekk à la merci de tout le monde ñuy ñuy jëfandikoo yëf yooyu waaw yi il faut nit ñi comprendre ni boo jëlee exemple au Sénégal depuis 1960 wax naa ko bërki démb ci feet bi ñu tuddee feetu indépendance te may wax ni mais wax dëgg yàlla ñii ku ñu yàpp Sénégal fan la indépendant we indépendant da ngay jàpp sab date rek di maajloo ay militaire ak di maajloo ay civil loolu mooy indépendant indépendant mooy nga mën a demal sa bopp di dogalal sa bopp di amal sa bopp sa sa say objectif di développer sa bopp ay stratégie pour atteindre sa objectif yoral sa bopp sa njàng wax lan lan fay jàngale ak ban profil nga bëgg a génne ci sa école ak say université am sa souveraineté ci secteur stratégique yi loolu mooy développe lool loolu mooy euh, indépendance mhm. te ñun yii ma fi lim te mataluma lépp amu ci benn bu nu yoral suñ bopp mhm. économie bi yoraluñ ko suñu bopp politique bi ni muy doxee yoraloon ko suñu bopp lépp ci intérêt France ak ay alliés ci lay dox waaw ah, kon kay yow boo nee damaa indépendant wax dëgg yàlla indépendant de façade la rek ay nax sa bopp la. waaye léegi nag ñun bu fekkente ni bëgg nañu réew mi dem fokk ñun ñu xam lu ñu bëgg. parce que lii ñuy métti ci njaaloo bi yëpp dafa nekk benn agenda boo xam ñun contrôlé wuñ ko dañuy ñëw fekk si suñu culture ñun ñu noot ñu ñoom wax ñu ni nii ngeen di doxale seen àdduna éducation bi muy wax sunu mag ñi lu tax njaaloo euh, jafe woon jamono yooyu. mais c'est parce que dañu doon nàmpatal ci seen aada ak seen cosaan ak seen diine. ñun léegi suñuy tuut tànk dañ leen a fétal xam fetal luy bàyyi leen ñu nekk ci lu leen neex wala ñu nekk ci culture jàmbur. te culture jàmbur boobu moom bañul njaaloo. est-ce que xam nga ni tubaab yi bi ñu njëkkee ñëw naan suñu xel lu ñu njëkk a wax mooy léegi xale bu jigéen bu mineur bu ko kenn maye. waaye bu ñu ko mayee it léegi ay préservatifs ni moom mën naa xéwlu waaye bu ko kenn maye. maanaam pour la ñoom bañuñu xale yu jigéen yi ak yu góor yi jaxasoo xam nañu bañ mooy ñu sëy léegi donc sëy bu teel bi dañ koy tere nañ mais terewuñ xam naa benn ONG boobu mi ngi fi Sénégal di séddale préservatif ci CM yi CM yi xale ya fa nekk ay ay tout tànk lañ ak ci lycée yi ah mais loolu kay du mais mais loolu mooy dëgg waa léegi kon ñooñu suñuy def loolu mooy ñoom dañuy pousse xale yi pour ñu njaaloo waaye bu leen sëy alors que sëy mais loolu dafa baax ci ci ci ci tout tànk li ñuy tuddee ñoom teel mooy la xale bu am 16 ans ñu ko loolu lañu wax ne du yoon taxaw ay organisation féministe nekk suñu réew mi di ko plaider di def seen plaidoyer di wër naan non sëy yu teel yi dañ koy tere alors que bu teel yooyu mooy aar xale yi. xale yi dañ a jàngal teel tamit par exemple jigéen bi nga xamante ne war na mën a dem jàngi école liggéeyi sëy bu teel boobu ndax mënu koo gaara loolu ay wax la conséquence la ci loolu ay wax la mais daam gis nañ fi ñoo xamante ni bañu bañ leen mayee seen jàng dafa yàqu waaw mais xam nga jàng boobu itam ku jigéen ki war naa mën a jàng dem ba toll fi fenn fii am ay responsabilité mën a am autonomie financière mais dama lay expliquer loolu moo lay wax loolu lépp modèle mootalu tubaab yi la c'est-à-dire ñoom ñoo xalaate noonu àdduna gis nga tey jii boo ko waxee nit ñi mareeti la mais man samay position dama koy wax même bu mettee nit ñi mm-hmm. ñu stigmatiser ma man lijjantiwuma ñi may stigmatiser xam nga lu ma gëm mm-hmm. mooy ba ñu commencé jigéen ñi génn kër yi xale yi amatul kenn ku leen yar comme ni ko anglais di waxee men build houses women make homes c'est-à-dire mooy lan jigéen ñoo yore kër yi bis biñ biñ demee ba conjoncture économique toll foo xam jigéen dañoo génn kër yi xale yi na ci kër yi kenn yoratu leen ci laas ne commencé yàqu. loolu mooy kon daan da bëgg wax ni que daal jigéen ñi dañoo war a. toog non non déglu ma rek li may wax nii dama koy assumer. Mm-hmm. li ma gëm mooy gis nga tant que askan wi dañoo bàyyi xale yi ci biir kër gi te amul kenn koo xam ne moo yar xale yi loolu. day tax sunu askan du ñu mën a am ñan ñooy yore xale yi pour ñu mën leen a tàggat man leen a jox éducation bi nu soxla pour ñu mën a dem te loolu li ko indi conjoncture économique dong moo ko indi sunu mag ñi bu njëkk dañ da dañ daan toog ci kër gi yar xale yi góor ñi dem wuti andi. loolu moo amoon léegi nag maintenant conjoncture mais néew ma la dox bon mënatuñ ci dara. mais c'est pas le meilleur modèle. mais daaw conjoncture man ñi seen bopp dañ daan liggéey. seen bopp dañ daan liggéey génn kër gi dañ daan liggéey on a eu plein d'exemples ay jigéen ñoo xamante ne dañoo dem liggéey mais mosuñu déserté kër yi xoolal li am non dama lay expliquer rek mosu am mosu am dama lay gis mag ñi mosuñoo bàyyi non may ma rek non déglu ma expliquer la soxna si soxna si dem tool ñëw taxul nga bàyyi sa kër dañ daan xëy dem tool te mag ñi bu ñu daan dem jigéen ñi bu ñu daan dem ci tool yi Eh, dañuy dem yóbbu lañ war def ci tool yi tool yi góor ñaa fa nekk di liggéey ñu ñëwaat. ñu defee togg yóbbu ñëwaat donc xa ñoo yar bi jigéen ñi ñoo ko yore léegi nag aujourd'hui kër gi amatul góor amatul jigéen amatul dara fétal nañ gone yi ñu génn kenn kenn kenn yoratu leen. loolu bokk na ci li tax xale yi bu ñu màggee nag ñu ne leen. beneen bi ci tegu mooy ñu ñëw tegal leen ay théorie importée théorie importée mooy Europe ñoo fi indi ni léegi bu kenn mayati sëy yu teel parce que baaxul léegi bu ko defee te teewul ñu ngay yi sëy leen yéen mais bu leen bu mais mais euh, euh, dee leen jaxasoo waaye bu leen teel a sëy xale yu bëri bu ñu amee 12 ans 13 ans xam góor te xale yooyu bu nee nañ leen di maye ay association féministe taxaw ne non non bi daa teel te doo leen dégg ñuy déployé waaye ne bu bu ñamante. do gisagoo gisagoo fi benn association féministe buy wër di def plaidoyer contre ñuy distribuer ay préservatif góor ak préservatif jigéen pour bañ xale yi say gisoo ko ma benn bu koy def amul mais boo mayee woon ku am ah, na koo xam ne amul amul 18 ans. waa kon nag man jàpp naa ne. yooyu mooy. parce que pousse nit ñi ci ñu ci ñu bon te nit teel a sëy. contrairement li ñu gëmloo que teel a sëy dafa bon c' est le contraire dama la jox exemple dama dem ci benn euh, États-Unis benn dëkk boo xam ni l' état de Utah ma nekkoon ci programme boo xam ni on était quarante professeurs benn benn benn professeur bu jógee ci benn pays africain comme ñu on cinq africains plusieurs européens et fu nekk guddi gu jot comme on est on avait fait neuf états guddi gu jot day day day génn daal di hôtel bi ñuy logé day génn man toujours comme sama waay la ñu dañ doon euh, yow waa ji sa sa copain la quoi day ñëw fëgg sama pot comme man na tambul la ne ma Mbodj maa ngi génn moom état bu ñu def une semaine une semaine ba guddi du fan presque du tëdd néegam mu ngi ci mbedd mii dem wuti jigéen hmm? léegi ñu dem euh, malheureusement pour lui ñu dem ci benn état boo xam ni njaaloo fa yombul muy l'état de Utah pourquoi njaaloo fa yombul parce que Utah c'est les moo ñoo ñoo fa nekk nga xam ne ñoom dañu dañuy dañoo gëm polygamie polygamie pas comme Sénégal ku am doole da ngay takk jabar yu bari foofa boo amee euh, euh, xaalis manjoon man nga takk juróom-benn jabar wala fukk ñun ci bi ñuy formé for dem nañ ci famille boo xam si euh, góor góor ki onze onze jabar la yore fukki jabar ak benn la yore parce que daa am alal te jabar bu muy dem ci domaine bi lay daw ak otom lu bari doog a dem ci ñaareel ba bu jógee ca bu euh, aayee foofu ba pare dawaat lu bari dem ca ñetteel ba noonu lay def polygami mi ngi dépendre sa alal boo amee alal am nga droit takk léegi loolu conséquence bi mën andi xam lan la mooy xale yi dañuy teel a sëy boo gisee xale bu ndaw bu bu tuuti yoree doomam nga defa ne da njaaloo njaaloowu ko tey dañuy dën di teel ndaxte jigéen yóbbu fa li ma lay wax ni États-Unis la am parce que États-Unis lu nee fa ne état yu yu tappalee nga fa ak yu baax yaa extra Utah man loolu c'est un phénomène boo xam dafa ma jaaxal ngay ñëw xale bu ndaw ngay gis ñu la am na jëkkër ay 13 ans te pourtant am nañu association yu koy kaas mais duñ fa dem kaas loolu mais loolu baax na ci ñoom parce que wàññi na njaaloo ga parce que polygamie day wàññi njaaloo ñoom nag teguñu ko ci ñun diine nga xam ñeent lañ la yemloo ñoom dañuy fétal lu ñu am rek ci alal mën na leen a may ñu takk jabar yu bari léegi nag léegi nag léegi nag léegi nag polygamie day wàññi njaalo yaa may dégg yaa may dégg léegi xoolal xoolal ki ma di wax nag état may ma daaneel foofu waaw noonu nii ko nee naa la ñoom dañ ci loolu lañ ko teg ñoom ci alal ñun nag dañoo gëm ñun jullit yi que boo takkee jabar yu bari ku ci nekk wër sa gëm donc ñun ak ñoom bokkuñu ni ñuy xalaat mais li ci am solo mooy boo ko ci mën a jël ci ñaari polygamie yooyu polygamie day aar góor day aar jigéen day wàññi njaaloo léegi nag kooku ma leen di wax ñu ñëw ci état Utah bi on était à Salt Lake City ñu guddi jot rek mu daal di fëgg ne ma mbóoj maa ngi génn mu génn dem ba trois heures du matin amul dara mu sooy mu ñëw fëggaat ma daal di désolé nag bi ma fëggaatee ne ma when are we leaving this state ma <laughs> kañ la ñuy jóge fii ci état bi kañ lañ fiy jeexal ma ne ko fii daañu fi def une semaine de mu ne non je vais souffrir mu ne moom dina souffrir ma na ko daan lu xew man ma génn naa ba maa ngi nii aw benn jigéen ci mbedd ma na ko maanaam jéem na mais amul parce que njaaloo amu fa maanaam yomb fa xay na même bu fa dee am ay procédure de luxe lay doon yoo xam te yegg ci ñoom léegi nag pour mu daan comme yeneen état yi nga xam ne tak tak mu romb kenn ci mbir mi naxanteeg moom kii ak moom loolu amu fa léegi nag mu découragé ma ne ko waa mais yow eh, kon léegi eh, nan ngay def mu ne ma non mais man maa ngi dem tëddi mais vraiment état bii man j'en ai marre de cet état xoolal ñu xëy ma koy saboté ci kanam gars yi mun a mbëtt ne pas sérieux ma ne ko yow bii nga waxal gars la dal donc te ñëpp xamoon ne guddi day génn donc pour loolu la ne foofa xamal lu tax euh, euh, kooku amoon jafe-jafe Euh, njaaloo lu tax mu wàññeeku fa muy polygamie ba am ci dëkk ba ñu koy pratiquer moo tax gis nga euh, ja bu góor ñi ku ci nekk takkoon man mii di wax ak yow maa ngi benn soxna lu tax takkuma ñaar lu tax takkuma ñett ci sama bopp laay commencé ñun ñëpp dana war a takk waaw loolu tax non c'est-à-dire dama lay expliquer rek xam nekk di critiquer keneen te nekk fi man yore benn jabar mais dana war a takk ñaari jabar takk ñett. waaw yow takk ñett yow non xam nga nee naa la nee naa la nee naa la. ñun rek daal moom yaa ngi mais mais maa ngi wax. Mané Wade ko takk ñaareel. j'espère que madame mi ngi seetaan. non effectivement moom euh, xam naa ne mi ngi seetaan actuellement émission bi moom xam naa ne bés bu ne des fois mun na ma yow euh, kuy kuy takk ñaareel du ko wax mais dinaa ko bett damay takk ñaareel ba moo yàggaat ma takk et puis jabar sax dañ ko war a neef. da ngay takk aaw toog tuuti toog ñaari at ñetti at takk ñaareel. toogaat ñaari at takk ñetteel da ko war a neef. mais man euh, malheureusement neefu ma ko te teguma ko fenn non moo tax man la man sama bopp laay commencé critiquer gis nga njaaloo bu metti gi ci dëkk bi su suñu ni su góor ñu doon takki jabar ku war a takk ñett takk ñett ku war a takk ñeent takk ñeent te ñuy teel a maye xale yi loolu dina tax njaaloo gi wàññeeku man loolu laa gëm. xam nga euh, euh, Mohamed. leneen daal naa ko ma doon la nga yóbbaale ko. Euh, polygamie dafay dafay xeex tamit impuissance. ci góor waaw. ah bon ah, waaw loolu loolu c'est démontré c'est démontré scientifiquement. ah bon que boo demee ay jaadu bari wax dañuy wax ni l'islam li muy wax ni tàggu. Ah hmm, benn hmm, science bu mag États-Unis moo dem ba dëkk bu ñu eh, puissance ki nekk ci benn jaadu. Ah, danaa la tontu foofu eh, li li wax nii. ah loolu la ñuy gëm. boo ayee fi ñaari fan daanu fa ayee fi ñaari fan da ayee nag li muy noonu nag. demawul noonu kenn waxeeku la nga defe ko noonu loolu jigéen ñoo koy gëmloo góor naan la ah ba nga def ko man dootuma la mayete ngay nelaw loolu gis nga loolu ay wax la góor moom mooy xam nu muy gérer nu muy sëy ci kaw lal bi mm-hmm. loolu kenn imposé wu ko mais li mu la wax nii mooy boo amee soxna yu bëri day day mel ne comme bés bu nekk ngay lekk ceebu jën bokkul ak bés bu nekk nga lekk tey ceebu jën suba mbaxalu naar. daan nag loolu da ngay c'est très important gis nga loolu day loolu lay wax ne mën na day yokku day maanaam le fait que ngay am ñeenti soxna. ngay varié ay ngay varié voilà nga xam ne boo nekkee kii ñaari fan. nam ka ca des ba koo loolu lépp ba toojaat ba ki nga nekk nii tamit nga toogaat fukki fan wala juróom-ñetti fan doogu ñëwaat ci moom loolu day tax nga nam ko namm boobu day day dalay dalay joxaat yeneen force loolu c'est important ci sëy lay régénérer loolu moo tax mu naan dalay dalay gën a may doo naan yàlla mu ñu ëpp yërmande gën ñoo xam suñu bopp ba tax na ji nga ba mu wàll ci wàllum soxna ji ba mu ciy wax waxoon na fa ak maa ma taabalo ko beneen saa waxoon na commencé bu foo de dafa ne masna dafa bañ benn ñaar masna waxul waaxidatan de mën na commencé benn mais la moo tax mu ndax xam nu mu liggéeyu góor ak nu mu liggéeyu doomu aadama yéen yàlla Solomon nag moo amoon loppoon téeméeri jabar te ñoom ñëpp ku nekk daana ànd ak ci benn guddi ku nekk laa daana ànd ak ci benn guddi genn guddi balaa tëdd. beneen bi mooy tamit xamu tax ko hmm. gis nga la daa daanal góor. Hmm, léegi moo ne daa nga ci penc. voilà bu njëkk mag ñi. Hmm. sunu mag ñi xam nga moo tax ñoom kaaba ñoo amoon kattan force. seen soxna bi ñu daa génne daanaka war du man ñetti sër. ba tax na yow li nga xamante ne moom moo leen yëngal duñ ko gis. mais tey jii da ngay gis xale boo xamante ne mën naa sol loo xamante lu bon yow nga toog yow góor xam nga dañu garab bu yàgg yëngu bu yàgg nan lay def daanu. voilà non non et puis et yàgg gis bi xam nga benn paa dafa ñëw Dakar di xool xale jigéen ñi ñuy soloo mu ni laay waa Dakar de góor amatu fa. ñu ne ko lu tax mu ne ñii li ñuy gis nii te ñoom dara soppeekoo ci seen te te seen te seen jëmm ji jubul. góor te <laughs> yëf yi jubul bagage yi mu ne kon Dakar amatul góor xam nga tax. da koo yàgg gis a yàgg gis ba mu sàppile benn benn grand ne ma ñun bu ñu nekkee xale buñ daan dox ci mbedd mi ba jigéen lafu sërëm naaw nee na ñun ñëpp dañuy daw di xool ku ne ndax sa bos jub na est-ce que wax ji xam nga yow fi mu ngi yëm ci yow parce que boobu du la ko teg. mais ñun ñun fuural bu daan. non non du loolu de du loolu de du loolu de. c'est parce que. eh loolu du loolu. eh yow li ñu waxtaanee continué bàyyi góor ñi wax yow xam nga li ñu nekk. yow comprendre non comprendre yow xam contexte bi mu nekk. contexte bi mu nekk. contexte bi mu nekk. contexte bi mu nekk ak contexte bi mu nekk. yow li ngay wax ni yaa ngi dépendre ci li xew nii nee naa la léegi. actuellement góor ñi fi mu toll nii danoo da gis nga. di yàq dafa latte daal gis nga bu lattee ba mu ëpp. ba lattee ba la pour confirmer la dootul la yëngal dina lattee ba mu ëpp. mais daal dama ne la loolu lattee ba mu ëpp. loolu tax sa jigéen ñi di amee feem. pour di fël feneen di fël fii tey bu suba fël feneen léegi nag moo tax ñun la ki li nga xam da koy gis bés bu ne day dem ba dootu la yëngal léegi bu njëkk jigéen mhm. cërëm cërëm cërëm cërëm lu ci feeñ rek mm-hmm. jamono yi ñu lay wax waaw mm-hmm. kooku dañ leen daan yare ci noonu mm-hmm. sa yaay da lay wax ne sa cër bu mu feeñ comme non sax ne la boo woddoo servetu góor dee nga ëmb nga servette boo ko woddoo sax dañ la ko doon gëmloo nga ragal booy génn da ngay da ngay sol sol bu yiw ba sa yaram dara du feeñ góor ñi duñ teg dara léegi boo defee ci ña xam ay jamono sabar bu daan am sabar xam nga sabar. bu sabar daan am. góor yi dañuy taxawee place boo xam daan mën a séen dara. ak ampoule torse. ak voilà. léegi bu ko defee bu na jigéen ñoom bu ñuy fecc dañuy fecc mu jaar ñu génnee seen seen yenn partie intime mhm. bu ñu toj ku nekk daw. ku nekk di xool ci bu guddi gi ñu koy léegi ku defoon sabar booy. xale yi bu ñu faal. daal léegi guddi mbir yi defee bëri fi. loolu bokk na ci loolu bokk na ci Ah, provocation yëpp yéen da ngeen ne mbir yi laajte na dem laajte na ba safatul góor ñi kon kay leen a mën a kii ba tax ñuy ñuy violé non c'est li ngay wax noonu maanaam dafa bëri ay conseils fu cause souvent ku jigéen ki day nekk ñu baal ma aussi quoi mais Euh, parce que damay bañ. <laughs> suñu mbokku féministes yi génn quoi waaw ñuy wax ñuy Gabriel sama xarit la mais <laughs> maanaam loolu aussi dafa nekk lu nga xam te nii daf bu nañ ko analyser ci ay pàcc yu bëree bëri bëri ci lii sabab li nga xam ne moom moo nekk violé ndax souvent da ngay gis moom tamit dafa feebar dafa feebar maanaam dafa am problème maanaam jigéen psychologiquement moom bu gisee jigéen rek maanaam day tàggale ko sagoom mhm. dafa am am na ñu nga xam te te loolu yëpp dafa nekk loo xam ay paramètres yu ñu war a mën a bàyyi xel la pour appuyer léegi daam mu waxoon léegi maa ngi suivre ba un jour benn vidéo ki nga xam ne moom nag Père Mbaye Ngoné hmm. muy wax naan bu njëkk bu ñu gisoon abu lupp dañaan da nga koy da ngay tëdd guddi di ko génnaal di ko génn mooy li ma sax lupp mais lupp bi loolu laa lay wax maanaam sër bi naaw loolu mooy lupp bi damaa bañ a wax lupp pour mu ñaaw rek mais dama la ngay jigéen ju dox mu jàgg sër bi naaw sër bi naaw lupp bi feeñ ma man li ma lay wax nii xoolal rek ñi ko gis góor ñi ko gis ay xale laa la wax de waxuma lay mag xale yi ko gis rek dañuy daw bu ko defee ku ci nekk daal di yëg boppam xoolal xam nga parce que xoolal gis ko moo leen jafe non daal xam nga ñun luñu daan def dañ daan ut seetu waaw bu kër yi nga xam ne këru famille yu mag la va et vient bi day bëri ci bunt bi dañ daan toog ci bunt bi mel ni kuy égaat jël seetu teg ci buntu bi égaatuñ de jigéen buy jéggi nii ñu xool ci seetu bi bu ñu gisee couleur euh, silib hmm. loolu événement la événement la waaw dañuy yuuxoo laa lay wax mel ni ku jël coupe ku ne daw na dugg sa néeg léegi capté image bi di ko jéem a imaginer <laughs> pour pour pour yëg sa bopp <laughs> foofu lañ toll léegi yow imaginer soo duggee Instagram bi ñaata nga ciy gis ñaata ñaata mooy lay yëngal ko wala TikTok carrément <laughs> xam nga loolu tax ji nga yëngal góor ba tax ñu koy teel a may soxna ko mënoon a góor ba tax ñu a may ci tollee moo juróot ba xalaat kii toll na ci fu a toll dañ koy may soxna mm-hmm. la benn xarit waxoon waxoon waa yaay na ko yaay takkaleen ma soxna mu ne ko lu tax mu ko tax ne damaa mel ne contact boo ma taal damay tàkk boo ma fay du ma ma fay war na dëgg <laughs> te <laughs> boobu xamul tax gis nga teel a boobu beneen avantage gi si gis nga buñ teel buñ la teelee maye yow ku jigéen xamagoo benn góor ku góor ki xamagul benn jigéen xam nga luy avantage ku ci nekk da ngay defe ne lii nga ñam sa waay rek kese léegi day tax sëy bi da koy dëgëral loolu maanaam bokk la koo xam ne dafa am expérience sexuelle comme ni ko jigéen ñi di waxee léegi non man dama war a am expérience sexuelle man góor bu amul benn expérience sexuelle du ma du ma sëy ak moom waxu dof non may ma rek déedéet loolu waxu dof ah. loolu lépp ci xolal loolu lépp ci tubaab yi fi importe ay théorie gëmloo loolu mais loolu taxawul sunu maam yi nekk nañ fi ba jóge fi njaaloo bi méttiwul woon ku ci takk soxna da nga nekk moom tas euh, yombul woon te pourtant daawuñu sëy ci euh, ak koo xam ne daa dem raatale Ndakaaru ba doyal. non mais daal wala jigéen joo xam daa raatale. daa raatale ba doyal ñuy doog a sëy loolu techniquement di nga wax ni moom ça s'entend quoi. non problème ku tàmm ku tàmm ay variétés yu bari. voilà kooku satisfaire ko mooy gën a métti. ki nga xam ne yow rek la xam. loolu laa bëgg a expliqué moom. mais tamit daal mais tamit daal am na cause de divorce yu bari yoo xamante ne góor bu amul expérience sexuelle parce que doo satisfaire la femme. doo xam loolu yéen a expérience sexuelle boo ko la mën jigéen. c'est que dafa naan yéen femme mën dana léegi yéen a gëm loolu. xam jigéen yu bari boo ko dara xam jigéen ak mën jigéen boo ko nga am benn soxna kese. non mais li mu wax loolu jigéen ñi gëm de. moom génération ñoom ñi seen génération. loolu lan gëm. yàlla daal jigéen daa am la yàlla. yàlla loolu ngay tëb rek. yàlla bind ay multi multi milliards doomu aadama. yàlla dafa bind ay multi multi jël kenn dugal ko suñu diggante suñu biir. Hmm. na roy lonku kenn na roy leen ko maa aataakum rasul fa xuzuhu mm. wa maa mm. nahaakum anhu fantahu ne kooku kat mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne lépp loo xamante ne def na na sant na la ko nekk leen ci ba nga xam ne man man yàlla maa ngi ko sant mais lu mu leen tere ngeen ba ko mais xam nga tax yéen salaay salaam ki nga xamante ne mooy Aïcha mm-hmm. turandoo ba mu koy takk ñaata anam am na ñu ne 6 ans la am na ñu ne 8 ans la am na ñu ne 13 ans am na ñu ne 9 ans am na ñu ne 9 ans 9 ans bi siiw na xam nga xamal loolu mais xool boobu ko jëlee soxna mm. mais li nga ciy jàngate rek mooy ci xale la ko. mais kon xam xamoon na jigéen nit ki nit amul fu muy toll foo xamante ne dañuy xam ne kii dafa boo ko boo ko libéré boo ko libéré wul rek mu libéré moom. te sànq dafa am loo xamante moom laa bëggoon ñëw muy li daam wax ne jigéen ci boppam dañ leen war dañoo war a toog ci kër gi yar xale xam nga tax yéen salaay salaam waxul ne góor ci boppam mooy école. xadis bi mu wax ne waxul ne góor mooy école. boo ko waxee jigéen ñi attaqué la de man dañ ma ci attaqué mais man. yéen loolu la wax yéen daf ne al ummu madrasatu dafa ne jigéen mooy école kon ku yar moom mooy yar de. kon jigéen rôlam ci kër gi mooy lan mooy toog war a yar ki nga xamante mooy njaboot gi. yar dafa waaw mais baa ma doole benn exemple je prends rarement un la famille présidentielle je prends rarement euh, de tey laa koy njëkk def mais euh, Marème Faye Sall lu mu wax daf ni moom bi mu nekkee euh, di jàng li yàq jàngam mooy doomam nekk ci situation boo xam si dañ ko koo indil sax muy jàng fekk mu war a nàmpal je ne sais pas comme sax mu taxaw ne daal moom day assumer dem toog ci kër ga yar ak njabootam. Mm. mais loolu am na ñoo xam ne tey jii pourtant euh, dañ naan loolu voilà léegi c'est dépassé et cetera et cetera gis nga sa njaboot mu réussir. war na laa jaral nga toog sa kër yar sa njaboot moo ko waxee na ñeen dañ naan daal non xam nga lébu lu mu wax daal doguma la dama lay jox exemple nga mm. jigéen mm. du lenn kott lu dul njabootam voilà leneen lu dul njabootam du alal tubaab yi nag génération bi xam lu mu leen gëmloo ak yore ay association féministe xam lu mu leen gëmloo que non au nom de l'émancipation de la femme

uuf leen ni ngi leen waree mais ci kaw condition ci kaw condition mag ñi ko daan def dafay fekk ñu sekk ko ay góor yoo xamante ne ay góor yàlla dëgg lañu woon lépp lu war seen kër ñu def ko waaye jamono ji lan ngay gis da ngay gis benn góor boo xamante ne da dala fa naan ñukk yow sa njaboot nga obligé war a ci biir kër gi mais c'est bi da nga war a yor góor ki njaboot bi war a góor justement da ngay bopp da ngay yor pour sa bopp justement ku góor ki du la jox looy dundee du la jox du jox njaboot gi li ñuy dundee yow yaay obligé fii ñaata yoon lañ fi gis ay jigéen ñoo xamante ne ñoo seeni kër te borom kër bi nekk ci biir kër gi yorul këram moom mooy génn dem liggéeyi jël xaalisam ñëw dundal ay njabootam dundal borom këram donc quand même c'est vrai c'est bien boo encore une fois c'est bien beau nga yor say doom ni mu waree waaye yor say bo doom boobu dafa bëri dimension parce que euh, saako bu feesul lu taxaw d'accord léegi merci beaucoup merci beaucoup association bi. non mais non association di question ñu xam ñëpp xam nañ ne nous ne sommes pas dans ces choses là. nous association mais réalité la boo xamante ne bii mi ngi fii Sénégal te yéen bu bu leen ci nëbb seen i bët gis ngeen ko. ba pare am na jigéen ñoo xamante ne dafa y a des hommes yoo xamante ne bëri. y a des hommes nga toll ni nga toll. ñu gis la di lay labat ngay liggéey wala di jàng ñu lay doxaan gis la ci takk la dugal ci gannaaw non tu vas arrêter tes études. pourquoi pourquoi non non nga dem takk ku jàngul wala nga takk ku liggéeyul. te en plus de ça en plus de ça leen loo xamante ni góor ñi dañ koy réeré. am na dama koy àggali may ma tuuti rek leen loo xamante ni góor ñi dañ koy réeré mbir mooy ni que. am na ñoo xamante ne ñu di liggéey systématiquement pour am xaalis mais source la boo xamante ne da leen permettre ñu épanouir am na xamante ne seen liggéey day leen permettre ñu épanouir kon nag nañu bàyyi lool xel jigéen nit la comme ko ayca ñu daaneel dem xool ji info koor gi euh, ndax naa ñu ngi koy xaar ayca benn ndaw su jigéen xamante ni Angleterre la nekk uh-huh. mais professeur la quoi day jàngale uh-huh. dafay jàngale yàlla dimbali ko mu toll ci sëy muy neen sëyut moom moom neen étudiam yi la topp di jàngale di jàngale ba yàlla mooy ko mu am alal ju bari moom ne ba toll am jëkkër mu am jëkkër mais fu mu waree am jë fu mu waree am doom fekk moom mënu posé bu yàgg. mu tiim alalam di jooy ne moom lu ko métti mooy ndeke ne li doon jàng amul benn njariñ. mais yéen yàlla bu dee ngeen di di ngeen ko. bàyyi leen wax ne yàlla ko tuddoon. a sëy dafa baax ci jigéen. te yàlla bu ne leen teel leen a sëy bàyyi leen seen jëkkër yi am ñeenti wujju du ngeen am. bu ngeen yàlla ko. benn jigéen bañ ko fi. si kenn du ko forcé. non non non loolu loolu xool nga théorie yooyu. dañ leen ko gëmloo pour manqué leen. day fekk la jiitu ko xoolal mu leen manqué loo jigéen xoolal nga théorie yooyu lu leen màggat loo xam yow xoolal bu la yàkkamti heure bu ñu la takkee rek bés boo bés boo bés boo bés boo bés sa biddéew fekkee rek <laughs> yow daan la takk gis nga loolu wax waxu du waxi dara gis nga jigéen teel koo maye dafa am solo ci moom un dina ko permettre mu mën a def euh, bu dee yàlla wërsëg na ko mu amay doom parce que yàlla mooy maye doom dina leen teel a am mën leen a teel a yar xale yi xanaa moo ne xale xale est-ce que xale bu juddu ci ay parent yu jeunes yamul ak xare bu judd ci ay parent yu bokkuñu sax yamuñu sax c' est même pas comparable gis nga yooyu yëpp daf ci am solo et puis gis nga au nom de sa nouvel ordre mondial bi nga xam si fi mu toll ni nit ñi seetluwuñ ni sur tous les plans ñi ngi ñi ngi ñi ngi gagné ñi ngi gagné du terrain mooy li ñu gëm mooy de la réduction de la population mondiale même xeetu Euh, contraception yi ngeen gis nii muy ñu wut préservatif pour góor. Mm-hmm. wut préservatif pour jigéen. Mm-hmm. sa jabar bu amee doom ci biir mm-hmm. hôpital bi ñu proposé la mu def contraception alors que suñu mag ñi xamuñu woon loolu. te pourtant amoon nañ ay méthode de contraception. ma ñoo ne yow sa doom sa jabar day am doom. léegi nga yebal ko mu seeti yaayam. c'est une forme de contraception. mu dem yaayam di ko jàppale doom ji lañ koy rafetal. mais yow doo ko mun jege. le temps parce que a yi a magante deux mm-hmm. deux ans parce que deux ans. doy na sëkk. Mhm. mais ñoom dañ naan la même deux ans léegi dañ naan dafa tuuti. alors que deux ans doy na. alxuraan moo wax xaw na ni kaamil ko mhm. mhm. fa commencé jëlee aujourd'hui jigéen ñi kenn bëggatul say doom magante deux ans. parce que jamono bi daa non non bàyyi leen am doom à l'hôpital ñu naan la kaa ñu defal la contraception muy brin bu ñuy dugal ci yaramam ay ay doom yu koy jox muy naan ak. ay préservatif yu góor wala yu jigéen la jox. bañal lank leen lank leen non may ma lank leen lank leen lank leen modernisation amul lank leen loolu lépp xam nga xoolal gis nga loolu lépp ak la césarienne gis nga césarienne bi nañ ko rendre presque presque gratuit nga xam ne doo ca fay dara loolu li tax ñu koy def mhm. c'est pour pousse jigéen ñi ñuy def césarienne naan lan moo gën a ah, oyof xamal tax parce que bëgguñu nga bëri doom mhm. parce que kuy amee doom césarienne mhm. moom bu amee benn doom césarienne amaat beneen doom ñaari yoon césarienne bu ñettee rek médecin yi ko arrêté lu wóoratu alors que ñun sunu sunu maam dañ doon taxaw di am juróom-ñeenti doom mais léegi ñoom bëggatuñ loolu am parce que la réduction de la population mondiale est un objectif qui est assumé par le nouvel ordre mondial donc loolu lépp def ci bokk moo tax lépp lu jëm ci santé de la reproduction dañ ci def seen alal pour mën a réduire la population pour que ñu am des familles nucléaires maanaam papa yaay doom wala papa yaay ak ñaari doom ñu bu ko defee oto yi sax léegi ni koy liggéey noonu lay mel ba dootul mën a dugal njaboot gu bëri. ayca merci beaucoup Dame Mbodj ñu ngi lay bu baax a baax euh, dañuy ànd ak soxna Aïssa Thiam ci li nga xam ne moom mooy info Ramadan euh, daal di ñëw nag ci li nga xamante ne nii moom mooy. Euh, waxtaanu oustaz Abdoulo di nuyu gars yi rek ñoom ñëpp ñu ngi réagir actuellement maa ngi nuyu Cheikh Diakhaté Mamadou Ba euh, Buri maa ngi lay nuyu Al Moustapha sama waa maa ngi lay nuyu bu baax a baax Idrissa Diallo Naachi Fresh maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal ci teew bi ngeen teew fii Cheikh Dakar merci beaucoup <laughs> dinañ invité Mame Gor Diazaka Cheikh Dakar moom Mame Gor Diazaka lay réclamé ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc ñu ngi koy jaale bu baax a baax maam góor jazaaka euh, di ko jaajëfal moom it euh, di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ ñu ànd ak Aïcha Thiam xool li nga xamante ne nii moom mooy naafile yi ak aree xëdd ak rupture ndox amet euh, bismillah wàcc bu ko defee euh, mu ñëwaat ci. Euh, saytaan nekk fi weer wi <laughs> ku ne yaay sa saytaane bopp. <laughs> donc tey Ameth euh, naafila bi taxu ko métti trop tey la ñuy la naafila sixième nuit bi incha allah donc naafila bi tey deux rakk la deux rakk yoo xamante ni benn fatiha ngay def ak douze lixlaas moom ngay tari bu ko defee nga matal sa naafila tey donc heure xëdd gi nag tey cinq heures 34 la 5 34 jotee incha allah saare ñëpp arrêté lekk bi heure ndogu bi suba mu ngi toll ci 19 vingt 23 comme ni ma leen ko waxee woon démb ba semaine bi moom day yéeg di wàcc jóge na 22 29 dema incha allah 23 lay nekk 19 heures 23 fu mu jotee ngeen dagg lii di seen euh, seen dog bi donc euh, xëdd bi tamit maa ngi koy wax sànq euh, muy toll ci cinq 5 34 naafila bi ma bamtuwaat ko deux rakk la dont benn fatiha ak 12 lixlaas donc loolu mooy naafila du jour bi tey oyof na torop nag tey moom duñu wax taxaw nañ ba sonn donc loolu moo nekkoon a amet info ramadan bi tey si sixième nuit pour demain incha allah d' accord merci beaucoup euh, soxna <laughs> Aïssa Thiam da nga yaakaar ne douze ixlaas daa yomb a taxaw. ah yomb na kay lixlaas ah, lixlaas gàtt na. ok ba bokk ak paa yi demoon ci almere ñu ne tari leen fukki lixlaas ak. waaw ñu naan lixlaas lixlaas lixlaas moo tax nga yaakaar lixlaas jëfandikoo yi nga xam ne moom la ñuy joxe ci réseaux sociaux yeeg yooyu wala da ngaa yor sa naafila ak bopp. waaw euh, man nag téere sëñ son bi laay sukkandiku. Euh, fa sukkandiku ci samay la la nag comme nu ñu ko tuddee c'est une prière surérogatoire luñ la imposer ni lii moom la ay wuute am na ci euh, parce que dañu jàpp ni euh, ku ci nekk euh, da ngay am ay tegtal yu ñu lay jox ñee dañuy wax ne lixlaas la ñu war a def nangamu lim kee wax nangamu lim bu wuteeg lixlaas kee wax beneen saar donc parce que yëpp benn banu ci saa sa ngi nii xam na li may wax parce que comme du ñu la imposer ne la par force lii nga war a def Euh, ay wute am na ci mais li ci am solo daal mooy naafi la ci biir koor am na solo même bu dul biir koor loolu la ustaas yi wax n'est-ce pas mm-hmm. donc euh, parce que képp koo xam ne yaa ngi naafi la au moins day wóor ne yaa ngi respecté sa cinq prières parce que da koy ñoŋal mm-hmm. da koy dëgëral parce que boo demee bu bu képp ko gis muy naafila la veut dire que moom ay ay waxtu julleem du faat waxtu mm-hmm. kooku lu am am solo la donc man pour man euh, ku ci nekk am nga fooy sukkandiku mais man bu dee personnellement man livre bi laay ubbi Euh, bu sëñ chong bi xool euh, mu jox la tegtal yi nga sukkandiku ci loolu mais nag euh, gis naa ne des fois mu am yu nuroo am yu wute mais man aw ma problème ci loolu parce que koor gi moom ku nekk day joxe ay kiyam da ngay gis message jóge fu ne mais man jàpp naa ne yëpp a baax parce que nag comme taxaw jaamu yàlla la te yëpp naafila moom imposé wuñ leen la lii nii nga war a naafila man jàpp naa ne loolu baax la merci beaucoup Dame dañuy attaqué li nga xam ne moom mooy waxtaanu oustaz Abdou Lo Euh, buñ ci jógee nag dalal Babacar Kebe ci euh, ponk rinkum yi euh, mu gën a fës ci li nga xam ne moom mooy actualité bi xam naa foofu lee dàmbo bu baax a baax ni ki noonu ci kanam tuuti li lancement bi la rek film bi ñëwagul ndax am na waxtaan wu yaatu yaatu boo xamante ne nii war na dox ci digg Mbagnon Aidara ak Dame Mbodj yëpp participer ci loolu aussi ci ponk yi nga xamante ne nii ñeel na actualité bi ca kanam tuuti dinañ ci ñëwaat mais léegi-léegi dañuy bàyyi Oustaz Abdoulo mu def li nga xam ne moom mooy waxtaanu guddi ajumaam ñeel li nga xamante ni moom mooy yërmaande suñu borom bi subhanahu wa asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah Mouhamed wax na alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah bi ni'matihi tatimu salihat wa salaatu wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Euh, ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziyaara ñëpp di baalu xàq ñëpp di baalu xàq ñëpp di wax yàlla ñu yàlla boole jéggal te nanguñu suñu jaamu yàlla ci daraja sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa waaye tamit di ziyaara suñu kilifa diine yi tamit dina baalu xàq dina ñaanal yàlla kàttanal te ci daraja sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa euh, Muhammad comme ni nga waxee léegi nga xamante ni ne te yàlla ñëpp xam na ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mooy xafuur mooy rahim yàlla mooy jéggale waaye tamit mooy ko yërëm boo demee ci alquran sax boo xool lu mu tijjee mooy moo ne bismillahi rahmaani rahim boo xam ne bismillahi mooy yaa ngi tàmbalee si nga xam ne mooy sa turu borom subhanahu wa taala rahmaani yàlla mi nga xam ne mooy xéewale bépp mindeef ci àdduna bàyyiwul kenn bépp mbindeef ci àdduna yàlla mu neex waaye rahim mooy yërëm képp ku ko sopp ci àlaxira kon fa tabaarakallaahu ñu nekk ci li nga xamante mooy weer bi nga xamante ne mooy yërmande yàlla nag ne joxoon na leen cadeau goo xamante ne mooy koo xam ne cadeau gu riche goo ko toppee seen mbir dana baax ci fii ak fële mooy lan yun salaay salaam mooy ki nga xamante ne mooy laqad jaakum rasul min anfusikum azizin alayhi ma harisun alaykum bil mu'minina raufur rahimun koo xamante ni ku am ñeewantu lu ci julliti moom yun salaay salaam daal wax ne inama rahmatum muhdaat man kat benn cadeau la nga cadeau la boo xamante ni yàlla daf maa wàcc seen i kon mooy koo nga xamante ni moom la ñu roy ci fa tabarakallahu mooy ci weeru koor nga xamante moom la ko yàlla jox jox ko ànd ak li nga xamante ne mooy alquranu karim ndax kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min xablikum lu tax laalakum tattaqun xamul tax laalakum tattaqun mooy lan laalakum tattaqun boo xoolee mu fassiruna yi nga xamante ni ñoo koy teqi dañoo laalakum tattaqun pour nga bàyyi xel yàlla wax pour nga ragal ko de waaw am ñoo xam ragal yàlla mais pour nga bàyyi xel yàlla laalakum tattaqun ndax koor yàlla koo farataal ci yént bi comme ni ko xam ne kutiba aleykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum yàlla na nu mu la ko farataal noonu laa ko farataal njëkk ndax koor dafay defar doomu aadama koor yëngani si boppam dafay jël doomu aadama fekkoon ay cëram yoo xamante ni dafa lompoñoon da koy lomparñi maam dafay fekkul loof mu lomparñi ko koor dafay xamoon ku feebar mu suwaaño ko faj ko mu ndax koor rek mën moo mel noonu loolu yéen ci yàlla ba xam ne naan su tasuuxu lakum woor leen pour ngeen wér ndax woor ngëneel gi ci nekk xamu tax xam nga ñam bi nga xamante ne day dajaloo ci doomu aadama di dajal tam yàgg mën na ko jox feebar na ñam maam nga jéem nga yëkk ndékki boo ndékki gis benn gàtt la lekk fi gerte caaf nga boole dugal lu ne nga boole ko jaxase dugal si biir bu yàggee mën na laa jox mbalu maa jeex na man loolu noonu mën na laa sonal mais imagine sentir yow ba nga nekk avant ngay nekk ci koor gi ak ba nga nekk ci biir koor gi nan sa yaram xool sa biir yaram. da ngay fiix kon loolu mooy suumu tasbahu lakum wóor leen ngeen ànd ak wér te woor nag gis nga dafa am ngëneel yoo xamante nan la tudd mooy ramdaan xam nga boo déggee naa ramadaan mhm. ramdaan boo ko déggee mooy ramdaan hmm? mooy ramadaan ah, non non pas <laughs> kooku yàgg fi dugal waaye doxuma ko ah yaa ne Ramadan la oustaz non non. ah oustaz Ramadan la la xam nga yooyu. léegi luy Ramadan. xam nga loolu mos naa koo wax keroog bi nga xamante ni Thione Seck génn àdduna. Mm. wax naa ko fi. moom soo nee na ci weeru koor la sukkandiku. waaw mais waxoon naa ko fi waxoon naa lu tax ne mu tuddee moom waxul ne Ramadan mooy moom dafa ne dafa raam. ba daan li mu bëgg raam ndànk par rapport la ma bëgg a wax. Mm. leer na. Mm. voilà. Mm-hmm. dëgg la Diallo Diallo leer na. léegi loolu. maam raw naa bu ko déggee ci yor koor mooy li nga xam dafay lakk bàkkaar hmm. mooy loo xam ne koy lakk ba mu mel ni doomu taal mu ngi mel ni nga teg benn euh, nu nga ko waxee benn ay ay mbalit hmm. nga taal ko nu ngi koy taalee ba muy lakk bu jeex tàkk nekk dóom koor noonu lay def ci nit dafay lakk bàkkaar gi ne ci doomu aadama set wecc hmm. dafay doomu aadama bàkkaar ba set wecc léegi nag yàlla suñu borom subhaana taala doomu aadama ndax doomu aadama li ki gën a sonal mooy bakkanam bëri na koo xamante ne dafa topp bànneexu bakkenam ba fàttal la yàlla sant. bëri na koo xam ne bakkan bakkanam moo ko dugg ci lu warut dugg moo tax bakken googu mooy laalakum tattaqun pour nga bàyyi xel yàlla ndax yàlla ba muy créer doomu aadama dajale ko ci seen benn ruq maam bu comme mel nii ne alastu bi rabbikum nee na xaaloo balaa ko ku nekk da ngaa sàmm kóllëre mooy aw foofu bi nag di inaan kaana masuula yàlla nee na sàmmal kóllëre googu ndax bis nañoo daan la ko laaj léegi nag yàlla ba ñu bindee noonu. ku cër gu nekk dalaa laaj ne ne yow yaay kan nga ne ko man damaay loxo mu ne man club bi ni mooy kam ku nekk mu laaj la nga tontu ko mais nee ba toll ci bakken na ko yow bakken yaay kam ne ko yaay yàlla may man bakken na ko bakken yow yaay kan mu ne ko yow yaay yàlla man maay bakken yàlla jël bakken lakk ko ba génnaat ko teg ko na ko bakken yaay kam mu ko yow yaay yàlla man maay man maay bakken yàlla jël bakkan ñu jàpp ko dóor lu ko. dóor ko dóor yu métti xel ko na ko bakkan yaakaar mu ne ko yaay bakkan man maa yàlla. est-ce que bakkan du naqar yi ñu ko tegee moo tax mu sonal ñu. non déglu rek yéen yaa ngi dégg. yàlla jël bakkan xam nga ko mu jël ndax dafa jël bakkan ko xiifal ko semaine bakkan lekkul de dara lekkul naanu mu xiif loolu lompañ toog Mm-hmm. yàlla jàkkaaroo na ko bakkan yaay ko mu ne ko yow yaay bakkan yow yàlla man maay jàmm bu gën a xew. Mm-hmm. moo tax yàlla sabab ñu wor moo tax mun a bakkan dafa nekk xale boo xam ne mu lu di contrôler bakkan dafa mel ne xale. Mm-hmm. foog nga koy orienté ci boppam ci li nga bëgg mais boo ko toppee ci lu mu bëgg rek moom la lor la. an nafsu kat tifli in tahminu sabba ala xubbi ridaai wa in taftihu yanfatim mën a bakkee dafa nekk xale goo xamante ni bis boo ko bàyyi bu dox si ay mission sooy bopp rek bàyyi ko sa bopp rek mën na laa duggoon foo lu neexut wax yàlla ne koor gi ma leen sant nag pour nga def laalakum tattaxuun pour ngeen bàyyi ma xel bàyyi xel yàlla nag mooy lan bu ci njëkk mooy koor boo ci nekkee li njëkk mooy man kaan yuminu billah wa yawmil axira fa yaqul xayran aw liyasmut mooy nga fexe carrément góorgóorlu sa làmmiñ bi nga se wax ci lu baax fu yiw nga fexe koo tàbbal sa làmmiñ bañ cee dugg ci safaan ndax koor ànd ak jëw koor ànd ak werante koor ànd ak xas gor koor ànd ak wax ña wax ju kàddu goo xamante ne boo ko waxee la cay la la cay fekk kenn xamul mu toll lu ci njëkk mooy nag sa làmmiñ bi noo ciy génn nekk yiw boo xamante ne kat dana la yokkal sa ngëneel ci weeru koor bu ci njëkk mooy mooy yërmande gi nga xamante ni moom la yàlla wàcc seen biir mooy ngeen yërmande yow li nga am te sa morom amul ko nga dimbali ko ci lu am ndax nit ki kat du mu am la mën a dimbale doomu aadama at wa taawunu alal birri wa taqwa yàlla ne ni ngeen dimbalante ci baax wa taawunu alal birri wa taqwa ngeen dimbalante ci lu baax ci nit bu baax loolu mooy lan birri googu mooy lan birri dafa yaatu wa taawunu alal birri mooy ki nga xamante ni dend nga ak moom nga yàlla dimbali na la nga waroon préparé ci weeru ko préparé ko ba mat sëkk fexeel ne am na ku nekk sa pegg koo xamante ne amu ko nga fexe ko dimbali ca la nga am mhm. wa taawunu alal birri wa taqwa nga dimbali ko ci loolu dimbali ko ci nga xamante ne moom amu ko te wër na am nga ba ba bu wër na am nga ba am loo denc yàlla ne génn ci loolu ndax man naa tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbu yàlla ne boo leen joxe da ngeen joxe li ngeen gën a bëgg te booy joxe doomu aadama jox ko li nga xam ne moom nga dépenson ndax lu tax ndax yàlla daf ñoo xam xam doomu aadama xam na ne àdduna gi duñ fi sax te liñ fiy liggéey lu mu bëri bëri bëri duñ ko mën a fayoo ndax mooy alaaxira yàlla ne bu xaar xamante ni jërëjëf ki xam moom ngay def maa laa jërëjëf wala mbedd mi naan yow li def baax na xaaral ba ëllëg su ma la fay rek nga kontaan kon yërmande ko dañ ko war a mën tàbbal suñu biir dimbalante wa taawunu di dimbalante boo am ndox boo xam ne sa morom mu jigli amu ko nga dimbali ko ci yéen salaay salaam ni ngeen dimbali sa mbokkum jullit donte sax ndog dafa jot ngeen toog ci benn bërëb nga yor benn tànda ba nee na xaar ko nga séddale ko jox ko doom sa morom doom aadama mu lekk ko ci loolu tamit ci yërmande la loolu ci yërmande loolu ci mbaax la bi ci njëkk mooy ci yërmande yàlla bi nga xamante ni mooy lu ma xon sànq ndax yàlla gis nga Mouhamed mhm. yënga ne fii may toog yow wax a yow xaali yan jamono gi maa waxe yow nii amul bisu alxames bu jot wala bisu lundi bu jot lu dul doomu aadama jëf jëf bu mus a jëf ci saison ci semaine lépp dañu jël dossier bi moo xam lu mu mën a doon ñu jébbal ko ki nga xam mooy yonent bi salaay salaam lépp lu mu mën a def ci semaine moo xam mbaax gi ci mën a def mbaax gi ci mën a def wala safaan gi ci mën a def lépp dañ koy dajale ci benn papier jébbal ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ne yow mii nag da bokk ci yi nga xamante aawuna alal birri dañuy def lu baax am yërmande ci xeet bi nga xamante ndax yu saay sana irhamu man fi ardi yarhamu man fi sama na ngeen yërëm ñi nga xam ñoo ngeen féete suuf yaa ca kaw man leen a yërëm nga bokk xeet ci li nga xam moom la yàlla wërsëla gële am ñeewante ñoom ak cofeel ci ñoom tey bokk ñoom li nga xamante ne mooy bànneex bi tey jëflante ñi nga xam mooy baax loolu ci bopp bu nga jébal yéen ci yéen ah sama xeet bi sama diw sàngam be kontaan naa ci moom kii de lii mu def nii de yàlla na ko yàlla gën a fulani yàlla ko fi yàlla gën a barkeel ñaan googu yéen si bi dala ñaan loolu xéwal la bu fekkee ne da ngaa def safaan gi tamit noonu lay naan ah, yàlla kii de xëy na xam naa daa juum lii mu def nii njuumte la waaye yàlla jéggul ko xëy na bu ëllëgee semaine bii doo ko def moo tax altine gu ne ak alxames gu ne lépp loo xamante ne rapport boo xamante lépp boo xam def na ko dañ koy def benn rapport jox ko yonent yàlla kon julit gu ne war ngaa mën a bañ a ki nga xamante mu bi ndax yàlla nee na mooy kaddu gi nga xam moom laa leen jox ndax yàlla nee na ko bu fekkoon ne yërmande gi nga xam moom laa jiital da ngay fayantoog mhm. ma jiital ci yow def ko ci yow ba mu jeex tàkk ba li la a def rek da nga koy jéem a toloore mhm. da nga koy muñal da nga koy muñal ndax mhm. fas biir sabran jamilan ndax muñ ko muñ ko gën a rafet boo demee ba mën a wax moom nga téye bopp waaw mooy inna allaha maa sabirin ndax yàlla ne bu fekkoon dama am équipe nationale ba may far foofu laay far ci muñkat yi tey yàlla ne ko fekkoon ni mi ñu fekkoon ni yërmande bu ma dugal ci yow fu ma deful woon ci yow kon saa bu ñu la defee da ngay dal seen kaw lu ñëw da ngay ñëw fayantoo waaye fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galizan qalbi lan wa saawir fi l amri fa ida azamta fatawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin bu na wa taawuna ala bir wa taqwa taqwa gi mooy lan nañ jàng alquran di wéetlu ko ak moom li cheikhul xadim ànd ak Habib wa Khalili nee na li nga xamante ne man sama fiyaat dëgg mooy lan mooy alquran sama soppi gi may wéetulu ko mooy alquran su ma demee ba wéet ba yaakaar ne ñëpp dañ maa ba am naa lu may wéetulu ko mooy alquran te ji nga dafa am benn ci xasi sëñ Tuubaa dafa am benn wax ju mu wax ju wax joo xamante ni julli gu ne war nga cee bàyyi xel gis nga ba muy naan watarku nal kaziba yaa ixwaani afdalu min tilawati alqurani loolu dafa dem du yéeme la mooy da ngay gis koo xamante ni journem bi yëpp ci weeru koor wala du weeru koor fen rek la koy dëkkal te nag dafay wër di fen journée bi ba pare ñëw bu nit ñi toogee muy ngisal teg alquran naan day jàng alquran naan day jàng alquran te neen jullit la te boo taxawee ne noo ko jullit mu defante ko yow ba bësat ba mu leer nañ. Mm-hmm. mu ne jamono gi ngay taxaw di fen nee na fen googu nga bàyyi nga bàyyi fen. yow mii nga xam ne yow jullit yow nga taxaw ne bàyyi naa ko définitivement dootuma ko defati nee na moo gën foofu kanaa da ngay taxaw di jàng alquran mm-hmm. wa tarkuna alkadiba ya ixwaani afdalu min mm-hmm. mu ne nag bu fekkee ne yow nga xamante nag la wa taawal ala birri wa taqwa taqwa gi ba nee na bëri na koo xam ne qaratumul quran walam taamalu na bëri na koo xamante ni taxaw na fii ne jàng alquran dinañ jàng alquran dinañ def nangam ci alquran te gëmul alquran te la alquran santaane nekku ca. alquran mu la teraanga ko dee ko bokk ak nga xam ne mooy sa mbokk jullit. ndax yéen salaay salaam bala ngaa tabax kër xoolal dëkkandoo bi nga xamante ni yéen bokk diine bokk pas-pas bokk gëm-gëm nga doog a tabax fi nga xamante mooy euh, fi nga war tax sa dëkkuwaay ak jaar xam na daal xoolal sa dëkkandoo ba pare nga xam ne kii bala ngaa tabax da nga ne kii yéen ñaar kat bokk ngeen li nga xam mooy pas-pas sa gëm-gëm. Mm-hmm. ndax ñoo ñu wax loolu. ndax mu ne koo bokkut ak gëm-gëm mën naa laa soppi sa biir gëm-gëm ci gëm-gëmam ndax inna tibaa tasriqu ala tibaa nee na jukko dafay sàcc morom jukkom bëri na koo xamante ni nekk na ci gox ku baax doon def lu baax am koo xamante ni ñoo bokk benn dëkk mu dëkk benn maam comme Dakar du ma tudd sa benn cité cité boo xamante ni ñoom xamuñu ni sarax xamuñu ñuy julli xamuñu nii noonu nangam ñu dëkk ak ñoom mu dem ba lan nekkoon ca moom ay waajur sax bu ñu ko seet ne ko ah yow sax da ngaa mujjee soppeeku de. almadi am na jàkk lañ la xamoon dafa ma ñëw nii rek ah am na jàkka lañ la xamee woon yow du nekkatu ci yow kat social la ñu xamoon def lu baax yow wax lu baax kenn daaw lu jug si jàkk waaye li kenn dematoo fenn ndax fa mu dëkk ci boppam ñoo ko soppi ndax ñooñu xamuñu loolu tey boo noddee sax am na ñoo xam ne tubaab yi ñuul yoo xam ne sax Sénégal naa da ngeen da ngeen déranger nodd ñemoo jël lan bu fekkee da ngay génne sax di def lu baax ñu naan téye sa xaaj ñu la ko ëppale foofu ñoo fi nekk. mais oustaz des fois tamit dañuy bëgg jël suñu jaamu yàlla di koy forcer ñëpp ak ki dafa ne almadi am na kër gu ma doon visité pour dëkk fa borom kër dafa def R plus 5 def ci collo bi euh, jàq mu ne këram moom chaque instant dañuy julli foofu noonu kenn fa teg musique te bu ñu noddee ne fa dem dañuy dem julli jullit yi la koy loué donc finalement est-ce que du nekk dictature. ci dictature kon dafa bëgg lu baax rek. forcé wu leen ba tey. Hmm. te moom dafa teg charte ba pare dafa teg charte jullit la koy luwee te heure jumaa ku mu fekk ci kër da nga dem julli la teg parce que këram loolu dictature la non ci kër loolu kañ ku ñëw a julli yaay dictature bu la neexee ba par exemple bu nekkee bon ñu parce que dina nangam waaw nen ay julli rek dafay luwee je doute de la légalité mais quant à nag def sa ko jumaa moom sa ko mu ngi mel ne nga dugg nga dugg bi nga dugg ñu naan xaaral ma te aji mbégte koor gi ku fi ñëw ñëpp nañu muur ba muur doo toog ci plateau bi kon xam nga ne ba muuroo doo toog ci plateau bi kon loolu ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax nit ki na ngeen xool ñi nga xamante ni ñoom bokk ngom jukko ki nga bokk ngom jukko ndax loolu da ci am solo ndax fa tabaarakallaahu dañoo nekk ci wéeru yërmande te wéeru yërmande nag kat boo bëggee ñi bokk ñi nga xamante ne radiyallahu anhu wa araduhu anhu zalika liman xasha rabbahu mm-hmm. da ngay kat bokk ci ñi nga xamante ñi bokk ci jaamu yàlla yi nga xamante ne ñooy dépensé alal ci jaamu yàlla yi ndax li yàlla wax nag jaam man sa sa fa laay xoolee sama sama bopp maa ngi koy xool ci jaam bi mm-hmm. ndax jaam bi li muy dimbalantee waaw ndax dimbali kat dafa bokk euh, ci lan mm-hmm. wax dëgg yàlla sarax ci ci la bokk tamit dañoo wekk ci weer boo xamante loo ci def rek yàlla ni ci fulandi bu fekkee ne am na loo xam ne yàlla wërsëgal nga ni génn tamit sarax ndax sarax dafa baax ci doomu aadama ndax sarax dafay guddal fan sarax dafay barkeel doomu aadama sarax tamit dafay yaatal li nga xamante ne mooy xéwal dafay yaatal bàmmeel sarax na yaatu na tey jii nga xëy sa mbokkum julli sa jàkkaarloo saafante moom nag asalaamaaleykum ne waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh nga reetaan mu reetaan loolu sarax la wallaay basaasatul wajhi sadaqatun imaatatu adaa ani tariqati sadaqatun xawlun maarufun sadaqatun wax joo boo ko waxee sax nit ki jariñu ci wax xam ne boo ko waxee nit ki jariñu ci loolu sarax la mhm. te buñ ko xeeb surtout maa ñu weer bi mhm. boo xamante ne fa tabarakallah ku xamu dara sax nga ndap na bi tuuti ci alquran mhm. bu fekkee ne sax mënoo jàng alquran nga toog fu ñuy jàngee alquran wala nga toog fa tabarakallah fu ñuy tafsiree alquranu karim nga ndap na ci ndax lu tax ndax weer bi ci la alquranu karim wàccoon ci lañ fekkoon ci xunt ba xaaru xiraa salaay fa la ko jibril alayhi salaatu fa naan ko iqra iqra na bañ ko waxee yéen tamit ñëpp la si lañ am problème ñu xam ne kon ku nekk war ngaa jàng liif jullit gu ne u maata yasar minal quraan na nga jàng kémta laay kàttan loo xam ne mën nga ko ci alquran surtout ci weer bi nga xamante ne bu ñu nee anniversaire alquran mooy ci weer bi te weer boo xamante ni tam lépp loo ci def yàlla fulu ni ko war nga cee mën a profité ndax weer bi weeru dabaatal la ndax 11 mois nga nekk ci dëkk di tooñ yàlla. lu nekk nga def ko ci war nga amoon a profité kat pour jéggalu yàlla. jërëjëf. ndax istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursil samaa aleykum midraara wa yumdidkum bi amwaali wa baniin wa yaj'al lakum jannaati wa yaj'al anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara. jërëjëf benn laaj pour oustaz. ayca très rapidement euh, ndax dafa am benn débat bu ñu installé récemment ci réseaux sociaux yi di wax ni jigéen ñi dañuy nekk di leen exploité ndax dañuy woor ba ngoon jot. di continuer di togg pour defar go defaral góor ñi nga xamante ne dañuy tegle seen tànk ma doon laaj yiw bi nekk ci yiw bi nekk ah togg jox nit ki yiw bu bari dama lay laaj ni am na dama laajte de dama laajte mais lu waay laaj dafa nekk ci xel loolu dama laajte yiw ci nekk amet bu ma jugé quand même dama laajte jugé wu la dama ne góor ñi lay seetaan ñu bu bari la ñun ñaan ñëpp oustaz damay laajte waaw loolu yiw bu rëy la xam yu saay saay ne sayyidul qawmi xaadimuhum mel ne kuy sang nit ñi jotaay gu ne sang goo fi gis ku naan kii mooy sang gi bu ñu ne mooy bon ba nee na bon bi mooy sangal bon bii toog ñëw di service ni jox leen ñu lekk ñu naan nee na kooku mooy sang bi waaye jàpp ñu kuy tegalee tànk war a sol costume war a du boss bi nee na kooku bi dëgg <laughs> non man man xam nga lu ma métti mais eh, yi xam nga lu ñuy fàtte Euh, boo nekkee ci kër gi di togg supposons ne da ngaa sonnee yaay mais waa ji fayeeku weer xaalisam du ci lekk cent franc. loolu force la du ci jënd daal cent franc. togg boobu da nga fàttali ne force la. du force de du force de ah, yéen force de ñu yor mais ñun force waruñu togg. du force ah bon waaw. oustaz l'islam dafa wax. force yéen a ñuy ah, def yéen a ñuy def léegi kuy togg ku góor yéen a ñuy def góor gi moo lay yor ba pare togg. dafa wax ku jigéen boo may ñëw labase boo la bëgg te yàlla tax dama la bëgg takk. dëkk ak yow da waxuma euh, dama la bëgg takk. pour doon sama mbindaar doon sama mbindaar am na ñoo xam ne dama la bëgg takk pour nga jural ma signé woo leen jur signé woo leen pour ngay nekk di nekk ay mbindaaram da nga ko gis bëgg ko te yàlla rek a tax nga bëgg ak moom effectivement am na dañuy takk. waaw léegi ma ne boo togg kuy togg ku góor ki mooy togg. kenn ku ko góor mooy togg mais yaa dégg. kon ku togg non il faut mu am ku togg moom. si li moom duñ ko def il faut mu am ku togg léegi yow boo togg. yaa ko léegi kuy togg ki ko yoon wuti mooy ñëw togg. mais yow boo sonnee keesoo. des fois nga plaisir pour le faire tout ça nga ne ko on y va acheter à manger. mais léegi soo li muy wax nii moo tax sëy barkeel la tuñ quoi. barkeel li muy wax nii. moo tax sëy barkeel la tuñ on va chercher à manger. voilà yooyu la loolu moo tax sëy barkeel la tuñ. alors que mag ñi lépp ñoom ñoo ko doon def. tu as mangé. waaw xanaa d' accord d' accord moom ci li mu wax nii xanaa moom. li moom d' ci moom. comment tu as mangé. pour faire plaisir à sa famille. mun na jël di togg te sax da gis jigéen ñoo xamante ni mun nañ xëy suba ba ngoon jot ci waaj sonalu leen. sonalu leen mais Ahmed bu taxawee nag ne force la ah non du force. non non non xam nga yéen am ngeen droit. ñu def ko avec plaisir amul problème man waxuma la man de man sama doom man la man sama kër force la sama jabar mooy toogal force non yow xam nga yow la man sama doom bu góor. non sérieux wala góor dama am ndogal ci yow. boo takkee jabar te ca kër ga moom du force mooy toog. ma dem dagg lépp. non non dictature la am mais jigéen kay dañ la dagg sa jëkkër la pour nga satisfaire la nag. li nga tax sëy amatul barke barke bi loolu barke bi naw na. idée yi mi ngi dawal de actuellement lii ni wax ne xam nga ñoom dañ ko woon nii rek dégg nga bu ñu ko laajee sax la man damay laaj rek mais gis nga bi noonu idée yi ah, mi ngi daw mi ngi daw actuellement gis nga génération yu mujj yi Euh, ci lii lañ leen commencé nàmpatal. wala moo tax barke ci sëy mi ngi dem yoonu te da ay góor yambar nag ay góor yambar yambar yi napp yoo xam ne yambar napp góor yu yambar lépp yambar yi nga xam te nii balaa balaa balaa ngay seeti day kay si sa nopp bi ne bu ñu demee kër ga bala yambar ayca tàggatoo waale laataa ñu dem xoole ji ndogu askan wi ak presse à fraîche ayca waaw fa tabarakallah Mouhamadou kontaanaat bu baax a baax di santaat yàlla bu baax de yàlla ma ñu kattan nga xamante ni ndax olof Njaay ñaan bu nangoo sonal borom te mooy dëgg mhm. képp koo xamante ni yàlla di weeru koor xel kon nangu na sa ñaan kon li nga war a def mooy sant yàlla mhm. kon doomu aadama dafa war a chaque jour di sant suñu borom subhanahu wa ndax la mooy tëjee rek mooy yàlla dafa lii dama lisaanu zakir wa qalbu shakir wa jasadin ala bala in sabir nee na ñett yi bëgg naa ko ci doomu aadama ba ñu naan bëgg na bëgg naa mooy lan lisaanu zakir laa mi ngoo xam ne fu mu toll daf may sant atahaddasu nag bi ni'matillahi bi nga xamante ni yàlla dafa noonu ko da nga ko war a taxaw di sant kon nag mooy lan di sant yàlla fa am wama bi ni'mati rabbika fa haddis xéewal ba la yàlla defal dee ko sant kon lii sant yàlla bu baax a baax mu ne lisaanu zakir wa qalbu shakir ak xol boo xamoon foo fekk day yëg yàlla xol boo ndax nee na yàlla yàlla amul fenn foo xamante ne xajoo na pour fanaan fa du jàkka du néeg du leneen du mhm. amul bildi amul fenn rek la xaj mooy xool xol boo xam ne dafa set xool bu set wecc ndax yow ma laa yan fax maalun wala banun illa man atallah bi qalbi salim mooy nag mun ne akkan mu ne wa jasadan ala balaa in sabir mooy yaram joo xamante ni saa yi ko tegee coono rek mu ne alhamdulillahi rabbil alamin mel ni kan yénti yàlla ki nga xamante ne fataw ayuba jafe-jafe bi ko yàlla tegoon lépp nan mooy dafa jël lépp

ndax yib sallallahu alayhi wasallam neen lu ngay naafile ak kii lu muy joxe weeru koor ak kii lu muy jàng alquran ak kii lu muy génne sarax kii luy dem màkk neen yàlla rek la la mën a dugalee mooy lan illa an yataxammada allahu bi rahmatihi mooy yàmbal sëmbatëruñ ci yërmandeem in uridu illa lislaha ma stataatu wa ma tawfiqa illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mu nekkoon oustaz Abdou Lo ci biir waxtaanam euh, am na ponk woo xam ne am na ci solo Euh, moo tax euh, ndogu askan wi dañuy dem xooli ji ñi nga xam ne ñu ngi ci koñ yi ak bopp koñ yi euh, di dimbali ñi nga xamante ne nii amuñu ndog wala ñu fay romb sax heure ndog fekk leen ci yoon bi soxna nabu ngoom lañ ciy àndal ak li nga xamante ne nii moom mooy suñu partenaire officiel lu ndogu askan wi di pressé à fraîche mbaa ngeen ko mooy lu ngeen di xaar tax gars yi ndigal yaa fi leer si bopp di la joxaat sa wàccuwaay waaye tamit di nuyu rek uh, mbokkum jullit yooyee nga xam ne ñu ngi foofee ca biir plateau boobee uh, di leen wax ne ba tey rek seen émission ndogo askan wi uh, mu ngi fii fi nga xam ne nag moom di Colobane ndax bi gis nga ne gox-goxaan bu ne rek ñu ngi fay daal di teew di jël li nga xam ne moom la citoyen sénégalais yi di def di joxe ndogu di ko ci mbedd yi tey nag ñu ngi fi nga xam ne nag moom moo di Colobane tey ñoom ñoo daal di aaye dañuy bàyyi rek ñu wax ki nga xam ne nag moom moo jiitee Euh, initiative bu nice bi moom it ñu daal di ko laaj xalaatam lu war a leen mel ak quelque rek ci ñi nga xam ne ñoo fi daal di teew. yii initiative bi initiative bu rafet la et puis initiative la bu suñu borom gërëm ndax ay at yi at at at ngi nii xale yi ñu ngi koy def man presque presque mën naa wax ne presque 15 euh, ans ngi nii ñoom ñoo may jox café bi nga xam ne man moom laay dogoo sama kër. man daal li ma mën a xayma parce que man ba ma ko dalee def moom war na ay mat ay 13 ans man rek laa loo de suñuy grand lañu woon mun naa wax ne suñuy pap la woon après suñuy grand te jii nii ñun ñoo ñëw barki alxuraan initiative bi ñun suñuy grand daal lañ fi fekk ñoom ñoo ko tàmbali ñun ñu ñëw topp si parce que loo gis tamit tàmbali boo gis tamit day am ko ko jiital ñun suñu grand lañ fekk ñu nekk ci waar bi ay at daanaka lii ay vingt ans plus de vingt ans mi ngi nii tegu ñu ngi ci ba léegi xàddiwuñu mosu ñoo bàyyi barki alxuraanu yàlla. donc mu nekk initiative bu rafet ndax nit woor ba ngoon jot nga yëkkati jox ko mburu wala nga jox ko kafe bu naan kooku tiyaaba googu tiyaaba gi ci nekk. loolu dafa am solo trop trop trop ñoom nag dafa mel ni xam nañ loolu moo tax chaque année weeru koor ñoom dañuy defar ay café di ko joxe ak ay ak di ko distribuer waaw ndogu bi waaw comme ni ñu comme ni yaay joxe ndogu rek tàndarma waaw mbur ak beurre mbur ak chocolat waaw ak café ak sexaw ak bisaab ndox bu sedd ah ak jus am na yëpp bilaay walaay. waaw loolu moom mooy li mu la wax rek xam nga xalaat bi moom dafa rafet lii ku ko ku ko ku ñëpp ko rafetlu parce que boo fi boo fi toogee ba si kanam di nga gis ñeneen ñi euh, mag ñi jigéen ñi góor ñi ñëpp ku ci nekk da nga indi sa da nga indi sa sa cafetière pour ñu defal la ci kafe pour nga yóbbu sa kër donc loolu li muy wane ne rek xale yi ñi ngi xool lu baax di ko def mais tey tamit ñi ngi gis lu baax di ko roy ndax xam nga lii ñi leen initier seen kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy seen guide ñi nga xam ne ñoom lañ ñoom ñoo leen initier lii ñoom tamit dañ leen di ñaanal ndax initiative bu rafet la parce que ñoom moom la ñuy roy Mouhamed Ndoye tey lii lañ leen indiloon ak ndogu askan wi fii ci biir uh, Colobane gis nga nag bi ndogu gi jotee nit ñi jóge nañu partout uh, daal di ñëw jël si li nga xam ne moom moo di ndogu li waaye gis nga ñoom it niñ doon distribuer ndogu yi ci biir car rapide yeeg taxi yeeg oto yi uh, tey lii lañ leen indiloon di leen jox dig daje comme ça su ne rek nee naa la tous les jours ndogu askan wi mu ngi seen i gox ku ne rek mën naa ko bett say su ne daal di ñëw ci yow di إن شاء الله Sans conteste, l'une des marques favorites des Sénégalais, le groupe Kiren a su s'installer dans les habitudes de consommation de la population sénégalaise. Depuis maintenant 20 ans, une eau jaillit de la source souterraine du village de Kiren. Cette source, d'une profondeur de 100 sous. merci beaucoup retour sur le plateau ay ko mënoon a dégg ci kaw li waykat bi doon wax xaaju guddi bu ñu toogoon ba mu jékki-jékki rek mu doon bëccëg dina xumb lool maa ngi jaajëfal Nabou Ngom bu baax a baax di jaajëfal waa Precia Fresh euh, ci gunge bi ñuy gunge ci li nga xamante ne nii moom mooy ndogu askan wi euh, dañuy daal di ànd ak Babacar Kébé daal di na teew ci jotaayu waxtaan wi euh, le temps muy noppi rek daam am naa ñaari laaj par rapport ak li nga xam ne oustaz doon na ko waxtaane ak ndogu askan wi muy solidarité ak yërmande suñu borom bi moo ne suñu njiiti fii ci Afrique Euh, souvent ñoom dañuy yor kàttan goo xam ne daanaka ay buur lañ mais yërmande ci askan wi daal ak solidarité jëmale ci askan wi dafay ñàkk lan moo lan moo waral loolu Afrique. waaw loolu daal li ko waral mooy pour ne pas dire Sénégal nag. Euh, non du Sénégal kese. Euh, président yi fi nekk ci sunu sous région bi nekkaluñ fi askan wi maanaam duñ suñuy président président ñi leen fi teg lañ. maanaam ah, nekkuñu fi nekkuñu fi pour intérêt askan wi. maanaam li ñuy doxal du intérêt askan wi bu ñu bis bu ñu amee président yu ñu fi nekkal. maanaam di doxal ci suñu intérêt li nu moom ñun ñëpp ñu ñoŋal ko ñoom un leadership très fort mais boo xam dañuy dañ koy teg ci vraiment euh, yërëm askan yi ñuy jiite ba noppi delloo leen li ñu moom am une gouvernance éthique boo xam ne kenn du saax-saaxee alalu réew mi benn oligarchie téye alalu réew mi ŋànk ko lépp seer nit ñi buñ liggéeyee duñ am dara ñoom rek ñuy tabax seen i immeuble di tabax seeni i euh, seen i château di dugg ci ay oto yu bakkana yu jar yi deux cent millions di nekk ci lu leen neex ñoom ak seen njaboot seen njaboot duñ fi fajoo duñ fi jànge yooyu xeetu njiit yooyu bis bu jeexee Afrique ñu amoon ñu am njiit yu baax yu yërëm seen askan rek Afrique dem loolu mooy jafe-jafe donc première yërmande bi ñu war a am mooy ñun ñu yërëm suñu bopp ñun askan yi xam lu yërëm suñu bopp tànn njiit yu ñu yërëm tànn njiit ñu nuru mais ñooñu nu ñuy mel daam. wala non njiitu yu nuru mooy nga tànn ñoo xam ne bu ñu ñëwee. Mhm. noonu tubaab yi naa na ñoom seen xel ba ñuy bañ ba nekkal fi intérêt français yi di signé ay contrat pour France. bu dee Sénégal ak Côte d'Ivoire presque pour jël ces deux exemples di signé ay contrat yoo xam ne pour France la di signé euh, di indi ay entreprise yu daanu ca France ñu indi leen fii dooleel leen pour ñu rey suñuy entreprise di tibb di yóbbu seenum réew pour suqal leen ñoom bés bu ñu amee président yoo xam si loolu daan ko fi jëlee. léegi léegi ndóol jóge fi. mais daal bu mbir mi pour man. Euh, foofu sax dafay kowe maanaam ci suñu njiit yi. mais day wàcc loolay phénomène trickle suñu bis ba jeex gis nga li ma lay wax nii. ba ci suñu biir yàlla gis nga xam te nii moom maanaam yàlla da koy may lépp. waaw mais du dimbali si. mais loolu d'accord naa yow tee yaa ngi ñëw ci niveau bi nga xam niveau individuel bi nga nekk mais xam nga réew. état moo ko yore. parce que yow à fois rek damay gis ne ah, xalab état état nga wax yow niveau micro bi nga nekk man dama nekk ci niveau macro dinaa ñëw ci loolu loolu nit ki même bu dee même bu dul dara sax yow sa diine moo la sant que sa dëkkandoo waxuma la dara bala nga ñu dem fenn sa dëkkandoo nga togg mu xeeñ ko sax da nga ko cee war a tibbal boo amee sa mbokk amul da ko war a dimbali mm. loolu moom solidarité boobu dafa war a am mm. te loolu organiser wuñ ko ñun mën nañ ko organiser suñuy réew ñun suñu réew mi mën nañ ko parce que ñun réew way ngëm lañ ñun ay musulman ak ay chrétien la ñuy defarante lu baax mhm. da ngay gis chrétiens yi ci période bi ñu joxe ndogu di nekk ci mbedd yi heure ndogu di seddale ndogu loolu ay modèle la yoo xam Sénégal gi la ngay gis musulman yi tamit seen feet jot ñu jëw bokk li ñuy li ñuy dund ak chrétien bi ñu bokkal koñ ñun loolu lañ xam mooy bu ñu naan dialogue islamo-chrétien mën leen ñun loolu dafa bokk ci sunu aada ñun noonu la ñuy dundee ñun Sénégal mooy sunu mooy sunu exception culturelle ñun Sénégal kon loolu dëgëral ko ak organiser waat ko rek moo ci des mais loolu sénégalais day bokk li mu am boo seetloo yow boo boo xew xewlee dara même bu dul xew sax nga toog a caag rek tey jii bu la sa collègue seet si woon sax da ngay bég maanaam nga ñëw ñu aña sa kër nga génne sa euh, añ yaag sa soxna sa soxna kontaan. Mhm. ñu teg table ji nit ñi lekkandoo ñëpp bis boobu mooy des yi gën a neex ci yow ci weer non non loolu ay benn benn mais ñu ëpp ci Sénégal la non non non Sénégalais li ëpp ci ñoom boo leen seetsee boo leen seetsee ñooñu dañuy kontaan Sénégalais moo bëgg partager maintenant nag li may wax man mooy Sénégalais yooyu pour ñu mën a am sax loolu ñu partager ko mu yomb ci ñoom il faut seen alal ji ci réew mi ñu ñoŋal ko ba seen liggéey ñoŋ ba ku yëngatu am dara ba suñ alal ji nga si moom la réew mi yor kenn du ko jël di koy yóbbu ci compte d'exploitation bu France. d'accord yooyu ba suñ ko defoon la ngay wax noonu day gën a yomb parce que dañuy am niveau de vie bu élevé. c'est-à-dire bien que ku ci nekk sa koom-koom day yokk ba da ngay yàkkamtee partagé. d'accord loolu loolu mais quand même sur le principe. je suis d'accord des fois gis euh, xam ne xam na euh, bu demee kër ma ñoon ay dara xaalisam di koy denc chaque jour ma ñoon ay dara reer la. <laughs> non non non moi je pense que six six ah, noonu. boo raisonné noonu mais xam naa da koy tooñ nag quoi. daam dafa doon wax lu am solo mooy. degré de conscientisation peuple yi pour ñu mën a choisir euh, njiit yi nga xamante ni ñoom ñoo adéquat pour seen ah. développement ah mais daam lool dafa mel ne nekkul lu bees jamono ji parce que gis nañ ni ci ay temps san euh, fan yi passé ci ginnaaw dama doon liir le 4 avril ñuy expliquer ni kii di almaami Abdou Khadr Ka Abdou Khadr Kan ci lañ ci 4 avril bésu 4 avril 1726 quelque chose comme ça ci lañ ko faatoon et pourtant moom dafa nekkoon njiit joo xamante ne ginnaaw bi révolution Toronto amee moom dafa nekkoon njiit bu mat Euh, ñu fexe ba teg état boo xamante ni dafa am exemple dafa joxe exemple démocratie et pourtant kooku dañ ko faat te ñi ko faat ci réew ci royaume moom lañ bokkoon parce que tout simplement dëgg bi mu daan doxal ak yoon bi mu daan doxal arrangé wul woon ñi ne xam ñi nekkoon ci royaume boobu kon ndax genre jëfin yu mel noonu euh, nekkul mooy wéy di continuer ba tey mais ci baneen exemple ak allah no cest à li mu wax nii hmm. ni mu refléter la réalité dans notre continent man su ma toogee di xool les différents pays réalité yi fa am li xew nii Sénégal euh, wutewul ak li xew ci sous-région bi ak yeneen réew yëpp exemple li bi am na léegi li ciy dooleeku rek par rapport ak moom li muy wax par rapport ak jamonoy royaume yi nga xam ni képp koo xam ne ñëw nga pour taxawal sa askan indi lu bees pour nit ñi nekk ci donkaasi gi ñi nga xam ne ñoom loolu arrangé wu leen parce que dañoo jàpp ne bu ñu partagé ñëpp bokk dootuñu am seen teraanga yan doon am ñoom li ñu bëgg mooy notre majorité bi. yow nga ñëw bokk ci oligarchie bi soo bëggee ñëw nekk ci seen biir oligarchie ba na bëgg koo yaatal léegi dañ lay dañ lay dañ lay éliminer. parce que dañuy jàpp ne yow da ñëw pour yàq seen donkaasi gi. loolu moo am ci sunu réew yi actuellement sa à dire soo seetloo ba ci sunu réew mi xëy na ci kanam daañu ci mën a gën dugg mm-hmm. mais wax discours boo xam ne àndul ak discours oligarchie boobu may wax maanaam benn minorité bu ŋànk koom-koom bi ŋànk ñi ñuy jiite réew yi ŋànk euh, avantage yi boo ca bokkee wala nga ne yow boo fa ñëwee da nga leen faa bëgg a jële wala nga bokk ci seen biir ne lii àndoo ci dama lay faagaagal maanaam képp koo xam ne yaa ngi teg discours bu bees boo xam ni réew miy doxee depuis 1960 bu dee Sénégal da nga ne da nga koy soppi delloowaat askan wi la moom mais ñi nekk ci donkaasi gi dañ naan eh kii il nañ ko jéem a rey buñ ko reyul rek dee nag parce que waa ji bis bu nu remplacé wala bis bu ñëwee bañ may ko doole ba mu yoree doole ji sunu donkaas yi gii ñu nekk da ko fiy jëlee parce que man loolu laa gëm ni tant que jógewu fi ndóol du fi jógee parce que xamul tax loolu dafay war a jóge parce que sunu alal yàlla wàccoo na ak ñun parce que yàlla jox nañu lépp lépp luy xeeti meññeef am nañ ko am nañ lépp loo xam moom la ñuy jéggaane bitim réew am nañ ko am nañ ay xale ay ndaw ñun suñu population dafa jeune former leen ci ni leen war a former rek moo ci des ba noppi ñoŋal seen alal réew mi développé mais ñooñu loolu arrangé wu leen parce que dañoo jàpp ne bis ñu tasee alal ji ñoom seen donkaase gi googu ñu nekkee dañ koy ñàkk kon képp ku am discours boo xam ne yow ci loolu nga bëgg a jëm pour que askan wi ñu delloo leen ñoom li ñu moom rek dañ naan la yow tu es un homme danger dañ lay commencé diaboliser depuis 1960 ba léegi moo moo sa am en dafa ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon fii pour les intérêts de la France ñu diaboliser Mamadou Dia parce que Mamadou Dia daf ne woon moom li mu gëm mooy gouvernance éthique maanaam képp ku jël alalu réew mi même boo nekkee ci réew mi loolu diabolisé nañ ko fa ba tey mais la mu waxoon dañul même boo nekkee ku nekk ci réew mi am fi doole boo jëlee jalgati alalu réew mi dañ lay teg ci yoon ñu daal di eh am nañ occasion comme wax na discours bi nañ dem wër fépp yàq daram ne voilà il est dangereux bu ngeen ko joxee réew mi rek. yéen seen kaw la jëm te pourtant waxul woon loolu ñoom ñëpp moo leen gën a gëm yàlla wàcc na alxuraan jaamkatu yàlla bu mag la woon gëm ni réew mi dafa war a teguwaat ci dëkk ñu ne nañ ko diaboliser ànd ak France sengoor daal di dem comploté contre moom wax ne moom moo comploté pour moom ne léegi da euh, les événements de 62 daan ne léegi moom nañ ko jiñ ni dafa bëggoon daaneel gouvernement Senghor ca lañ jaare ba tëj ko kaso ci jaay doole parce que booba ñu ngi koy diaboliser parce que discours ba yoroon arrangé wul la France ce discours souverainiste képp ku ko yore ci Afrique amul benn dirigeant Afrique bu yore un discours souverainiste mais yaa ngi joxe sànq l'exemple de Kadhafi amul ci benn kenn ku ko ci yor te jéemuñu laa rey sa réew képp ku ko yor daan la rey ci ay arm wala ñu diaboliser la wala ñu xeex la wala ñu teg la daal ndëgg sërëx yoo xam daan la ci dugal ci kàmb ge maasa la kon na i donkaas yi kon nag moo tax ma ne la aujourd'hui la balle et dans le camp des Africains dafa jot ñu taxaw ñoom africain yi xam ne lii mënta continuer ci seen i maam ba léegi ñu leen di noon ñu taxaw ni rupture dafa war a am lan mooy rupture bi mooy fal ay njiit yu bees yoo xam daañ indi xeetu gouvernance bu bees delloowaat askan wi la ñu moom li fi nekk yëpp ñu ñoŋal ko développer l'emploi des jeunes sans ñu def ci politique politicienne développer une politique sanitaire bu baax ba ku feebar doo dem bitim réew fii ngay fajoo développer une politique éducative bu baax ba daan tàggat suñu doom ci ni ñu ko bëggee ba bu ñu màggee dootuñu nekk ñoo xam ñu oyof lañ ñu neex a këf. vraiment def une révolution sur le plan économique ba dootuñu jël suñu entreprise rey leen xoolal actuellement liy xew Sénégal suñu entreprise yëpp a ngi dee. actuellement on a une économie extravertie entreprise yi li ëpp doole ci économie actuellement contrôlé tuñ ko lépp actuellement c'est c'est des entreprises étrangères mais ñun fu ñu jëm. alors que adduna bi ñëpp ñu ngi ñu bëgg a développer actuellement ñu ngi def une préférence nationale ba léegi ñun loolu dañuy bàyyi muy continuer nii rek ñu am ay njiit yoo xam nekk nekkaluñ ñu fi intérêt ay étranger lañ fi nekk hmm. loolu ba kañ ñun waruñu xeex loolu pour ñun buñ ci bénéficié wul sax suñuy sët bénéficié wu ci ñun waruñu xeex loolu ñun c'est ça le défi de notre génération loolu mooy le vrai débat aujourd'hui gis nga yi coow yi nar a dugg yëpp ci kanam yokku coow loolu lépp mooy c'est un combat pour le contrôle de cette euh, gouvernance donc du pays ku ci nekk di xool sa intérêt par rapport ak li nga gëm ñaari ñooñu di def clash choc boobu moo ñu andi li ñuy dund nii Sénégal ku ci nekk di jéem a rey sa morom. parce que loolu mooy le vrai problème bi ñuy sama ñu bëri ci ci askan wi. en tout mm. cas euh, seen njàqare mu ngi toll ci euh, naam sànq li ab sa wax mu ngi féete ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernant yi mais euh, ñi nga xamante ne nag ñoo soxla di laaj di daagaan baatu askan wi. Euh, yaa ngi wax 60 ba léegi mais daanaka ba ñu amee indépendance ba léegi ak si suñu yeneen réew yëpp même discours yi la ñuy dégg discours yi buy wuute tuuti moo ciy wuute waaye ku wax a wax a wax a wax bañ jox la rek lu discours bi wuute wuute boo xasee ba toog rek coppeeku Ablaye Wade moom demoon na fi ba ñu wax ne sax moom bu toogee moom ñun ak France moom c'est fini mais gis nañ mujjantal gi na mu mujjee Macky Sall mi moom yaakaar gi ñu am ci moom mosuñu koo am ci kenn ñeneen ñi fi des ne pratiquement même wax yi ngay dégg même kàddu yi c'est quoi le problème waaw loolu moom mën naa nangu en partie quand même que loolu am na ci parce que Abdoulaye Wade man je dis la vérité bokk na ci déception bi ma am man. ci sama parce que ñun sunu génération quand même gëmoon nañu Abdoulaye Wade mën na andi les changements rupture bi ñu doon parce que Abdoulaye Wade daf ko ñun boobu ñu ngi nekk ay étudiants fan Abdoulaye Wade d'ailleurs loolu mooy tax ci événement yi fi am mani mais nguur yi nañ muñ parce que Abdoulaye Wade bu ñu ko daan woo ab Diouf bu ko daan tëjee a tijji mais su ko daan woo ñun génération bi ko gëmoon à à nekk ay jeunes étudiants. mais dañ daan départ ku nekk sa université ñëw taxaw di ko gunge bu ko ab Diouf woowee mais parce que boobu parce que jeunesse bi toujours ki nga xam ne moom la ñuy rêvé mu mu mu changer réew mi ci moom la ñuy topp ci ginnaaw mais Abdoulaye Wade discours ba mu yoroon effectivement le destin pour l'Afrique mu wax ko ci waxaat ko ci teg vraiment benn opposition radicale bu mu amoon par rapport ak ni socialistes yi doon gérer Sénégal man doon naa xaar leneen ci Abdoulaye bi mu ñëwee c'est vrai que teg na jéego. mais bu mu ñëwee rupture bi ma doon xaar par rapport. c'est à la la ko. Euh, te ci fin bi sax la ko commencé bi mu demee ba wóor ko ni. vraiment euh, léegi. Euh, asseoir na yaakaar na ne voilà asseoir na régime est ce que ba mu ñëwee daam nga baal ma tuuti est ce que ba mu ñëwee jaak jàmmaarloowul ak benn contexte boo xamante ne bokkul parce que xam nga boo nekkee ci opposition mën nga wax lu la neex mais peut être boo ñëwee ci pouvoir réalité bi leneen lay doon d' autant plus que euh, nekkoo ci benn pays boo xamante ne dafa nekk à part en à part dans le monde. mais dafa mm. nekk ci benn organisation boo xamante ni pour nga taxaw am gëdd rawatina boo nekkee pays boo xamante ni dafa dafa ndóol dafay xaw a jafe. waaw loolu am na ñu koy wax mais xam nga lu tax loolu taxawul parce que on a vu des exemples dans le monde euh, le l'exemple de Paul Kagame est là il est en train d'opérer des changement dans son pays sans mu défier l'Occident hein wu leen euh, boo xam ni day ñëw di leen euh, di leen di leen dëkk. mais dafa jël réewum teg ko au cœur de son développement c'est-à-dire wax ne man sama réew laa laa laa teg ci kanam léegi samay intérêt réew laay xool aujourd'hui Rwanda mi ngi mi ngi dem c'est-à-dire mi ngi fi bàyyi ñun ñëpp réew yi nga xam ne yow topp di jël seen alal di ko jox ay tubaab mais moom pare na ci loolu depuis dafa ñëw def les réformes nécessaires sans mu défier leen ah c'est vrai que am na sax ay réformes yoo xam défier na un France parce que France euh, bi nga xam moom la euh, Paul Kagame teg arrangé wul France parce que dañu nit boo ko bëggee noot jàngal ko sa kàllaama gis nga nit koy jàkk làkk koy koy làkk-làkkam rek yaa ci culture boo gisee sunu soxna yi ma leen di classe toujours naan leen yéen ay tubaab yu ñuul ngeen euh, c'est parce que culture française dafa sori ci ñoom culture française boobu boo ci mënul départir toujours da ngay réfléchir comme tubaab bi sans nga yëg ko maanaam yow nekk nga tubaab te yëgoo ko maanaam mi ngi mel ni comme sa mbubb mi ñu cuub ko te yow yëgoon na cuub nañ ko mm-hmm. yaa koy sol dafa ne na meloon la mel fekk loolu moo dal sunu sunu askan c'est-à-dire que aujourd'hui euh, man li ma gëm mooy boo nekkee président bu gëm ni yow da nga war a soppi sa réew da ngay ñëw def ay changement majeur changement majeur yooyu boo koy def da ngay gëm sa bopp gëm sa réew gëm ni changement de paradigme mooy tax nga dem ci développement mais fekkente ne la nga fi fekkoon da ngay ne comme ni nga wax ne léegi li nga fiy fekk ak réalité yi mooy tax mënoo changer parce que booy changer da ngay oser mhm. boobu nag Abdoulaye Wade benn moment ci fin bi la ko doon jéem par exemple bi mu commencé diversifier la coopération France dañ ko diaboliser parce que France moom képp ku fi nekk président wax loo xam ne dangay wut beneen partenaire bu dul moom sur les secteurs stratégiques da lay diaboliser xeex la pour nga jóge fi moo tax boo gisee la junte euh, militaire bi nekk au Mali France ñu déranger ko xamul tax parce que maliens yi ma ko waxee Sénégalais yu bëri di ree gis nga Mali bu fekkente ne réussir nañ transition bi dañuy romb Sénégal buñ ba assoir les base du développement dañuy dañ da maanaam écart bi amul bi parce que suñu PIB moo gën a élevé bu Mali mais gis nga Mali actuellement transition bi ça ne veut pas dire que damay kañ ay coup d'état non mais dama wax ne suñu réussir parce que man gëm naa les civils dañu war reprendre le pouvoir mais suñu réussir la transition pas li ñu leen bëgg a defloo parce que CEDEAO li muy def France moo ko defloo Macron Emmanuel Macron moo leen teg leen leen pression pour ñu pour ñu écouter la transition parce que écouter transition xam nga mu arrangé France daf koy permettre mu teg fa ay njiit yi ko arrangé alors que militaire yi dañ ne ñun bëri nañ ay révolution yu ñu entamé def ay coup d'état mais à chaque fois dañuy dañuy dañuy parax-parax ba delloowaat nguur gi civil yi ñu nekkaat dans un cycle infernal de coup léegi bëggatuñ loolu dañu bëgg consolider l'état de droit consolider l'état de de manière générale ba mu dëgër ñuy doog a dem élection nga xam ne ku falu dootoo mën a soppeeti yenn yi nga loolu bu ñu ko réussir ba nga xam ne def nañ transition bu dëgër militaires yi delluwaat ci seen i caserne mais teg fi un état boo am si kii ñëw dootu ko mun soppi bu boobaa Mali day raw Sénégal parce Sénégal du état bu solide état la boo xam ne intérêt France rek la nekk donc loolu moo tax man li ma gëm mooy fokk mu am une rupture réew yi dañoo xeex dañoo deret dafa tuur man gëw ma ni ñun Sénégal war nañoo àgg foofu man gëm naa ne mën nañoo def une révolution pacifique maanaam révolutionner les mentalités ñun sénégalais ñu tànn njiit yi ñu bëgg ñu soppil ñu suñu réew. def un état fort mais mun na nekk parce que changement yi ngi am de bu leen xeeb actuellement li xew ci jeunesse Sénégal bi actuellement li ma ciy sentir man les jeunes. ont opté pour le changement. loolu man sentir naa xale yi réew mu soppeeku lañ bëgg. daam loolu man li ma gis ne moo koy jiitu respect des institutions da cee bokk. oui yaa ngi dégg respect des lois da cee bokk mais Sénégal fii benn côté bu ñu ko xoolee li gën a garaaw léegi presque loolu moo gën a tumaranke moo commencé di tumaranke ci biir réew mi mooy ñu ngi jël benn démarche ñu ngi jël yeneen yoon yu bees mais li ci gën a tumaranke mooy respect des institutions te loolu mhm. presque moo bokk li nga xam ne daanaka moo war a mën a indi benn approche bi ba ñu gis tey li xew tey Mali benn Assimi Goïta lu muy jéem a assulir moo di une une obligation pour ñuy dem di defe ji service militaire turé da cee bokk benn civisme boo xam ne moom la bëgg a inculquer la majeure partie de la population wala ñuy am en participation ci gouvernance mais Sénégal loolu da ko raté benn côté naka nga yaakaar ne lañ ko war a mën a corriger ndaxte bokk na ci postulat bi war a mën a tax quel que soit le changement ñu mën a am benn approchement bi solution bi xam nga loolu militaire yi def hmm. ñu am gouvernement bu ko parce que réew li koy soppi mooy njiit li man dama gëm un leadership fort c'est-à-dire un état c'est le leadership gis nga même kër dama la wax gis nga yonent saa salaam bi ñu ko nee euh, boo bëggee yar sa doom nooy def man da nga koy tànnal yaay parce que boo bàyyee sa yow kam juddoo nag bu fekkente ne yorul valeur yi bëgg na nan la xale bi parce que nit ki lu mu nàmp lay tokkamti ko la olof yi wax kon boo bëggee am doom yu baax koy tànnal yaay kon boo bëggee am réew mu baax da koy tànnal njiit yu baax parce que yaay mooy njiit mooy borom kër gi xam nga ni góor mooy kii moom non kër gi yaa yee ma parce que la fay am importance yëpp ñoo ko yor góor ñi dañuy wuti indi rek mais doole ji yaay jee ko yor moo kër gi boo jabar ju baax yoroo kër gu baax c'est la même chose ci njiit kër gu baax mooy réew réew réew kër gu yaatu la rek foog nga am njiit mooy njiit loo xam ne moom mooy wax fii lan jëm mais fekk na ne fa muy jëm moo gën a dëng ñëpp mel réew may kon foog nga am njiit loo xam ne jub na njiit loo xam ne yërëm na waa askanam njiit loo xam ne bëgg na lépp ñoŋ ba du jël yëf fii di ko aaki moom moo ki ñoñam hmm. am une nouvelle vision donc du leadership kooku fokk nga fal njiit lu ko def tant que amoo njiit lu andi changement boobu am na réew yoo xam ne naan dañoo xeex ba teg kin bëgg ñun jàpp naa ne mën nañoo xeexee neneen de façon pacifique hmm. ñu conscientiser les populations leen wax ni réew mi ni muy doxee nii mënatul a continuer ñu teg fi njiit loo xam ni yooyu ñu metti ci pénc bi yëpp dina ko fi jëlee indil gouvernance bu bees boo xam dina ko teg ci yërëm askan bi delloowaat jeunesse bi ci yar delloowaat leen ci bëgg seen réew delloowaat leen ci état de droit delloowaat leen ci des institutions fortes comme ni ko Obama doon waxee ne l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes institutions fortes yooyu nag xam nga tax sunu gars yi fi nekk arrangé wu leen parce que bés bu amee ñu ñàkk seen nguuru googu ñu nekk ñoom dañuy nguuru alors que boo jiitoo wuroo nguuru yow surga ñi la fal nga da ngaa war a fexe ba ñoom ñu nekk ci donkaasi gi nga ñafe pour ñoom condition yi nekk gën a baax waaye bu nekkee yow da ngaa jàpp danga leen a war a rey ñu dee yow nga nekk ci donkaasi gi ñoom ñu kon ne ndóol bu dee xalaat boobu nga am ci ni ngay jiitee sa waa réew sa waa réew ci ndóol la ñuy dee kon man jàpp naa ni problème mu njiit lañ am ñun Afrique bis bu ñu soppee suñuy njiit ci li nga xam moom la réew mi war a jëm hmm. léegi ndóol gi metti gi jóge ñu am école yu baax am hôpitaux yu baax am institution yu forte am assemblée nationale boo xam du fa nekk di tàcc ku fa indi loi bu baaxul mu ni président bi xamal lu lay xamal ñoo ngi yow bokk parti mais loi bi duñ ko voté baaxul ci réew mi ñuy change ñëpp di gis changement yi muy dem ñuy def réforme yi entreprise bu fi ñëw ñu teg la ci ay conditions ne la boo ñëwee da ngay ñëw ne la lii mooy condition yi tegal la cahier charge boo xam ne dañ ciy gis suñu bopp. Mhm. mais duñ la doo ñëw di def loola neex di jël ay salaire yu ñàkk fayda ko jox sénégalais yi. kenn mun ca yor sa kër sax te yow loo mu am du am transfert de technologie lépp loo xam ne yaa ngi koy am ci xaalis boo xam si mu ngi génn ci entreprise bi te sénégalais ya fa nekk ñoo koy liggéey parce que le travail qui produit la richesse nga jël alal di exporté ko sa réew ñoom ñu gën a ndóol lii mooy jafe-jafe yi nga xam ni man jàpp naa ni tant que réglé wuñ ko euh, duñ jóg ci jafe-jafe yi ci yi nit ñi dund jërëjëf Dame Mbodj euh, Babacar Kébé ah. euh, nuyoo sax daal di ne saraax ci biir néeg bi euh, di di wax léegi nuyool internet yi lay seetaan ah. nga wax ñu ñaari ponk rikum yi nga indaale tey bi ci njëkk ban la ñu daal di koy débattre ak Dame Mbodj waaw comme jiital naa maa ngi lay nuyu di nuyu suñu gan di nuyu également ñi nga xam ñoom laa bokkal plateau bi ak yi nga xam ne saa su ne ñooy tàmm seen émission bi li di Big Tekor ñun tamit ñu am mbégte saa su ne di jàkkaarloog ñoom di jukki la nga xam ne day bokk ci li gën a fës ci xëtu yéenekaay ñu xëyee tey nag ni nga ko waxee tigi ñaari ponk bokk na ci wàll bi moo di la nga xam ne moo xewoon ci diwaanu Casamance forêt bi ñuy woowee ba fa Bayot leneen loo xam ne jur na ci yoon ci wàll yi moo di ci wàllu yoon gis naa li nga xam ne moo di atte bi ñu entamé ak la nga xam ne procureur bi mu ngi koy sàkku ci attekat bi mu di mu daan leen à perpétuité maanaam seen girëb dund ponk bi ni mel fas ne nañ ko waxtaane beneen ponk boo xam ne léeg-léeg aussi bari na lool ci biir kër yi ci wàññi ruqaruqaat yi léeg-léeg ñu koy faral di jébali waaye nag dafa am loo xam ne desandi na ci moo di wàllum nekkin ci biir néegu sëy ñi nga xam ne nii seeni i borom kër ci bitim réew la ñuy nekk maanaam ay moodu moodu la ñuy doon ñu nekk seen borom kër seen nekkin ci biir réew mi di nekk loo xam ne léeg-léeg day métti ba yegg ci lool muy métti tamit ci relation yi nga xam ne am ci biir njaboot gi ba tax parfois jur loo xam ne nii lu bare bare da cee bokk ñeneen seen xel màcc na ci wàllu jot nañ ci addu enquête quotidienne def ca parcours bu yaatoo yaatu ñu fas yéene ko bécc ci taabal ji ngir waxtaanee ko ci mbégte koor Ahmed. ayca merci beaucoup dañuy daal di dem rek euh, sans plus tarder fële ca Bofa Boyot. Mhm. Euh, waxtaanee li nga xamante ne ni moom mooy sa ponk rinkum bu njëkk bi. ponk bu njëkk bi ca Bofa Boyot da amee donc ay nit la ñu woon ñoo xamante ni daanaka ci niñ ko waxee dañoo génnoon pour dem ca. ca àll ba di wuuti ji li nga xamante ni moo di mbatt euh, ngir amal seen wàllum toggin ak seen wàllum nekkin léegi nag bi ñu demee fa nga xamante ni fa lañ ko doon wuuti donc ay doomu aadama ñoo leen kar ci àll boobule fekk leen fa faat leen ci anam yoo xam ne doy na waar ba yegg ci lool tey nag ñu am ab description ci li nga xam ne moo di seen bi nga xam ne lañ ñàkkee seen bakkan ndax ne nañ ñoom doomu aadama yooyu ci ni ñàkkee seen bakkan mooy ginnaaw bi ñu bëggee bàyyeekoo ci biir àll bi kenn ci ñoom bi ñu ko faatee ci beneen espace bu bokkul ak fi nekk dañ ko rey ba pare daggatee ko ñeneen ñi des fukki doomu aadama lañ ak lu teg ñoom dañ leen a jàpp teg leen ci benn bërëb tëral leen ci suuf dóor leen ay balu fetal ba pare teg ci taal leen ci anam yooyu la ñu ñàkkee seen bakkan ci loolu nag bi mu amee ab l'enquête bu yaatu yaatu jotoon naa judd ginnaaw bi nga xam ne sapeur pompier ci li ñu mel bi muy am nag ñaati ñaari waxtu ci bëccëg sax lay war a tombeel jëm ñeenti waxtu ci bëccëg bi ñu woowee gendarmerie bi ñu ñëwee ba amal seen l'enquête ndax saa sapeur pompier ñoo fa jiitu woon boobee ba léegi mbir mi nag ñu ngi ci mais fu mu toll nag yegg nañ ci wàllum ci wàllum atte bi donc ñi nga xam ne lañu jàpp ne ñoo def mbir mi da cee bokk kenn koo xam ne moom tam dañ koy jiiñ ci lu jëm ci wàllum euh, maanaam jihadis yi nga pas jihadis mais nga xam ne ñoom ay wuy fippu lañ nekkee foofee ci diwaanu Casamance euh, bi di Atout Badiate moom tamit voilà moom tamit César Atout Badiate moom nag dañ ko àttee li ñu wooye euh, en contumace su ma jëmul noonu la mooy koo xam ne dañ lay àtte te teewoo fa ndax moom dafa daw ndax moom fu mu toll nii mandat d'arrêt international sax la ñu teg ci li nga xam ne moo di ndoddam moom la ñu jàpp ne dafa doon commandité li nga xamante ni moo di anam bi ñu rayee ñooñi jaarale ko ci ay mel yoo xamante ni mu ko doon transmettre ci keneen koo xam ne moom lañ jàpp ne moom moo amal ñaawteef bi ni mel mais ci liñ mën a jàpp daal mooy atte bi fu mu ñu ko commencé ñoom ñu toll ci fukk ak lu ñoom tam war a jàkkaarloo ni moom lañ lay toppee mais ñëpp bokkuñu même fee yi nga xam ne la ñuy teg seen daal bi ci gën a fës amet bokk na ci li nga xamante ni daanaka moo di complot ngir faat doomu aadama mais tamit tentative ak li nga xam ne moo di faat doomu aadama waaye tamit ak li nga xamante ni moo di wàllum defum ñaawteef ci loolu procureur ba nga xam ne moo fa moo moo fa teew moom li muy sàkku mooy ñu daan leen seen girib dund ñi xaarandi nag fan la warante di mujjee ki gëtam en attendant ñu yàgg ci li nga xam ne moo jeexal ndax ku mënti ne aussi dégg nga mbirum ba fa bayot ak anam bi nu mu demee aussi ak euh, faat bakkan gi nu mu demee mu nekk loo xam ne métti na lool tey jii fi ñu tollaale lan lañu yaakaar ne moo war a mën a nekk ëllëg bi nga xam ne yoon dina ko ci teg mais également beneen côté mooy ce qui est de Casamance et de ses forêts ak coow yi nga xam ne ñu koy faral di indi ban taxawaay lañ ci war a mën a am mu jeex ba faaw. Mhm. merci beaucoup Babacar daam euh, comme ni ko Babacar waxe euh, quatorze euh, doomu aadama ñoom lañ faat fële ca Boffa Bayotte di ñaawteef boo xam ne ñi ko defoon nag fi mu toll nii perpète moo leen di yoon yow noo ko jàngatee est-ce que lii tamit nga doon xaar ci yoon. waaw non affaire Boffa Bayotte bi moom d'abord man c'est c'est un événement douloureux pour notre Euh, événement bu méttee métti la boo xam ni euh, wax dëgg yàlla man rappelé na ma l'affaire de Medina Mankagne parce que man jàng jàngale naa ci zone boo xam ni zone de guerre la parce que jàngale naa en Casamance euh, mais man li ma li ma métti ci l'affaire Boffa Bayotte mooy enquête bi muy wax parce que enquête ba léegi mm-hmm. mun ñu déterminer clairement ñi xam si ñoom ñoo waral loolu parce que ñin ci jàpp ba tëj leen ci kaso bi bu ñu leen dégloo wala ñu déglu seen i mbokk dañuy gis ni enquête bi ça a été biaisé hmm. loolu aussi bokk na ci li nga xam ni parce que événement bu mel noonu quatorze victimes am ci man jàpp naa ne waroon na am enquête bu gën a sérieux boo xam ne moo ci am pour ñu mën a déterminer euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy véritablement euh, les commanditaires bu dee commanditaire am na ci wala ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, les les les au banc des accusés mais man ñi ma gis ñu dunduloo leen ci parce que presque dañu ravagé euh, dëkk quoi c'est-à-dire que aujourd'hui des familles dem nañ ci bi ñoo arrestation yi ni ko defee bëri na ay jafe yu ci am euh, am na ci ñoo xam ne boo leen dégloo di nga gis ni wax dëgg yàlla tas na seeni famille mm-hmm. te dañ naan la ñi nu jàpp du ñooñu la ñu waroon a jàpp kon nag bu ñu àggee foofu kon ça veut dire que lu doy waar la pour sunu réew et que yu mel nii euh, man pour man euh, Sénégal war na mun dépasse loolu parce que ñun dañu am une police et une gendarmerie boo xam dañu am doole euh, dossier mun leen a jaaxal kon daal am na ay beaucoup de non-dits dans cette affaire man ba léegi je suis sur jàpp naa ne daal ba léegi enquête bi mu war a am ci mbir mi Euh, defaguñ ko ci pour ñu mën a déterminer carrément ñan ñoo xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yu mel nii donc man vraiment loolu moo tax bugguma ci euh, xuus lool parce que li ma gis daal mooy que ni am na daal benn enquête téléguidée bu ci am euh, par rapport ak les faits ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci incriminé dañoo nar a daal daan ñoo xam ne seen yoon nekku ci man jàpp naa ne ci loolu lañ jëm. merci beaucoup Dame Babacar mu bàyyi la nga tëj dem ci ñaareel bi. waaw euh, man nag problème bi fi muy nekk très souvent nit ñi di ko wax c'était depuis le début mooy problème enquête bi parce que xool nañ ba ci njëkk ba sax am na ñoo xam ne déjà libéré nañu leen te presque yegguñu woon sax ci li nga xam ne mooy di finalité bi mais li ci gën a garaaw tey jii mooy bu fekkente ni dañoo nar a incriminer wala sax nag ñu inculper ñoo xamante ni déjà ils n'ont rien à voir avec ça. Hmm. yeneen mbir mais surtout aussi. mbir mi bi mu amee taf taf nga xam ne ñëw nañ jàpp leen parce que anam yi ñu ko doxalee aussi dafa doy waar ba yegg ci lool teewul ba léegi seen ay famille ba léegi ñoom tam ñu ngi koy joytu donc je pense que ne bu ñu yeggee ci réew moo xam ne Sénégal surtout mu ngi am ñoo xamante ni ci wàllum l'enquête dañu naan rapidité bi ñu ci àndale efficacité bi je pense que ne c'est normal parfois ñi nga xamante jàpp na ñoo war a mën a gën a am benn tolluwaay bi ci dossiers yi ñu leen koy jox su ko defee yenn njumte yi bañ da ci am mais quoi qu'il lépp ci kanamu yoon la nekk et on espère très bien que ni dina jaar ci anam boo xamante ni ku ci a xamante ni ñoom ñoo lore également amet mmh. ayca ñaareel bi ñaareel bi bokk na ci ñu mu gën a yitteel ñi nekk ci ay maanaam femme de ménage noonu lañ ko duppee enquête quotidienne nag tey amal na ci ab l'enquête bu yaatu yaatu épreuve de la distance noonu la ko tuddee jigéen ñi moom la dund seen biiru sëy ba tax na nag ñoo xam ne seen xel màcc na ci wàll bi nga xamante ni dafa jëm ci wàllum nekkin ci biir njaboot yi déglu nañ ci kenn ki nga xam ne moo tam jot na ci àddu Ibrahima Kane moom lañ moom lañ ko moom lañ ko duppee mu nekk ab moom sax jàpp na ne wàllum relation yi ni mel léeg-léeg la muy faral di gën di jur jigéen ji dafa laaj également benn taxaw boo xam ne war na ci biir kër nga xamante ni fa lay nekk mais li jiitu ci li nga xam ne jafe bi di dund mooy lu bare bare da koy manqué que 10 ans parfois ñenn ñi dañ koy wan ginnaaw jigéen wàllum ménopause sax mën na cee bokk li nga xam ne mu ngi koy yot loolu bokk na ci mais également nga dem bu taxal ko ci kër goo xamante nii ñam fay fekki léeg-léeg nekkinam day métti ndax ñi ko war a jàppale duñu ko taxaw mu fay nekk di mbiicoog mbaaloog ñi nga xam ñoo nekk waa kër gi ay gorom loolu di ay jafe-jafe yoo xam ne yëpp bokk na ci mais léegi également dans le besoin ci wàllum contexte bi nga xamante ni gars yi léeg-léeg dañ ciy jiital lu jëm ci wàllum sexe loolu aussi nekk loo xam ne lu ci mënul ñàkk la mais taxaw bi nga xam ne moo ci gën a ëpp solo muy psychologiquement parce que ni quelle soit la distance li nga ko mën di apporter ci wàllum waxtaan day bari loolu loo xam ne du koy manqué donc tey ñi ne ñaari ponk ñu fas yéene ko waxtaane amet mooy ba relation moom la war a a am ak nga xam ñoo di ay gorom ci biir néegu sëyam mais également comment faire pour combler benn manquement bi nga ne léegi-léegi ça peut être bien être inévitable ci relation ak nga xam ne moo nekk sa borom kër. merci beaucoup Babacar xam naa bii daam moo ci mujjee wax ci jigéen ñi laay jëkk ci Aïcha Thiam euh, en attendant nga may ma Babacar ma ma ma kontaanati ci presse sénégalaise man dama leen a bëgg. Mhm. gars yi nag parfois damay dégg ñu ah non dañoo cuune dañoo nii dañoo nangam ak euh, Sénégal moo demee noonu mais photo illustration bi lépp la wax. téléphone à la main ça veut dire que njegenaay bi mu tëdd ça veut dire que place ki war a tëdd ci njegenaay bi nekk sollicitude bi bokkatu bi lépp image bi da ko mm, jàngal mm. benn yoon donc félicitations encore une fois ci presse sénégalaise bi yenn saa yi ma gis in yoo xam ne wala photo illustration yoo xam ne ah, c'est extraordinaire ci seen xarañteef maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax donc des fois tamit ma gis koo xamante ne nii moo leen gën a niil fuuf dem di bindee Z journaliste te leen di xas naan dama koy gis ci lu bari ci sénégalais yi <laughs> soxna Aïssa Thiam <laughs> am na ni ma nga bàyyi mu mujjee wax ne su ma waxee nga ne waxati na. waxal waxal. Euh, je m'adresse premièrement aux hommes il y a des hommes yoo xam ne dañ naan damay takk jabar pour sama yaay ñooñu xaw ay nit lañ xaw ma ay la lañ premièrement yow nga ni dangaa takk jabar pour sa yaay donc toi tu n'aimes pas peut-être la personne mais ngay wutal sa yaay bon mindaan bu ko. toggal. <laughs> bu ko yàq mais yow yow li ñuy wax ak li ngay foofu la waaye Modou Modou yi foofu laa jëm. Mhm. da ngay nekk à l'étranger. Mhm. sa yaay jël nattam wala ooram wala terrain am jaay yóbbu la nga ne yow nga koy récompenser damay takk jabar pour sama yaay. donc tu cherches une bonne pour ta mère ñëw di togg di yekk di fóot lan lay am si yow par fin du la ko jox directement rek kay jaarale ci sa si yaayam yaay ji rompat vingt cinq mille. Euh, frère bi dem jëli ci western ba rompot vingt cinq mille ñoo jox la trente mille wala vingt cinq mille nela la yow loolu ngay téye pour weer tu as besoin des serviettes hygiéniques déodorant parfum yére daal yow kon léegi yow euh, li ngay fay bon loolu ngay jox la femme tu ne l'aimes lijjanti woo ko faale woo ko moom mu ngi toog di sayte yàlla tax ak solitude ak solitude ak li nga xamante ne mooy ay manquement ak li nga xamante ni mooy Euh, dañuy fuuy am arne boo xamante ne seen jabar du sax am su ñëw wax bu neex bu ñu wootee c'est pour lan la sama yaay mu si jaam ana ndumbe ana diw ana diw tu n'as même pas benn intimité pour si yàgg ak sa jëkkër nga toog nag cinq ans wala dix ans wala trois ans nga naan da ngay muñal kook nga xamante ni yow virtuellement ngeen di gisante euh, benn appel vidéo trente minutes mu ne la euh, maa ngi tëdd alors que moom mu ngi gundaandaan lu ko neex à l'étranger yow la femme tu es obligée loolu mooy sa devoir loolu par force la da ngay toog nga sëyal ko te yàlla tax nga xaar ko mu ñëw bu ñëwee il reste avec toi benn un mois deux mois mu mu mu mu daal di delluwaat donc euh, man li may wax sama moroom jigéen ñi je vais pas dire que li ma li li ma bëgg loolu la ñëpp war a bëgg mais sëy ak moodu moodu vraiment euh, bu nekkee <laughs> bu nekkee loolu di <laughs> nga daane laale foofu. <laughs> waaw d'accord bàyyi parce que li may wax li may wax dafay nar a bàyyi ma noppi <laughs> bàyyi ma noppi. merci beaucoup mais daal la plupart non la plupart des des femmes Modou Modou c'est c'est des bonnes c'est des bonnes c'est des euh, bonnes vraiment. il y a beaucoup de bonnes choses ah, ah, dans ce qu'elle dit quand même waaw. d'accord d'accord ça dépend ci ki koy wax. mais il faut que ñu mën nangu ñu. xam naa si yow moom maa jël moom si gën a jëkk wax ko parce que moom xam nga. Mbañoon ak Dame Mbodj ñooy mujjee. waaw ñoom ñaar ñoom ñaar moom dama naa de. parce que jigéen ñi bu ñuy jooy Mbañoon moom nu mu war a def. loolu loolu fan fan nag ñoom nekk ci position boo xam ne dafa doy waar. loolu ma moom non ñu ngi dund lu métti métti métti si biir kër yi amuñu fu ñu ko jooyee am na ñoo xam ne ngi nekk goro yoo xamante ñu ngi leen di mettre la ñu ngi leen di euh, dund loolu loo xamante si biir kër gi c'est pas tout le mais 90 pour cent vraiment jabaru Modou Modou ñu ngi dund lu ci biir kër gi loo xamante ne lu metti métti métti la te amuñu fu ñu koy jooyee amuñu fu ñu koy waxee. waaw jigéen daal na leen di gën a jox seen wàccuwaay daal jox leen seen wàccuwaay important parce que soxna aussi dafa am gëdd ak cër boo xam ne da nga ko xaw a jox rawatina bu la soree bu la soree déjà distance bi rek euh, tiis buy tegu si kaw soxna si donc loolu soxna si defe naa ne soxlawuñu ko si tegal leneen loolu daal jàpp naa ne ay jàmm fii moom xaw naa d'accord ak yow pour une fois léegi nag ñoom moom amee. Mhm. xam naa ñoo ma si ëpp xam-xam fuufu <laughs> ma jox euh, Absa an mu réagir si laata may jox euh, Dame Mbodj ak Mañoon parce que euh, Mañoon moom il faut ñu dégg la si. Mañoon. <laughs> ah d'accord donc Mandione Mandione ah, d'abord dañuy masaw jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi toog di muñ nii parce que ku nekk xam na ni sori ki la bëgg ki nga xamante ne moom nga bëgg metti na mais itam lenn dafa am amet mooy question de choix la parce que bu fekkee ni que nekkul un mariage forcé maanaam kenn obligé wu la nga dugg ci te laataa nga ciy dugg itam xam nga ni la doon xaar maanaam xam nga ne sa borom kër dafay tukki te itam ñëwam dara leeru si ndax fi mu nekk peut-être mi ngi am ay difficultés pour am papier Euh, donc yow dara leer la ni kañ la nar a ñëw donc responsabilité bi nga xamante ne yow moom nga nangu pour endosser ko da nga ci war a dem ba mu jeex parce que yow yaa ko nangu waaye itam ci kaw loolu famille yi nga xamante ne ñoo nekk xale bu jigéen bi ñuy euh, nangu di ko jàppale parce que déjà sa jëkkër sori la rek metti na nga nar a dundaat beneen méttit ak ay famiyom dafay doon loo xamante ne dafay compliqué donc ñu jàppale leen si bu baax te itam ñu bàyyi xel ni nekkul jigéen ñi kese ñoo koy dund parce que ku góor ki nga xamante ne mi ngi extérieur peut-être am na opportunité wu takk te defu ko ndax dafa ne dafay euh, gaa dafay euh, euh, dafay dafay dafay solidaire envers sa femme bi nga xamante ne moom la bàyyi fii kooku tam mu ngi dund lu metti donc ñu bàyyi ko xel bu baax a baax am na itam góor ñoo xamante ne sens inverse bi la maanaam ñu ngi fii seen jabar nekk extérieur. <laughs> ñu bàyyi leen xel di leen ci yi di waxtaanee gars yi ne yow yaa ci expert. non que ku ñu nettali ak ku dund moom bokkut. du si du si du ma si ma àndul ñoom ñoom ñu ngi wax sens inverse mais mm. que quel que soit alpha ku jigéen ki mu nga ca benn réew yaa ngi ci beneen réew moom mu nga mm. fa wéet. Mm. effectivement donc euh, loolu dafa nekk lu nga xam te ni pour man. Euh, dafa laaj euh, compréhension bu am solo di si njëkk mooy compréhension sa baat bi mosul suufee nii ci palaat <laughs> non même pas pourtant affecté affaire bi affecté na la pourtant y a y a rien y a rien de lu nga xam te duñu me duñu permettre ñu nekk à l'aise si affaire yi parce que dara ne aussi parce que je pense bien que ne loolu yàgg na ñun ci suñuy papa euh, la tàmbalee parce que man sama papa Modou Modou la donc fii la Jurbel la bàyyi dem Amérique nekk fa immigré sama yaay nekk ca kër ga donc loolu je pense bien que ne lu yàgg la quoi. Hmm. pour ci ci man ndax yàgg naa kaa gis mais c'est juste que nu ma ko waxee la moom mooy gëm-gëm la organisation la compréhension la mais aussi complicité da si am et que respect aussi bu mag a mag da si dafa nekk lu nga xam te ni day tax ba euh, loolu nekk lu nga xam te nii maanaam du leen andil benn rëx-rëx. pour man tey jii nga nekk ak sa jabar Sénégal sa jabar nekk euh, nu mu tudd sa beneen réew bu nga xam te ne bokk bokku leen euh, jamono ji ak développement technologie bi amul leen lu nga xam te nii peut-être da koy da day nekk lu nga xam te ne da leen contrainte seen sëy c'est juste que da ngeen di comprendre rente xool ni ngeen organiser seen sëy après ça passe quoi mm-hmm. lu ci am solo moom mooy rek moom mooy ni ma ko waxee mooy complicité jàppalante bëggante et ku ci nekk comprendre moroomam après vous allez avancer quoi. merci beaucoup Magnone Aidara Dame ci yow soxna si mu ngi fi. waaw euh, mais parfois nga dem ay séminaire bitim réew lu yàgg. mais mais euh, man moom foofu euh, Magnone d'accord ma ak moom parce que c'est vrai que loolu lay dund situation day tax ngay adapté wu ci situation bi ngay dund mais ñun bu ñu ñëwaatee ci sëy parce que sëy aussi dafa am ay ponk. Euh, ñu mën a wax sëy aussi dañ laa sant nga dëkkal dëkkoo yor yor bi mooy wodd ko dundal ko joko jox muy lekk di extra donc yooyu ñoom ñi ngi matal beneen bi parce que boobu ay problème moyen la lu ci ëpp du am problème maanaam man koo dëkk euh, dëkkal defaral ko kër gu baax euh, ba noppi di ko jox lu mu dunde di ko wodd donc ba noppi di ko jox lu mu lekk yooyu yëpp ñu ngi koy matal maintenant nag dëkkoo gi dafa am solo parce que sëy man dama nekk région boo xam région de Louga sëy ji euh, nit ñuy tukki lañ foo leen fekk ñu ngi tukki euh, te gis drame yam fa def aussi gis fa jigéen ñu tas parce que jiñ nañ leen ni rakk wala mag wala nijaay yu kadem moo yegg ci moom wala ci koñ bi benn xale bu góor yegg na ci moom am nañ doom kële assumé ko alors que ci sëy dañ ne la sa jabar tant que mi ngi ci buumu sëy gi doom ju mu am yaa ko jur c'est vrai que foofu coow da cay am parce que naan la ki nga am ñëwul ñaari at jabaram am doom munoo wax ni moom moo jur doom ji mais islaam du wax loolu danaan tant que buum gi mu ngi ci mi ngi am tant que fase woo ko doom ju sa juddu sa doom la maintenant nag nit ñi gis ni kon ndaw si am na fu mu jaar ba am doom ndax te ñëwoo mais lu tax ñëwoo tamit da nga am responsabilité mm-hmm. nañ waxante dëgg parce que jigéen de yow imagineel benn ndaw soo xam ni man sama élève la woon ñu maye ko mu dem sëyi jëkkër ji jël ko def ak moom weer ñibbi Europe toog fa ñeenti at mais nañ waxante dëgg yow xale bu jigéen boo xam si mi ngi ci yaayam xamagul góor nga dem takk ko xamal ko góor ci benn weer famille neexe nga jël sa vol dem toog ñeenti at ñëwoo kooku bu sàccee am nga ci responsabilité c'est vrai que bu ñu yaree xale yi. mais daan que bu non attends rek attends rek attends rek waaye moom laa lay wax c'est vrai que d'accord naa ci wërtu waru faa dem sëy mhm. mais des fois tamit des fois tamit da ngay gis koo xam fii lay nekk sëy euh, ku góor kooku tukkeegul. Mhm. ñu maye ko ñu sëy du def dara ab diir bu gàtt fekk boobu mu ngay lijjanti pour tukki. loolu ay cas da cee am. maintenant nag yow soo xamee ni kooku mu ngi bitim réew nga nangu dem sëy ak moom te moom dafay toog nga xam ne weer lay ñëw def ko fi dem loola ca fekk bu ëllëgee yaa ko def yaa dem nangu sëy ak moom mais nag li nga xam ne mooy dëgg daal mooy man li ma gëm mooy jabar daal da ngay dëkk ak moom dëkk ak moom bi nag néewul ngeen nekk tout le temps mais sa jabar sa keneen day ne Europe. wala yow nga nekk fii Sénégal wala yow nga nekk Europe seen jabar nekk am ngeen distance te mën ngaa toog ñeenti at Ah, dafa ëpp te ñun suñu muud muud liggéey loolu la ñuy def ay ñetti at ñaari at doo gis sa soxna bu dee nag da ngaa gis trois mois yi nekk par exemple un manjoon nekk fii bu defee quatre mois wala cinq mois jabaram déggoo ceeg moom wala trois mois da koy parce que islam sax defe naa man du ma oustaz mais defe naa trois mois la ñu wax trois mois la trois mois yi su rombee day dagan soxna si ñaan baat pour wan la ni yàlla ci boppam subhanahu wa dafa gëm ne liy aar jigéen mooy mu nekk ak jëkkëram kon nag bu fekkente ne dangaa ngaa a toog at ci Europe bàyyi sa soxna fii Sénégal te moom xam na góor te bu guddee mu sangoo euh, mbàjj mi sedd bu mett bi bés bu nekk mu dëkke loolu dëkke loolu ay ñaari at ñetti at quand même loolu torture la mm-hmm. man loolu laa gëm maintenant nag conjoncture bu métti bi mooy tax jigéen di ca dugg dañuy jigéen ñoo bëgg jëkkër da ngay gis da ngay gis da ngay gis euh, jigéen ñoo xam ni ñàkk jëkkër tax na ñuy dugg ci loolu wala tamit nekk ci ay jafe-jafe nga nekk ci famille boo xam si vraiment amoo yenn moyens nga gis koo xam mi ngi tukki di ñëw nekk référence ci koñ bi ñëpp di ko gis mu tabax terrasse am bu ñuy coow comme ni koy tooñee sama mbokk Louga Louga Modou Modou Louga yi sa terrasse bu rafet gën a rafet la ci quartier bi xale bu jigéen nekk ci bi gis ne waaye yooyu ñëwee tey wàcce oto yu rafet di dem di ñëw dóor seen i takk seen i kii xam nga waaw takk seen i fii et cetera xale jigéen yëpp bëgg ko léegi mu ñëw sa kër seet sa yaay ne damaa bëgg takk sa doom bi booba ñaa sa yaay da lay mbéj parce que condition ya muy nekk yu métti su gisee ku ci mën a génne parce que nag dañuy yónnee dund te dund jafe na ci dëkk yu bari da ngay dem ci dëkk yu bari yoo xam ne pour ñu am lu ñu dund jafe na parce que mm-hmm. difficulté économique yi mm-hmm. maintenant nag kon man jàpp naa ne des fois euh, jafe-jafe mooy tax ñu koy nangu mais jigéen ñi kenn la ci gënalul jigéen yoo xam day toog dëgg jëkkëram ñaari at amul benn jigéen bu ko bëgg mm-hmm. amul benn jigéen bu ko bëgg day ñàkk pexe toog ñaari at wala ñetti at gisoo sa jëkkër amul benn jigéen bu ko bëgg jigéen dama ne la boo tukkee rek sax da ngay sentir ni euh, même boo nekkee kuy liggéey toog euh, dem tukki def 15 jours wala 20 jours sax da ngay gis ne yàkkamti nga ñibbisi jigéen dafa bëgg nekk ak borom këram. moo tax jigéen ñu bëri sax léegi dangay commencé naan la man daal nekk ak sama jëkkër ci gal seen bi mooy taxale sax moom may gënal nekk ak koo am daa am ay moyens yoo xam ne damay toog at du ma loolu jigéen ñi commencé nañoo gëm loolu man daal li ma gëm mooy. sa soxna boo nekkee situation moom munoo ci dara nag munoo ci dara parce que des fois nga nekk contexte boo xam munoo ci dara mais man li ma gëm mooy daal liy tax sëy bi ñoŋ ku ci nekk aar sa moroom parce que sëy góor da ko jigéen góor day takk soxna pour fegu dalay aar maanaam takk soxna dalay aar yow parce que soo amee soxna xale bu jigéen nekkoon ci koñ bi Babacar di la xool naan baabakër mii jantal booy la danaan ah naa muñ nag jàpp Babacar léegi am na ko ku mu waaye nag bu ko wóoree ni mën naa peut-être di lorñe di yaakaar Babacar takk ko ñaareel ma ne si naa comprendre waaye dina xam ne Babacar mii am na ko moom te day nangoo xaar xëy na ba Babacar ñëw ne ñaar la bëgg waaye xam na ne moom Babacar rëcc na ko pour le moment mais loolu tamit day tax Babacar rëcc waaye ñu gisee Babacar soxnaam nekk ca feneen ah ñuy gis ni Babacar mii kat yenn saa yi naa wàcc ma ne ko teemaa ñëw balal la néeg bi wala kaay ma defal la lii te defaral sa néeg wala et cetera di di espérer kooku day tax Babacar day exposé wu donc nga nekk ak sa soxna danay aar. kon nag loolu moo tax nag man dama jàpp ne daal ñii lu métti la ñuy dund mooy jigéen ñi nga xam ni parce que dama cee xam ñu bari nag. Ah. dund ci milieu boo xam ni loolu la ñuy def. quartier boo dugg la fa ëpp ñu nga Europe seeni soxna rek nekk ci kër gi ba noppi nag muy dund leneen. njëkk ya nekk fa di ko jaay doole. man gis naa barki démboo njaay rek sama mbokk moo xam ni dem naa seeti ko. Euh, mu am jafe-jafe ak ay ay ay ay ay ay ay ay ay sëru jëkkër ji mooy njëkk yi mhm. ñu koy ñuy influencer pour ba ba ba takkal ba takkal euh, seen seen grand frère bi jabar seen càmmiñ seen càmmiñ ñu takkal ko jabar léegi ñu takkal ko jabar te xoolal waaw léegi bu ko defee léegi pour déstabiliser ko parce que gis nañ ni léegi seen couple neex na à distance que leen koy yónnee ñu koy gis muy soloo ko dem ak ñëw ñu loon léegi comme day ñu nëbbatu nangu la wax lu ko seen càmmiñ di defal nañ kase affaire boobu pour koo xam mooy tax ñu dugg seen intimité mhm. xam nga loolu yooyu yëpp ay jafe-jafe la donc si bien que daal jigéen ñooñ daal boo bëggee dégg dëgg ñu ngi dund lu metti ay exception nag am na ci am na jigéen ñoo xam ñoom accepté nañ loolu mais la la majeure partie ci jigéen ñooñ dañuy dund lu méttee métti dañuy vivre un drame. dama li ma si gën a bañ mooy booy may sa jabar dara il faut nga laaj allo yaayoo dama ko jëndal iPhone est-ce naa ko jënd. mais pourquoi looy defal sa jabar lu suy sa yoonu yaay. Oh. merci merci beaucoup. Euh, daal foo moom tey euh, d'accord naa ak yow. <laughs> dafa am dafa am benn dafa am benn question boo xamante ne nii euh, gars yi ñoo koy laajte internet yi xaw ma nag question bi niñ ko niñ ko posé su ma su ma juumul daal li ma jàpp mooy lu tax Louga bëri ay moodu moodu wala lu tax waa Louga bëgg tukki. waaw man de jàpp naa ni sécheresse bu metti andi na ko fa. parce que Louga dafa tolloon jamono boo xam ni wax dëgg yàlla dafa wowoon koŋ nag. bekkoor waaw bekkoor amoon na fa waaw. wax dëgg yàlla Sénégal gépp sax mais ci sunu zone yooyu nga xam du taw taw bu metti ñoom ñoo gënoon a dund xam nga Sénégal dafa am zone yoo xam ñoo gën a metti soo xoolee zone yi nga xam si euh, gën a safe tukki gën fa safe mooy zone yi nga xam si presque dafa wow boo jëlee mooy zone euh, Louga bi jàpp euh, la région de Diourbel jàpp la ak la la zone nord la Matam bon zone yi nga xam ne daal vraiment dafa dafa am sécheresse bu métti bu fa jaar nit ñi dañuy taqale bu ñu amee lu ñu am dem parce que dañuy gis ni fii dëgër na dëgër boo xam ne dem mooy tane donc loolu moom boobu phénomène bokk na ci parce que benn moment dañu dund ce qu'on appelle le phénomène de l'exode rural nga xam dañ doon jóge foofu ñëw ci taax yi mhm. pour for mais ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ci taax taaxiyat ba ñu foree la ñuy gis mooy nañ dem génn parce que taaxiyat lañ soxla dëgg mun ñu ko fa am kon région yooyu daal dafa nekk région yoo xam ni nawet yu dañoo toog ay at yu bari nawet amul nit ñi dund lu metti mettit woowu ñu dund tax na ñu dem ba ñu gis ni kon dem wutiwaat rek dem wuti leneen rek génn génn mënatu la ñàkk parce que fii dara amutu fi parce que nit tamit nit moo mel noonu boo nekkee foo xam dara amu fa foog nga dem léegi moo tax ñu doon dem di euh, ci taa réew taax ak di dem bitim réew. Hmm. léegi nag phénomène boobu nag dem ba mu ba mu gangréné zone bi ba nga xam ne am nay jamono yoo xam ne jigéen ju sëyul ak moodu moodu da ngay def ni sëyoo. Hmm. parce que ñoom ñoo aagoon. xam nga day toll jamono ji nekk ak ñu aag. Hmm. actuellement nag aagatuñ. mais am nay jamono ñoom ñoo aagoon. Mhm. non non am temps ñoom ñoo aagoon. maanaam jigéen ñëpp ñoom la ñuy. Euh, kaaw kaawmaan la ñuy wër. léegi football mais mais ñoom aagatuñ amoon nay jamono ñu aage nag. léegi football waa Dakar bi la ñuy la ñuy seeyal léegi. xale yi xale yi mm. Mm. footballeur moo xew laa wax wala mm-hmm. merci merci maa ngi nuyu. mais nag sargal quand même ci. Euh, soppi nañ lu bari ci zone yi yi nga xam ne fa lañ jógee. Mm-hmm. soo jëlee la zone de Louga. moodu moodu yi impacté nañ ci économie Louga impact boo xam ne dafa jéggi dayoo cest à que moo tax ci Covid bi région bi sonn parce que transfert d'argent yi moodu moodu yi mën a def dans la région de Louga bis mu amul xiif dina fa am ñoo yore famille yi parce que quartier boo dugg boo nee juróomi kër ñetti wala ñaari ay moodu moodu donc te ba noppi rafetal ko kër yi rafet ba noppi tamit am na solidarité seen biir mm-hmm. Mm-hmm. ñu bëri dañoo tukkil koo xam dañoo dend ak moom te bokkuñu ak moom mm-hmm. waaw loolu boobu type de solidarité am na ci seen biir maanaam nga dëkk ak ab boo xam ne amuñu doole yéen seen famille ñëpp tukki parce que ñoom dañuy yóbbante da ngay dem yóbbu rakk rakk jooje moom it ñuy dajale di cotiser seen biir di di di tukki di mm-hmm. tukkil seen i rakk ba ñëpp tukki ba kër gi presque ay jigéen yi kese fa nekk mm-hmm. ñu dem bay tukkil kin dendal te bokkuñu moom dara mm-hmm. loolu lépp am na dans la région de Louga si bien que dafa yokk le phénomène ba nga xam si solidarité boobu tax na ñi tukki bari waaw léegi nag loolu dem na ba am jeexital parce que transfert d'argent yi mooy permettre wax dëgg yàlla famille yi am lu ñu dundee la yoo xam ne koom-koom bi doxul maintenant nag man li maintenant toujours damay wax ne li ma leen di critiquer mooy di ci critiquer aussi état quelque part mooy organiser wuñ ces transferts d' argent ba mu mën a jur nag des investissements internes pour mu mën a créer de l' emploi pour fixer les jeunes. Mm-hmm. loolu moom moo war a nekk la prochaine étape de la migration. c' à dire phénomène bi mënuñu ko perpétuer parce que Europe mi ngi dee. emploi yi Europe dañ ko soxla léegi yéen ya Sénégalais yi doon def foofa léegi ay koy def. Mm-hmm. léegi kon loolu dootul solution léegi liy solution bi mooy aujourd'hui il faut ñu organiser waat li nga xam moom ñoom loolu la ñuy loolu la ñuy loolu la ñuy euh, dugal ci dëkk bi ba état accompagner leen ba ñu mun a def des investissements parce que tabax kër kese du investissement c'est-à-dire que am nga kër mais loolu euh, man jàpp naa ni euh, loolu ngay gis ni moom lañ fa def mais tey jii waroon nañ nekk ñu ni benn groupe de muudu moodu dajale nañ seen alal banque accompagner na leen and nañ ak état encadré nañ bañ investir def benn benn usine bu mag à Louga buy def nangam boo xam ne xale yi daañ fa mën a liggéeyee bu ko defee bu ko diversifier dans les différents secteurs danañ mën a développer le terroir ba nga xam ne dootul soxla sax vraiment ñuy euh, ñuy def transfert massif d'argent lépp li ñuy def dañ koy investir ci ci seen dëkk loolu man pour man loolu liggéey bu rëy la boo xam ne dañ leen cee war a encadrer pour que ñu mën a dem ci beneen étape pour vraiment valoriser. donc li nga xam moom la Modou moo di di di andi. merci merci beaucoup Dame Mbodj il faut ma nuyuwaale waa Louga yi nga xamante ne nii ay soppe lañ ci kër gi euh, njëkkee ko ci euh, moo Kona man xaw ma ne woon waa Louga nga xam nga famille Kona. famille kon man ak jude géewul dama fa jàngi rek fa laa amee bac. ah yow ci porox ndollu ga nga nekk. non non ci déedéet ci catli bala ngaa dugg Louga. Ah, man je à à à vingt deux kilomètres ou vingt certains disent vingt euh, sur la route nationale. bu ma ngeewul pour dem Louga. ayca merci beaucoup maa ngi maa ngi nuyu bu baax a baax euh, tout la famille Kona mu jëlee ko ci moo Kona dem ci tamit ki nga xamante ne nii euh, moom mooy euh, Fallou nit dof ak Met Metal <laughs> maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Met Metal mi nga xamante ne moom it léegi di mujj na bàyyi hip hop bi dem dem voyage ji sama yaay ma Mamista Mbeng maa ngi lay nuyu Lamsaas borom global business ak gërëm paa bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Lamsaas sama waa ji nekk Jacques Mbao actuellement di ko jaajëfal bu baax a baax waa global business yëpp. ak waa Louga yëpp maa ngi leen di nuyu cité Wotel ak Algérie Montagne ak Escale ak ñëpp maa leen di nuyu euh, nu mu tuddati yow waa fan nga. waa Cissé Kaymoor ak waa Wami euh, jeunesse mondiale de. <laughs> musulman maa ngi lay bu baax a baax ay ci tëjal <laughs> voilà donc Ameth dafa nekk <laughs> waaw nekk phénomène boo xam ne nag dafa boo xam ne nag man très souvent damay évoquer ce que l'on appelle l'objectivité à l'entame mhm. parce que nit ki parfois li di nga ciy dugg parfois day baax bu baax a baax bu fekkente ni mën nga ciy jiital objectivité que loolu moo lay may aussi nga mën a mën a am benn séntu bi par rapport aux conséquences ndax li nga préparé wu di nga xam ne aux conséquences lii la war a mën a jur mhm. mais malheureusement bu fekkente ni comme ni ko daam waxee waxee tey nit ki day dugg ci dara parce que am na koo xam ne mu ngi ci benn code bi ñëw na wàcc na benn 4-4 wala am na muy mel parfois sa mbokk jël la dugal la ci te yow par conséquent préparé woo ci loolu mais li ngay gis mooy alal ji à la li ngay am ay problème da lay jural ba loolu aussi moo yóbbee finalité bi lan lay doon mooy yenn souffrance yi ngay am doo ko mën a dékku après nag benn tas moo ci ñëw wala ci biir kër gi également lu mu yàq loo xamante ni lu bari la dem na sax nag xam ñu ngi ci dugg nañ ci ànd ak objectivité mais di séentu également xam ne lu métti lay doon te mënul nekk lu yomb te ñu ñuy bokkal aussi ci biir kër yi di am aussi jàppee leen considéré leen comme seen doom boo xam ne dañu yar ci biir kër parce que loolu aussi moo war a mën a defar merci beaucoup Babacar Kébé maa ngi a baax ci li nga xam ne moom mooy <laughs> moom mooy ponk euh, rinkom yi nga xamante ne ni moom nga ñu moom nga ñu indil merci merci beaucoup di waaye xaaju gudd bi ñu toogal a si yàgg bu <laughs> yi ñu la ñuy ree <laughs> loolu xam ne day xew ci suuf du ngeen ko mën a xam yow yow yow yow yaa di di filmer vraiment vraiment <laughs> weer sa bopp Babacar. en tout weer sa bopp ñu ngi <laughs> sax dem euh, gërëm waa Alxayriya ONG Alxayriya bu baax a baax ci gunge gi ñu ànd ak ñun ndax dañuy ànd ak Absa Anne léegi ci li nga xamante ne ni moom mooy Ramadan 2 te xam ngeen ne ONG boobu di Alxayriya baaxoo li nga xam ne moom mooy solidarité ak entraide ak def bu baax a baax li nga xam ne moom mooy sociale jëm ci li nga xam ne moom mooy jirim yi ak daara yi ñuy tabax euh, di ci dugal jirim yi di leen yor di leen dundal di leen jàngal également jàkka yu baree bari lu ëpp ci téeméeri jàkka lañu tabaxoon ci at mi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waa ONG Alxayria ak seen représentant yi nga xam ne ñoo fi nekk tey euh, di nuyu waale sama ndijaay <laughs> mayaat ñu ko waaye am na solo. <laughs> <laughs> Aliou Maam yi la jawaatu Ibaadu Rahmaan di Sénégal les de patate réalisateur bi sérieux non non réalisateur bi sérieux mais j'espère que man boolewum. non non non non non vous avez des chaussettes. loolu tax ma doon réclamer. table ji gars yi duñ comprendre li tax ma koy réclamer. table ji dafa bëri sutura. dafa bëri lu muy lu muy mais table dafa mel ne yow rek lay nëbbal na. non non non yow ni nga solo bu baax la. merci beaucoup. finalement gars yi mujj nañ xam loolu donc ñu dem Ramadan ànd ak ONG Al Khayria mi nga xam ne moom moom moo ciy gunge ak Absa Anne bi nga xamante ni moom moo ciy def reportage yu am solo Absa. ki nga xamante ne bii mooy Mamadou Lamine euh, daal Mamadou Saliou plutôt daal di ñëwaat ci plateau bi. maa ngi nii di marché Castor du liggéey quatre heures laay xëy ñëw fi toog fi ba vingt une heure wala vingt heure soog a ñibbi amul weer ko amul weer bi dafa mett xaalis bi moom dafa ndaw eh, dangay dagg kilo soble fukk ko balaa nga dajale foofu ba nga am dangay ngay fayeeku sa journée na fekkee liggéey nga ba sonn nga yeneen saay liggéey day am am ay trois mille ay quatre mille yooyu yeneen saay noonu liggéey du am damay xëy toog fii ba ngoon du am dara ma ma tëj place bi dem ñibbi weer bi ñu bëri duñu liggéey quoi comme maanaam jaaykat ndekki bu ñu jaay xam nga duñu mën a jaay liggéey normal Euh, lii waa Seneweb ànd kook waa Alxayriya ñoo la ko jox pour dimbalee la ko ci weeru koor gi lan nga leen di wax. maa ngi leen sant di ñaan ñu jërëjëf ñu ne ñu liggéey bu baax la ñuy liggéey ndax lii yàlla ñoo ñu ko dimbali yàlla nañu yàlla dimbali si jàmm. xam naa boo ko yóbbule maire ba maire dinañ kontaan de. waaw dinañ si kontaan kay ndax lii weer bi koor bi ba léegi amalu leen lii. ayca merci beaucoup euh, Absa Anne ma bàyyi la rek euh, nga def li nga xamante ne nii moom mooy euh, conclusion Ramadan 2. waaw Ramadan 2 tey dafa seeti woon koo xamante ne bii benn ndaw la gis nañ ay métiers yu bees yoo xamante ne man damay faral di wax ni peut-être évolution yi am ci suñu société moo tax muy feeñ ndax ñoom li ñuy liggéey mooy di daggate soble ak pomme waaye li ci yéeme mooy moom mi nga xamante ne bii Maodo saaliw dafa toll ci ñaar fukki at moom benn loxo la. benn loxo la te benn loxo boobu moom lay utiliser pour def métier bi muy def mu nekk métier boo xamante ne nag yombul te itam koom bi nga xamante ne moom lay jur euh, taxu koo bëri noonu ndax tey jii bu daggee kilo soble wala kilo pomme de terre duñ ko ci fay lu dul 75 francs maanaam fukk ak juróom euh, te itam dafay yendu suba ba ngoon jot nekk si te buy wàcc du wàccee lu dul ay 3000 francs te des fois sax dina wàccee moins de ça coono bi mu ciy jànkoonteel waaye itam mu nekk koo xamante ne jàmbaar la ndax gis nañ ñoo xamante ne bu ñu nekkoon amaana ci situation bi mu nekk maanaam nga yor benn loxo kese di nga ko fa ba di nga fa bàyyi liggéey ndem ya ne yaa ngi yalwaan wala lu ni mel waaye moom defu ko dafa choisir rek ne dafay daan dooleem malgré handicap bi nga xamante ne am na ko xanaa rek duñ def lu dul di ko encourager bu baax a baax euh, rawatina ci weeru koor gi ñu ñaanal ko rek barke weeru koor gi topp ko barkeel liggéeyam te itam barkeel lépp loo xamante ne soomu na ko. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëfal waa alxayriya ci eh, jàppandal gi ak dimbali gi am solo gi nga xamante ne nii ñu ngi koy def ci Ramadan de ci gunge képp koo xamante ne nii ñu ngi lay eh, jël ci situation yi ni mel di nekk ay jàmbaar dëgg daam soo gisee situation yi eh, et tout le temps tamit di dégg ci média ay milliards ay milliards. Mm-hmm. lan la lay def. waaw metti rek sànq xam nga junj naa ko ci bi may wax ndóol gi nga xam ni moo nekk ci dëkk bi. Euh, wax dëgg yàlla sénégalais yi sonn nañ euh, niveau de pauvreté bi ñu nekk ci ko xam koom bi nekk Sénégal mm-hmm. ñun la réew moo xam ni yàlla jox na leen zircon jox leen euh, wax dëgg yàlla fer jox leen pétrole jox leen gaz même fekkente ne exploitation bi atteindregul vitesse de croisière am jox leen xeetu minerais yëpp yéen soxla ci àdduna bi sénégalam na ko am nañu ay réserve yoo xam ne ay zone yoo xam sax exploitation yi commencé gul te gis nañ ni euh, bu ñu euh, defee li ñu war a def ñu def exploration ñu war a def euh, mais dafa mucc ayib li ñu yore ci ci ci koom-koom ñun Sénégal waaw bu ñu amee loolu nag wax dëgg yàlla ba noppi mm, ci kaw loolu nga xam ne maanaam ñun dañu suñu kër yi ñu ngi tegu ci ay ay ay alal ju dul jeex joo xam ne àdduna bi yëpp soxla nañ ko ba nopp ñu nekk ci ndóol gu metti te malheureusement tant que mi ngi continuer nii ay tubaab lañ koy jox ñu koy exploité di yóbbu seen réew ñu ci am ay 10 pour cent ak ay montants yu faible ñu kon na di gën a ndool rek ñun Sénégal le minimum vital ñun sénégalais amuñu ko la majeure part de la population mooy ñu mën a añ añ mën a reer reer maanaam mën a mën a lekk correctement les trois repas léegi benn repas la ñuy def bu guddee bu dul ci koor gi nii bu mhm. guddee boo euh, cere yeeg fonde yi mooy daw ci mer bi nee moo dafa bon mhm. mais dafay wane rek niveau de pauvreté bi fi mu toll mhm. ngay gis ni nit ñi ku feebar boo demee hôpital doo mun faju wax dëgg yàlla xale yi bu ñu nekkee ci école yi coow li bëri na mun ñu jàng vraiment réew mi nekk ci transport bi da ngay ku liggéey ba wàcc bala moo yëg këram 23h wala wala 23 minutes jot bus dankaloo ci bus yi parce que transport doxul même s'il y a des efforts yi commencé am mais nga gis kon jafe-jafe yi Sénégalais yi nga gis ñëpp crispé mhm. nga gis ni boo leen gisee da ngay gis ni kontaan nañ quoi alors que nous nous un peuple gai. Mhm. ñun Sénégalais comme ambiance bi ngeen am ni seen plateau bi ñun mooy Sénégal mhm. ñun te réew mu neex a yor lañ parce que sénégalais bu lekkee ceebu jënam ba suur rek am jàmm naan ataaya xoolal gis nga dafa yomb yor <laughs> réew mu neex a yor a jiite la gis nga bis bu autorité yi changé de mentalité mm-hmm. ci ni ñuy rek réew mi dem parce que ñun am nañ lépp la ci si coupe d'Afrique bi ñu jëlee coupe donc en moins de 48 heures 72 heures dëkk bi dafa neex ñëpp bokk ndey bokk baay gis nga nag gis nga bu ñu bu ñu amoon loolu ma lay wax nii gis nga sénégalais yi mhm. danoo yomba nax mhm. parce que boo leen dee jox le minimum ñu mun ko am rek mhm. te minimum boobu réew bi romb nañ ko léegi ay lekk añ reer ndékki non loolu léegi dootul arrangé ci pays yu bëri surtout ñun lañ am mën nañoo def lépp mais bu fekkante ne amuñu option yooyu dañuy créer plusieurs agences naan buñ tayee ñu ni DER bu subaa ñu ni Euh, ANPEJ euh, mhm. bu subaa ñu ni euh, Prodac bu subaa ñu programme yi bari te gis ñu ñu booster l'emploi mhm. ba léegi tey la taux de chômage bi gën a élevé mu lay won ni du yoon woowu mhm. ñu am suuf soo xam ne xale yi mën nañ koo bay ñu moderniser l'agriculture financer fa ay milliards def ci ay milliards yu énorme mais xale yi nekk ci àll bi région bu nekk ñu am fa des hectares des hectares comme man na ma koy gisee à chaque fois ma voyage man yooyu laay gis quoi gis ñi neen ñu ngay gis ay hectares et des hectares ñu koy exploité. réew mi di naat ku bëgg añ añ ku bëgg reer reer meew mi bari lépp bari élevage bi di dox ngay dox ay kilomètres di gis élevage ci àll bi ni mu doxee boo demee ci réew yu mel ne Angleterre mais dangay ngay bëgg ci ñoom xool ni lii mooy développement. ñun ñu nekk fii rek ndeysaan di waaye di nii rek. di yor ay njiit yu nar a waaye di loo nii rek ba ba ko quoi. oui alors ñun on a tout ce qu'il nous faut pour ñu développer notre pays réew yooyu dañoo problème mu dañuy am loolu lépp dañuy dem bu yàgg taux de chômage bi sax day faible parce que mag ñi mën a def loolu dañuy commencé màggat ñu jeunesse bi di wàññeeku parce que foofu seen taux de natalité def faible. Hmm. comme ay réew yu mel ne Danemark seen taux de natalité bi faible mënatuñu am ay jeunes yu def loolu ba tey dañuy accélérer di ubbiwaat pour ñu mën a am jeunes yoo xam dañuy jógee dans les pays asiatiques même en Afrique pour mën fa dem. ñun ñu am ay ay xale ba nga nga gis ni ñun état bi day ragal sax xale yi alors mais loolu force la pour un pays quand la quand il y a une jeunesse mais yow raw nga yeneen réew yi parce que jeunesse mooy réew nga am jeunesse am ndox am suuf soo xam si loo ca bay mu meññ am xeetu am am yi àdduna bi yëpp soxla mais lan moo tee ñun mun ñu dem suñu yoon yii image kenn dootu ko fi gis dañoo war am réew mu neex yàlla xam na ko mais loolu nee naa leen tànk nag askan wi taxawul mm-hmm. ci loolu pour fal njiit yu am mentalité boobu ñu teg leen ci kanam ñëwuñu pour nguuru mais dañoo teg dañoo bëgg a def askan wi buur maanaam jiit yoo xam ne ñoom ñëwuñu pour nguuru mais dañoo bëgg a def askan wi buur loolu bés mais ñoom ñëwuñu teg seen bopp buur mais askan wi lañ bëgg nekk lañ bëgg def ay buur gis nga loolu bés ba mu ko amee léegi ñu daal di génn ci doon gi nekk man lii laa gëm mais tant ñoo ngi taxaw di wax rek mais jëmuñu ci boor boobu gouvernement yi di succédé wu di nuroo comme dañ koy waxee ku ñëw dagaan baatu askan wi bañ fal la nga nekk ci loola neex tant que image mel nii rek la ñuy dund. Mhm. et c' vraiment regrettable. merci merci beaucoup Dame Mbodj maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sa Anne Euh, ci Ramadan 2 également di jaajëfalaat encore une fois et jamais assez euh, waa Alxayriya ci gunge gi euh, ak li nga xamante ne ni moom mooy groupe Kirène laataa ñuy dem ci publicité bi léegi ak Kirène pour dellu siwaat ci plateau bi rek nga xam ne les choses sérieuses vont commencer comme ni ñu koy waxee ak Dame Mbodj ak waxtaan bu am solo bi nga xam ne dina dox diggam ak waa plateau bi mais surtout ak ay dara ndax dinañ waxtaane li nga xamante ne ni moom mooy parrainage bi mais surtout boobu ba léegi nag dégguñ ko ci njàpp gi nga xam ne jàppoon nañ leen ko moom ak ñoom Guy Marius Sagna ak ñooñu bële passé ba muy génn mbuus la gàddu woon mais bii bi muy génn lu mu gàddu dinañ ci ñëwaat li nga xamante ne nii am na ay jéego ci mbiru euh, aji Sarr ak Ousmane Sonko déglu yu yees yi nga xamante ne nii am na ci nan la ko gisee mais également jàpp gi ñu jàpp euh, Cheikh Oumar Diagne euh, dinañ ci waxtaan ak moom waxtaane coowal euh, pharmacie euh, bu ndakaaru Dakar waas bi nga xamante ne nii euh, am na coow ci ñenn ñoo xamante ne nii jege nañ Macky Sall ak wàllu yoon gi nga xamante ni nii waa kër docteur ñoo ko taxawal dinañ ci waxtaan bu baax a baax mais niki noonu ci anam boo xam ne kenn mosu cee dégg dàmboo ci muy jaar jaaram ndawam ak fi nga xam ne moom la soqeekoo sànq junj na Louga ak Ngumba Ngéwul mais dinañ ci gën a xuus bu baax a baax ba mu ca jógee fan ak fan la dem ndax déggoon naa euh, gone gu xawoon a terrible la ni man <laughs> mu baal ma ko rek loolu lépp dinañ ko gën a yaatal ci kanam ci kanam waaye bu ñu jógee ci li nga xam ne moom mooy publicité bi ak gunge gi nga xam ne kireen mu ngi ñu koy gunge ñu jaajëfal ko ci si la ñuy daal di dugg ci waxtaan wu am solo loolu dalal ci leen jàmm. sans conteste l'une des marques favorites des Sénégalais, le groupe Kiren a su s'installer dans les de consommation de la population sénégalaise. Depuis maintenant 20 ans, une eau jaillit de la source souterraine du village de Kiren. Cette source, d'une profondeur de 165 mètres, abrite le plus grand réservoir d'eau minérale d'Afrique de l'Ouest. Première eau L'Oukiren provient d'une nappe phréatique d'une superficie de 14 hectares, recouverte d'une couche de granit qui la protège et lui confère toute sa pureté. C'est grâce à un équipement ultramoderne que l'eau Kirène est analysée en respectant les normes d'hygiène internationales. Elle est conditionnée avec le plus grand soin pour apporter aux consommateurs toutes les qualités d'une eau minérale naturelle. Embouteillée à la source, l'eau minérale Kirène est naturellement riche en calcium, en magnésium et en bicarbonate. Et depuis le groupe Kirène a lancé une eau minérale gazéifiée, fine et légère, la pétillante de Kirène. Fondé en 2001, le groupe Kirène est rapidement devenu une référence au Sénégal, proposant aussi du jus et du lait. Fort de ses 10 lignes de production, il est aujourd'hui un exemple sénégalais de performance et de capacité d'innovation. Depuis sa création en 2001, Kiren a démocratisé l'accès à l'eau minérale. La marque fournit aujourd'hui plus de 70% du marché local, dont le format 10 litres est le best-seller de la marque. Tous les jours, des milliers de bouteilles quittent l'usine pour approvisionner en eau toutes les régions du Sénégal. 25 000 bouteilles d'eau sont produites chaque heure. Cette capacité sera doublée dans les mois à venir. Ce succès n'aurait pu avoir lieu sans ces 300 collaborateurs qui accompagnent chaque jour le groupe Kirène dans sa croissance et son développement. Le groupe ambitionne de s'étendre très vite dans la sous-région. Groupe Kirène, engageons-nous à vivre mieux. ndaanaan dëgg day taamu ndoxam yéen tamit taamu leen ndox bu baax bi Kirène soif de vivre mieux citron, des bulles et juste ce qu'il faut de sucre. 7up, rafraîchis tes repas. fi mu toll nii nag bu ngeen démarré waatoon rek ci Aïssa Thiam transition bu rafet ngeen am buteelu sëwoon a beeg Aïssa Thiam teg waaw waaw. xoolal soo nëbbeeg Aïssa Thiam rek fi lu xonk la ci digg bi. lu xonk la ci digg bi. ngeen di wër. keneen la ko waaye. xam nga xam-xam googu la. waaw xoolaat leen Aïssa Thiam bu dee lu soo nëbb waaye ngir yàlla xoolaatal leen ma loolu. am di tooy sama nëb. waaw waaw ak a neex. waaw sama nëb ak a neex te comme butéelu sama nëb la. <laughs> génnee sama sañse. ayca <laughs> merci beaucoup maa leen di jaajëfal yéen ñëpp comme ni ma ko waxee sànq na fi mu toll nii ñu ngi dugg carrément ci li nga xam ne moo waral jotaayu mbégte koor bi ndax euh, Dame lañu dalal euh, damay bàyyi rek Mbañoon dara mu daal di dugg ci waxtaan bi ayca ñu daal di. comme ni ko gars yi waxee sëmbaxloo defarulaat defaraat leen toogaay yi hmm. euh, parce que on a on a Dame Mbodj ah voilà defaraat toogaay yi ci kër yi ñii ñu ngi naan xëdd lañ jëm ñii naan dañuy salaatoo fii jullee fi fajar ñii naan balaa sept heures dinañ ñibbi ñii naan quatre heures baax na ñii naan trois heures en tout cas ak Dame Mbodj duñu yëg sax temps bi dina dem euh, ay ca mbañoon effectivement amee ndax ni mu ko tàmmeeg sénégalais yi ay waxtaanam nekk lu nga xam te nii dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci fàttali rek Dame Mbodj nekk Euh, secretaire général bu ki CUSEMS e authentique moom la ñuy daal daal di tàmbale li nga xam moom moo nekk nag sababu invité bi tey mais daam question bi nga xam te ni bëgg naa la kaa laaj mu nekk question bu njëkk moo di bës bu yàlla sàkk dañ lay gis ci euh, télé yi di la gis di la dégg ci rajo yi aussi à travers say intervention mais ñu ci gën a bëri say soppe xamuñ Dame exactement euh, fan la soqe ko fan mooy ay origine Dame Mbodj boo ko doon waxal lan nga ñuy tontu. waaw loolu day euh, yomb na euh, man maa ngi dëkk ci dëkk bu ndaw boo xam ni mi ngi nekk ci commune bu géewul géewul mi ngi nekk ci département Kébémer c'est-à-dire entre Kébémer et Louga. Hmm. Euh, dëkk bi mi ngi tudd kiir Diom c'est un petit village foofu la laa juddoo màgge Géoul. Hmm. Géoul c'est à 3 kilomètres de Kir Diom toujours dans la même zone actuellement sax sunu maire dëkk xam naa ne daañu am contentieux man ak moom parce que mi ngi loti lotissé di dugg ba sama village. Euh, parce que commune bi mu ngi yokk yokk baax na waaye nag euh, wërta euh, nangu toolu jàmbur yi hmm. te du waxtaan ak nit ñi donc loolu beneen débat la mais foofu laa juddoo ca nguma ngeewul donc jànge fa ba am sama certificat en entrée en sixième jànge ji Kébémer maintenant amee fa sama BFM après dem Louga toujours dans la région hmm. lycée Malick Sall bu Louga foofu laa amee sama baccalauréat bi ma paree nag ma dem université Gaston Berger. Mhm. Euh, bu Saint-Louis. Euh, donc ma bokk ci troisième génération voilà parce que. balaa université nga euh, yaa ngi wax lycée Malick Sall bu Louga ñëpp xam nañ ne c'est un lycée d'excellence tey ji boo doon ñëwaat tuuti si lycée d'excellence boobu bu Louga ñi nga fa tasal parce que bëri na ñoo xam ne ni aussi si Louga foofu leen jànge ak tamit ndax. foofu noonu nga amee euh, fibre maanaam syndical bi ndax fa la juddoo si yow wala ndax judd na balaataa waaw merci je dois dire nag quand même que fibre syndicale bi xam nga am na tur bu ñu tuddee boo xam ni ñu bëri euh, pourtant yéen Seneweb gis naa ngeen bind ci un jour je crois ci seen site bi euh, Dame Boye Sergent le Fou. waaw bi ñu def sa portrait. bi ñu def sama portrait mm. voilà Euh, tur bi euh, ñi ko ñi ñi ma bokkal génération xam nañ tur bi loolu ñu ma ko tuddee au CEM Makodou Kange Sall de Kébémer j'étais en classe de cinquième jàpp naa ne foofu laa commencé développer sama leadership foofu la ma virus syndicalisme duggee ma nekk en classe de cinquième mu am coow bu am sunu classe maitre mais prof bi jaay ñu doole imposer ñu benn devoir surprise ma ne waa classe bu leen ko def. Euh, mu ne moom force lay defee devoir surprise ma grève loo yi ba defuñu devoir ñu ñëwaat aussi ci foofu euh, ñu amaat euh, ay luñ doon réclamer te pourtant may nekk classe de cinquième mais maa doon taxaw ne gars yi nañ leen sànni xeer troisième yeeg quatrième ñu génn parce que boobu ñoom ñun ñoo leen gënoon a të te on était en classe de cinquième bi bi ma ci marqué sax mooy bi nga xam dem nañ ba ca raay ba ak Kébémer taxaw di xeex euh, gendarme yi comme boobu Kébémer bariwul ay gendarme Euh, romb ñu woon peut-être cinq six gendarmes ñu taxaw xeex ak ñoom ba dàq leen euh, sànni leen ci xeer raay dañoo grève génn école bi yëpp te ñun cinquième bi ñoo génne troisième yi ak quatrième yi ba noppi nag daan ni ay wane leen njëkkante dem raay ba parce que xam nañu gendarme yi daan ñëw bi leen njëkkee ci raay bi malheureusement pour bi ñu yegsee ñun ñoo leen ëppoon ay armes parce que dañoo yore suñuy xeer di sànni ñuy ñoom it ñuy sànni ñuy laalanteeg ñoom ba vraiment amoon na sax ay blessé léegi nag bi ñu paree ci loolu nag ñu xam ne def nañ musiba def nañ lu rëy tey ñu dee <laughs> léegi nag ñun dirigeant yi ñu dem làqatu ci benn kër à Kébémer léegi nag ñu nuy wër suñu benn grand moo dem xam fi ñu nekk comme mooy grand quartier université ñëw di nekk ci koñ bi moo ñu daan encadré mhm. léegi grand boobu moom moo xamoon fi ñu nekk quoi moom moo dem ni préfet léegi boo yi ngeen di wër man xam naa fi nekk mais dañ may jox garantie que ñu génnee ñëw benn problème du am boobu man mii maa ko jiite léegi nag mu ñëw jël si ñu ñu dem préfecture euh, mairie Kébémer préfet ñëw présider réunion pour ñu def réunion pour wut ay solution ci liñ doon ñaxtu foofa sax la ndeysaan euh, principal ba léegi génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm. falaa dugg see mu ne ah sergent le Fodé bu ko jiitee euh, euh, réunion bi do àgg <laughs> parce que man boobu jitee très têtu ñeme naa ruux gaynde <laughs> léegi tur woowu moom a topp foofa à l'époque ñu naan dam mboj sergent le Fou foofu daal jàpp naa ni fa la sama leadership Lycée Malick Sall bi ma fa ñëwee Euh, maa ngi fa fekk samay grand euh, samay grand mooy euh, ñoom Cheikh Yérim Seck ay ñoom Mounirou Sy. Mounirou Sy constitutionnaliste. constitutionnaliste waaw Cheikh Yérim Seck journaliste. journaliste bu bàyyi nekk journaliste je crois léegi nee na bàyyi na. léegi jël na retraite jël na retraite mm-hmm. voilà ci métier journaliste bi. ñoom ñoo doon samay grand man bi may ñëw ñoom ñi ngi en classe de terminal ma ñëw défier leen parce que dama ñëw. fekk leen ñoom grand yi bon voilà ils étaient brillants nag c'est une génération qui était brillante il y avait d'autres hein le maire c'était pas d'ailleurs ñoom ñaar ñooñu c'était Dié El Mokhtar Aïdara euh, qui est actuellement dans le cabinet de Emmanuel Macron euh, ñoom euh, vraiment ils étaient brillants cette génération la mais ñun aussi on était pas on était pas mal c'est-à-dire que génération yooyu vraiment dañu daje ci euh, école bi muy génération yu naqaree jiite même proviseur bi dafa amoon ay jafe-jafe euh, vraiment gérer école bi euh, dafa amoon ay leader quoi. Mm-hmm. Euh, man bi ma ñëwee ma gis ni ñoom xamata xam ñoo ëpp envergure. voilà et puis c' était des élèves souvent brillants ma ñëw man gis ni seconde yi ñooy gën a bëri xam nga lycée boo yegsee seconde yi ñoo gën a bëri. parce que looy gën a dem muy wàññeeku. parce que mën nga dem am six classes de seconde. am mm-hmm. par exemple trois classes de de première. Mm-hmm. am deux classes de terminale et cetera donc ñun ñoo gënoon bëri. ma gis ni foyer bi ay terminal rek ñoo fa nekk di ñu jiite. ma woo seconde yëpp age ñun seconde yi kese mën leen gars yi buñ dof suñ nombre bi dafa war a jariñ quelque chose léegi ñoom ñi ngi def seen foyer bi bàyyi ba ñun ñuy ñëw di inscrire ñoo avant ñu ñëw defar nañ seen bureau nañ dem yàq li ñuy def ñu dem jaxase euh, jaxase affaire bi. léegi ni leen euh, ñun nan nan reprendre affaire yi ñun dañ ñoo war a copte dañoo war a bokk ñun. ca lañ ma dugale man ak sama gars yi ñu bokk ci ci foyer bi ma bokk ñu jiite waaw ñu impose bopp ñun seconde di utiliser suñu nombre léegi bi ñu defee loolu euh, foofu aussi euh, vraiment bokkoon naa ci ñi nga xam ñoo fa gënoon a ci li doon xeex ñooñu après bi ñu demee loolu laa def aussi bi ma demee université Berger ñoo fekk leen ñu nekk licence ñoom ñooñu parce que ñoom it dama dajewaat ak ñoom université Berger ñoom Yérim ñu nekk en licence man may doog a foofa tamit loolu laa defaat mais ñoom foofu sax ñu ëpp ñoom Euh, man bi may jeexal ci la génération les plus jeunes ñoom Sonko. Euh, doog a ñëw ak ah, ñoom ay ay Birame Souleye ah oui Sonko maa ko mag maa ko fa jiitu bi may jeexal lay ñëw bu ñu fay fekkante un an. man bi may def maîtrise da yaakaar ne Sonko maa la mag. non non Sonko est très jeune euh, bi bi bi ñuy man bi may def maîtrise. Mm-hmm. Euh, ci lay ci lay doog a ñëw moom mais secret dégg nga lu mu la am yow euh. secret maanaam lan moo tax daam ñu roog jeune ba léegi. no mais man euh, bon man par là ah <laughs> ñu ñu naan dama garde jeune bon c'est vrai que. Et comme on dit hein boo amee benn hygiène de vie vraiment man ni may gis nii c'est bëri naay activité nii mais bu ma paree ci lii maa ngi sama kër nekk ak sama njaboot ah làq nga ñaata kii no man sama âge man mais am naa actuellement cinquante ans macha allah non non benn jabar baaxul man li ma gëm mooy euh, c'est vrai que benn jabar laa yore mais loolu du raison bi quoi c'est-à-dire euh, man li ma gëm man li ma gëm man li ma gëm mooy wax dëgg yàlla war naa am lu ëpp benn soxna loolu moom vraiment hmm. euh, dañ ma koy xase sama famille mais wax nañ dëgg jot na nag ma takk benn xale bu ndaw boo xam si day am benn comme nangu nga ko benn non non c'est vrai heure bi war naa war na maa mën a laaj xale bu ndaw nag wax dëgg yàlla def ko ñaareel euh, boo xam ne nag bu nu yar lay doon parce que nag euh, voilà mais vraiment daal euh, loolu loolu laa dund ci sama sama jeune j'étais quand même à l'université au niveau de l'assemblée de l'université porte-parole des étudiants moo fay nekk nekk au niveau de la commission sociale mm. nekk au niveau de la coordination des étudiants dama mos a nekk nit ku bëgg jiite Euh, vraiment euh, bu ma nekkee ak samay moroom damay bëgg bokk ci ñi nga xam ñoom ñooy nekk kàngam yi di di di wax ci turu étudiants yi. et cetera loolu laa mos a gëm bi ma nekk ah. élève déjà. Ah. mais bi ma nekk géewul aussi j'étais le président du foyer des jeunes et cetera man de de tout de tout temps. dama mos a engagé wu. Ah, bëgg naa nga ñëw ci dégg naa ay jamono arbitre nga woon mais après dinañ si ñëw mais daam. arbitre football waaw dégg naa ko. waaw j'ai arbitré dem naa ba euh, district boobu université Gaston Berger moo fay nekk sax maa ngi doon def sama formation euh, pour mënoon naa ko ne j'avais l'ambition d'être un fédéral ah j'étais un bon arbitre parce que aayu ma woon ci football quoi parce que man football naa nawetaan ne cuune laa woon Euh, benn latéral nag mosuma ñe benn ailier mosuma ñeme parce que latéral gauche laa woon. Mm. ailier bu nar a dajeeg man nawetaan guddi gi dañ naa la tey nga tey suba dam ngay teseel mais nag man dama doon gaañee rek quoi dama doon gaañee bu la bu la sa entraîneur woowee sax damay dem damay dem sax di déglu damay dem sax di déglu damay dem déglu la sa entraîneur di wax boo ñëwee man la bu boo ko defee rek daggal saa dama dama lay seere marquage à la kilo man loolu laa doon def may nekk euh, ci nawetaan parce que man aayu ma woon mais amoon naa xadar. jom jom jom am xadar voilà. Euh, dama lay teg pression ba élié bi vraiment pression moo koy teg day yàkkamti match bi jeex. d'accord voilà donc genre kii yooyu laa def. bëggoon naa xam aussi daam ba xam aussi comme ni ko yenn ci ndaw di dundee jamono jii ni fii ci Sénégal moo di euh, jamono ju tar maanaam nga xëy sa franc euh, nekk sa poos wala du fa nekk ngay. lënti lënti pour lijjanti loo jëndee café wala loo jëndee dara est-ce que yow daam loolu yow dund nga ko ci sa live ah oui euh, ça parce que euh, man comme ni ko waxee ñëw mën a juddu fekk ay parents yu jal jal bi parce que loolu c'est important xam am na ñoo xam dañoo judd rek ay fekk ay parents yu defar immeuble hmm. xam nga ñooñu moom du souvent damay wax nii wax dëgg yàlla ñoom euh, am nañ mérite peut-être bu ñu yokkee mais hmm. euh, dañu ñëw fekk jal bi kawe hmm. man fekkuma jal bu kawe quand bon fekk naa ay waajur yoo xam yar nañ ma am ay revenu modeste euh, ma nekk tout tànk dund lu metti des fois nga xëy jàngi nekk ci ay tumuranke bu euh, ñu jamono ju taroon ci daam. waaw non tar tar tar loolu am na mais xam nga day toll yoo xam ni boo ko fàttalee mun na xaw a frustré parce que xam nga ñun bi ñu jàng dañ doon joxe euh, xaw ma ndax comprendre nga fi may waxee. xam naa ay xam nga léegi jàng dafa neex léegi jàngaani quoi xam nga ñun. ñun ñun léegi damay wax ne génération yi léegi avec ce qu'on appelle l'élargissement de la carte scolaire nga xam léegi dëkk yu ndaw ndawaan yëpp am na école man bi may jàng CM2 géewul CM dama koy wax élèves yi géewul nga xam léegi sax ñu ngi fay defar université l'université de géewul euh, bu mari taw ñaan bi <laughs> noonu laa ko tuddee ba léegi mënut a pare moom moo ko créé non créé na l'université de Géoul euh, ñu ngi tabax yaa nga fa mais ba léegi yeggul ko mais je veux dire euh, léegi Géoul am na lycée am na am na am na ñaari CEM am na beaucoup d' école élémentaire quartier boo dem am na école élémentaire mais ñun bi ñuy jàng ak Yeewoul benn école élémentaire moo amoon boo jàngee ba école tëj booy def en transième sax mënoo ko fa defee. Hmm. da ngay dem Kébémer pour dem def en transième. Hmm. donc mooy sa premier génn. en tant que xale. loolu dund nañ ko nga xam da ngay ñëw jàng ba école tëj léegi nag ngeen dem na Kébémer defi examen. dëkk yooyu yëpp muy ay Daaru Musti ak yeneen yéeg yëpp quoi euh, boobu ñoom Modou Diagne Fada ñoo doon suñuy grand moom mu dëkk Daaru Musti mais euh, dund nañ loolu muy lu metti euh, parce que nga juge ci say waajur moo tax ma xale yi léegi ci dëkk yëpp ah commencer par géewul ma leen yéen vous avez tout devant vous mais d'ailleurs moo tax sax dañuy jàng dafa ànd ak tumuraanke hmm. man li ma gën mooy xale buy jàng mu am tuuti tumuraanke baax na ci boo ko waxee nag ñenn ñi toujours ak théorie yi ñu yore dañ naan non et cetera parce que man châtiment corporel bokk naa ñi nga xam man gëw man dañ ko war a dindi boo ko waxee nag tey jii ñu attaqué te ma parce que à chaque fois moo wax yooyu waaw parce que bi ñu dindee châtiment corporel ci la xale yi commencé def leen neex daani léegi ñun faaleetuñ maître bi hmm. parce que xale caw ko wàññiwul dara yaay moo gën a bëgg doom bu caw doomam da koo bëgg a rey rey ko da ko bëgg mais sa doom def lu kii nga jël yar bu ko mu ne mu yuuxu ko loolu day cultiver beneen affaire ci xale bi mais non nga gis benn kuy tubaab tubaab doo on frappe pas les enfants loolu yëpp tubaab la ñun xale da nga koy caw caw ko ci tànk yi taxul nga gaañ ko mais da bëgg mu xam ni lim def nii waru ko def yaayam bu ko cawee moom mi ko jur juróom moom mi ko ëmb juróom-ñeenti weer moo gën a bëgg ñëpp. Mm-hmm. mais da koy caw papaam kam bàyyi li ngay dóor xale bi et cetera man mii da koy yor dama koy kaas ah. sama jabar la ma <laughs> ma nga naan non Euh, yaay kenn gënu koo bëgg doom mais jàngalekat aussi noonu la mel dafa bëgg dafa bëgg élève am mais caw xale boobu ñu dindi ci njàng mi c'est une catastrophe te ay théorie importée toujours comme ni ma koy waxee ay tubaab ko lawal ci seeni réew nga xam ne foofa la euh, doom di taxaw ne yaayam maman tu ah, kon bu nekkee fii Sénégal xale yi commencé wax maman tu mens mais c'est normal parce que ñun la lay def rek la def fii mm-hmm. Euh, yar boobu c'est important ñun dañu doon yar xam nga donc nga dund tumuranke tuuti parce que jàng bu ànd ak tumuranke dafa baax xale bi tumuranke day xam ëllëg responsabilité mais xale boo xam si dafa judd ci clim léppam di nekk ci kii buy dem école dañ koy couver ah nekk toujours bébé mais chauffeur bi taxaw di ko xaar mais xale boobu dañ koy couver couver couver ba nga xam ne boo màggee day am lu ko manqué parce que tumuranke wul tumuranke tuuti dafa baax xale loolu c'est important jàng dafa ànd ak tuuti tumuranke mais jàng boo xam ci confort nga nekk du préscolaire jusqu'à l'université day tax nga manqué maturité xale bi def loolu day manqué maturité mhm. moo tax xale yi doo gis léegi bu ñu bu ñu paree bay liggéey da ngay gis ni boo leen gisee ci seen entreprise yi xale yi dund loolu laay wax bien sûr da gis ni même bu ñu amee une bonne formation léegi la leen di manqué mooy la formation de la rue la formation de la jeunesse bi nga xam dañuy jonjoon teg yenn jafe-jafe yi parce que may ñu leen benn moment boo xam si dund nañ seen affaire xale dund nañ ay jafe-jafe xale loolu baaxul ci yar donc man dund naa loolu lépp dund jafe-jafe yi ba rek ñëw euh, war a jàngi añu nga dem jàngiwaat wàcc ñëw war a jàngiwaat añ bi parewul et cetera voilà non loolu ay wax la gis nga waxuma la xiifal. non gars yi wax. mais xale bu suuree du mën a jàpp ne la waa xale boo xam si dañ koo defal lépp goûter yi ak lépp na ci saag bi muy lekk bu suur et gis nga xale boobu du concentré wu sax motivation ba mu laaj du ko am mais ngay ñu sentir ne yow mii yaa ngi xiif yenn saa yi loolu day tax nga am jom. kon daal yow d'accord ci politique gu cantine à l'école yeeg yooyu. non cantine à l'école yi mënatu la ñàkk parce que ni ñuy dundee léegi la. li may wax ni man nag je reconnais aussi que yi may wax contexte yooyu jeex na. loolu aussi mooy dëgg parce que contexte yi nekk léegi dafa am un phénomène de d'urbanisation à outrance boo xam ne moo tax loola ñu doon dund ñun ñii xale yi mëntuñ ko dund. voilà donc fii bu ñu fa deful loolu xale yi mais ñun foofu dañu doon nekk ci école bi bu midi jotee ñu wàcc dem kër ga bu ñu paree dellusiwaat 15 heures et cetera donc donc te xale yi suñu leen bëggee téye nag quand même heures ba 17 heures wala ba 16 heures du ñu lekk dara kooku tam baaxul ci jàng mais man li ma gëm daal mooy jàng day ànd ak tuuti tumuranke man tumuranke naa comme bu revenir ci question bi nga laaj vraiment dund lu metti en tant que par exemple koo xam mm. dafa dëkk ci ak ay parents yoo xam amuñu moyen ñu koy joxe ci ay kër yoo xam ne tamit effectivement amuñu moyen ngay dund loolu quand même di toog di xiif mm. nga xam ne dañ daan toog euh, parce que man am nay moment yoo xam ni euh, dund naa lu metti loo xam da gis ko boo amee sa benn xarit bu mën a jënd fukki dërëmu gerte caaf booba nag fukki dërëm gerte caaf day bëri ah oui noonu comme léegi. comme léegi gerte caaf bi ñuy joxe nii fukki dërëm. non bu njëkk boo daan jënd fukki dërëm gerte caaf. parce que laxas ñaar dërëm am laxas ñaar dërëm woo. buñ la boo daan jënd fukki dërëm fukki dërëm nga am fukki dërëm ba pour payer gerte bañ jënd fukki dërëm gerte caaf. non dañuy mën a lekk lu baax. waaw boole ko ak mburu yëpp ay tuma xeet. mais daam yow daan nga dem di sàcc mango. loolu lépp def naa ko euh, tëb ci toolu jàmbur euh, sàcc mango ñoo jàpp leen andi sa papa jàpp la dóor ba ngay bëgg de ne la man dama juruma doom ji sàcc mais yenn saa yi nga sàcc rëcc ak dem sàcc sàcc xaal toolu xaalu jàmbur ngumba ak yow li ma ko def kenn xamul noonu waa ngumba yi may seetaan toolu bàyyi xëy ndaw lañ daan wax ci toolu bàyyi xëy ndaw bàyyi xëy ndaw dama ne ko paa xam ne dafa mënoon xaalam da daan neex ba noppi toolu xaal bi soriwul. non toolu rek dafa nuroo xaal. waaw dafa nuroo voilà. mbaay xëy xëy ndaw taal tool tool bi da daan jege da daan jege da daan jege dëkkuwaay bi mooy tool yi toolu tukkër bi quoi. yi gën a jege kër dëkk nga xam ne guddi dañuy bàyyi ko guddi gi ñu dem sàcc xaal. mooy moment bi nawet bi di jeex noonu xam nga xaal moom bu demee ba tawatul presque ci lay dox balay bi jàpp ko mu saf suukar eh. léegi nag bu ñu demee ba guddi ñu sàcc xaal parce que guddi gi daan nañ def ñaar yi maanaam wër ci yenn kër yi sàcc reer ba la fa des sàcc reer sàcc reer ba dafa def daam bool dof bool dof ko non boo dee bool dof sax xama bool dof mooy ñu añ ba pare denc desit bi bu neex ba ca kanam ba xale yi xiif ñu génn leen bool dof mais bii nii dañuy reer nga bàyyi bañ bañ tëdd liñ liñ de liñ li ñu togg noonu Euh, pour pour pour war oh, voilà pour war a xëy ndékkee ko. ndékkee ko wala nga bàyyi bu waa kër gi tëdd. nga xam ne wàññi wàññi. waaw wàññi ah. non seulement day. du am buntu du dara. ngeen ngeen dem ngeen dem birig lañ daan tëjee kubéer gi. ngeen dem ngeen dem ni coppet cin li <laughs> coppet ci ne kenn ko dégg ngeen dem ba ca mbedd ma teg ko fa ni ko réel dem jël beneen kër ni ku réel ba ñëpp suur ñu dem ci àll bi dem sàcc xaal deseeru doog a tëdd yooyu yëpp def nañ ko attaque xale yooyu nañ ko macha allah xam nga xale dafa laay wax xam nga léegi soo xale ma tax ma ne contexte bokkutul xam nga léegi xale yi am ci ay tubaabe lañ dund nekk ci milieu confort xam nga xamuñu may wax nii. xam naa bu déggee sax ñu ngi naan mais kii. non mais man sama benn grand nee na mooyul bu góor muy wéet. nay fow yi di dóor dàqe di. tax suuf buy dem ci njaalo. gis nga buy wéet xel mi xam nga ñu bëri du ñu xam ni. nga jël sa doom tëj ko tëj tëj tëj tëj tëj ba mu am vingt ans rek mooy yow euh, euh, adulte bébé nga yore rek. xam nga lu tax parce que moom dundul li tax moo forgé wu parce que foo ci koñ bi dem di xeex ci koñ bi ñëwaat jooy ah gaañu nga fo nga ñu fajal ko affaire bi mu demaan ñëw génnaat et cetera di ànd ak ñoom di dem di def ay affaire di football yi di ñëwaat loolu day forger personnalité ci xale bi. mais bu fekkee ne xale bi dañ koo tëj tëjee tëjee tëj kenn du ko bàyyi mu génn fu mu jëm oto baa ngi gaar. buy mais te famille yooyu moo am ci ay famille yu bëri ah. cest à que xale boobu du xam dara. léegi nag mën na brillant à l'école bien encadré et cetera am tous les documents ah, xam nga dem ci école def toj ko def ay résultats mais jàng du rek. day day manqué leneen. loo xam ne bu demee ba ci gis nga kooku gis nga bu demee ba dans le milieu de l' entreprise gis koo xam ni il a été très bien formé au Sénégal ba dem jàngi sax bitim réew am ay diplôme yu rëy ñëw mais gis nga boo ko xoolee muy manager boo ko xoolee muy manager da ngay gis am loo ko manqué. parce que réalité yi ko réalité yi du day day maanaam buy gérer personnel bi. nga xam moom mooy seen kilifa parce que ay diplôme lañ ko ko joxe. mais da ngay gis ci biir personnel bi da am ko gën a ñor. gën ko mun a gérer li muy parce que dañuy am lu mu amul. donc affaire boobu c'est important ci xale quand même pour mu def un cursus comme ça te man loolu moom quand même amoon naa ko mooy vraiment dama dund sama jeunesse à fond. d'accord euh, man dama bëggoon euh, mu dellu si euh, ci benn ci benn mbir moo xam ne mos naa dégg benn yoon ñu nettali ko mu di benn vécu du pour yàq émission bi nag. non booy bu dugg foofu. dama bëggoon nga dellu <laughs> si bu ma sañoon foofu moom. dama bëgg a ñaan rek daam nag tey moom. sans sans détour mais mais mais partie boobu damaa bëgg xam lan la. non non partie boobu lan la parce que déglu ma. voilà man mii xaw ma lan la. waaw mais non c'est une expérience douloureuse. Mhm. boo xam ne bu ma ko nettalee dinaa yàq plateau bi bi te loolu tax Mohamed il faut nga jàpp ci booy bi dafa ñaan. ñoom lépp daal rek ñoom Ameth bëgg na ñoo xam. waaw non non non douloureuse rek c'est-à-dire j'ai perdu un ami. boo xam ne bu ci duggee laaj ma question yi nan la demee dina compliqué. non dama bëggoon rek pour nga wax euh, exactement rek lan moo tax. Euh, état boobu lan moo gën a tax état boobu su ma sañoon ñu tëb. voilà lan lan moo gën a tax rek lan moo gën a tax histoire boobu. Euh, ba Dame Mbodj ba nu marqué tey presque 40 wala 50 ans. à chaque fois boo ko déggee rek mu am fut lay toll. mais dina baax également nga waxal nit ñi véritablement nan la demee aussi non non non loolu bu ma ci duggee rek bu ma nettalee rek nee naa la ma ko nettali dem naa États-Unis di def benn eh, interview. ñu mhm. laaj ma la gën a métti sa àdduna événement boobu laa joxe bi ma bi àggale wu ma interview ba ak eh, le journaliste eh, bi doon def émission bi ak man foofu parce que dama ñëw foofu mu tombé woon ak visite du à l'époque du président Bush je ne sais pas à l'époque bu doon ñëw au Sénégal. Mhm. man mu fekk ma foofu may def benn formation. ñu ne ko benn sénégalais mi ngi fii presse locale bi après mu ne non daf ko bëgg a dafa bëgg interroger par rapport ak la visite bi fekk moom ñi ngi waajal pour mu ñëw Sénégal le président des États-Unis ah. donc mais vraiment bi may interroger ba laaj ma xam américain ñoom dañuy voilà dañu dañu mën a laaj genre question yooyu li la gën a marqué ci sa àdduna lu la gën a neex Euh, foofu ma ca duggee quand même euh, euh, heureusement ca fin émission ba la. daf mujj ñu dagg gën la marqué daal. waaw marqué na ma parce que c' était un événement douloureux nit koo xam ne sa xarit la ngeen dund lu nekk nga toog ba ci àgg yàlla arraché ko comme ça. ci événement moom yéen a ànd nga vivre son décès en direct kooku dafa diis. accident la waaw. waaw bu ma expliquer vraiment naa moo tax man su may su may su may laaj ñu laaj ma bi ma gën a neex moom ma gënal parce que boobu dafa marqué vraiment mu metti lool ci sama dund. waaw mu metti lool sama dund bu ma ko nettalee duma dem donc alors que am naa nag lu ma gën a neex sama dund loo xam ne suñ ma ko laajee aussi loolu damay am plaisir wax ci Euh, parce que loolu ñaari événement yooyu ñooy événement yi mu marqué ci sama àdduna mooy bi nga xam si mënuma ci wax. parce que mais nous sommes en mois de euh, sax kooku nga xam te nga ah, ñaanal loolu kay mën ñaanal parce que ñu ngi koy ñaanal par Samba Diop yàlla xaare xaare ko àjjana. Hmm. moom aussi ay mbiru euh, nawetaan lañ bokkoon rek ah jeunesse rek moo ñu boole woon moom ma magoon sax. Hmm. moo ma magoon foofu mais ma dama mos waane daaw ma ànd ak samay morom loolu aussi bokk na ci waane. <laughs> man ñi ma doon àndal souvent ñoo may mag am na benn moment nag ànd naa ak samay morom bi may nekk à l'école élémentaire ak yooyu euh, ba bi may nekk au lycée may ànd ak samay morom mais à part de l'université ñi ma doon àndal ñoo ma doon mag. ban souvenir ban souvenir ngay garder ci moom ba léegi. waaw mais nit ku mën a tooñ. Euh, saboté vraiment sympathique mbalak waa bu nekkoon fii ñëpp di reetaan mu reetaan loo ñëpp et cetera un type sympathique vraiment formidable waaw donc loolu moo tax. Euh, Euh, son décès a touché tout le monde. c'était euh, brutal ñëpp quoi très brutal mais décès kay euh, c'était en deux mille deux mille un. deux mille un deux mille un voilà donc loolu voilà boobu fekk na vraiment maa ngi université Gaston Berger mais vraiment non non boobu génn naa université sax boobu pare naa université Gaston Berger mais vraiment c'était un événement douloureux man sama àdduna bokk na ci parce que perdre naa être bu nekk comme on dit quoi. père xam nga boo demee ba perdre say frère perdre sa papa. Hmm. Euh, te ba léegi bu ñu nga gis ne dese ba léegi la gën a laal kon xam ne laal na la. Hmm. parce que waajur xam nga dara gën a ko foor hmm. mais. dese dese bi ni mu amee la quoi xam nga nekk nit kii ba mu jàgg rek affaire mu bett la comme ça surtout ngeen doon waajal ay ay activité ensemble. veille activité bu mag pour rassembler les jeunes de euh, de d'un jumelage qu'on avait Kokkal Kokki Sakkal Daaru Musi Géewul un jumelage quadripartite qu'on avait mhm. à l'époque ñu dem di ko waajal war ko organiser waaw la veille mu décédé oh. la matin sax am na ñoo xam bi ñuy jógee seen dëkk di ñëw ci jumelage bi mhm. yëguñu ne décédé parce que ci guddi gi la décès bi am donc euh, jour bi ñuy ubbi euh, jumelage bi mhm. ñi nga xam dañuy ñëw ak seen bus bi ñu yegg si euh, téléphone. waaw boobu téléphone mel comme léegi voilà c' ça donc ñu bëri ñëw nañ ba yegg si nii yëguñu de euh, décès bi bi am na waa donc parce que nit ñu taluñu woon sax parce que tellement la décès a choqué les gens. donc vraiment événement bu ma bu ma diis la ci sama ci sama dund mais àdduna comme on waa ku nekk am nga loo xam dina la laal ci sa ci sa àdduna quand même quoi loo koy yóbbante en direct fa mu nekk jamono ji nii waaw di ko wax ne ko ñun ñu ngi am yaakaar ci moom ndaxte nit ku baax la woon servir la jeunesse de Géoul jël jeunesse am yëpp jox ko Géoul euh, nekkoon nit ku baax yàggoon bëgg rassembler tout le monde lu mu am bokk ak ñëpp buntu këram la ñëpp doon daje te pourtant amul woon dara lu extraordinaire daanaka euh, da doon euh, def ay liggéey yoo xam ni dina ci mën a yore njabootam mais du woon mën a yore lu extraordinaire. Mm-hmm. Euh, mais amoon relation ak tout le monde kenn mën laa wax ni kii noonam tellement il était formidable avec les jeunes. Euh, mais man moo ma moom a remplacé en tant que président du foyer des jeunes de Guéoul man maa ko nekkoon bi ma ko joxee jox ko flambeau bi eh, mu nekk ci mandat bi war a organiser nag fekk man organiser woon naa bi ma koy yore moom aussi mu war a organiser après mon mandat malheureusement yàlla doxaloon mais ñi ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana vraiment fa mu dë tëdd gënal ko fi mu jógee mais comme ni ñu ko waxee am nañ yaakaar si moom mais am naa événement nag comme toujours gars yi dañuy wax dina gën a neex mais bi ma gën a neex quand man moo may gën a toujours ma si wax parce que bi ma gën a neex mooy man Euh, dama gëm solidarité bi ñu doon wax sànq. Hmm. ma nekk à Oussouye di jàngale nekk un jeune professeur à Oussouye nekk le patron des professeurs d'anglais d'Oussouye comme ni ma koy waxee. ñu wàññil ma sax samay heure pour may mun encadrer les profs d'anglais loolu laa demee woon Oussouye man ma fay dem. bi ma yegsee ma am un élève qui était brillant qui euh, qui s'appelait Émile Théodore Diatta euh, mu nekk sama classe brillant mais ma toog ci gis muy absenté absenté lu bëri di feebar quoi. ma jege ko parce que jàngalekat dëgg day jege élève ma jege ko waxtaan ak moom mu ne ma moom parce que moom mu ngi doon jóge ci village boo xam ne du comme ñun suñu zone bi mhm. dans ce milieu là c'est pas évident nga am kër goo nekk ñoom dañ doon dajaloo ci benn kër boo xam ne souvent parfois sax day nekk kër gu àggul guñ leen aal wala dara ñoom villageois yi dëkk benn dëkk yu ñëw ah. di jàng ci dëkk ville bi fi mu tuddee ville quoi parce que mhm. aussi dama wax toujours ne ville rurale la muy njàngaan yi rek bu ñu ñëwee bokk nag léegi euh, kër gi ñoom ñëpp mhm. ku ci nekk bu ñu xëyee nga cotiser ceeb ñu togg cotiser li ñuy def yëpp ñuy cotiser ko seen biir entre élèves di lekk. Mm-hmm. ku ku jàngiwul euh, midi ba ku am midi yaay togg. ñi ñi euh, ñi des euh, tamit ñu def calculer ko daal ba ku nekk xam li ngay def. Mm-hmm. léegi nag mu nekk ci boobu vraiment di lekk ceeb te allergique ko quoi ceeb bu bëri quoi am na ñoo xam ne dañu allergique ceeb bu ñu ko dee lekk lu bëri day feeñ seen yaram. bon mu dem ba médecin bi wax ni loolu la soupçonné ni moom la quoi léegi nag te moom foofu lay lekkee ci ñoom man la ma ko laajee mun ma lool bokk na ci raison yi ma ne ma ñëw toog ak sama collègue yi comme ñun dañuy def popote quoi ñun jàngalekat yi. waaw c'est-à-dire euh, prof yi dañ bokk kër. ku bu am buñ ah, jabar jël benn bon bu ñuy toggal fin du mois ku nekk cotisé trente mille wala trente cinq mille d'ailleurs yéen ay nekk patron dëkk bi wax day neex ah. wax dëgg yàlla bu ngeen nekkee sept prof ku nekk joxe trente cinq mille <laughs> wala quarante mille vraiment da ngeen dund dund bu neex quoi ci dëkk yooyu surtout dëkk yooyu waaw dañuy am élèves yi ñuy fréquenté man dama léegi léegi léegi léegi maintenant mhm. mu ma ma ñëw euh, jour boobu ma ko waxee ma ñëw nag ñuy añ ma ne gars yi ah man daal dama am euh, benn élève moo bëgg inscrire ci popot ñu ni ma luy lool man leen non dama ko bëgg a mu bokk ci ñun di añandoog ñun di reerandoog ñun. parce que condition ya mu nekk moo tax muy feebar. léegi nag dama bëgg mu nekk ak ñun. après ah gars yi ne ma léegi loolu dina dis ci yow de. xanaa ñu wàññil la muy fay genn wàll gi ma leen ah yéen daal yi man bu ngeen d'accord ma fay lépp it ma fay lépp bu fekkee ah, da ngeen may wàññi leen ngeen wàññil ma may man daal dama bëgg mu ñëw di lekk ci ñun. Mhm. gars yi defal ma may fay. donc moitié euh, sama euh, part bi moitié bi quoi je sais plus quel est le montant bu dee trente cinq mille ou trente mille la moitié ma koy fayal muy lekk ci ñoon bu paree dem ñibbi bi mu defee loolu ba ma ni ñu gis amélioration ci ni muy dundee vraiment muy kii ma koy jàppale aussi bu feebaree ma adopté genre adopté ko sax presque quoi. Mm-hmm. léegi ñu toog ba ci yàgg rek mu ñëw woo mu ñëw ñu toog mu ne ma monsieur man ne ko am ah, dama la soxla ñu añ ba pare nii quoi ma ne ko ma jàmm la mu man daal monsieur yow doo sama mbokk. fii rek nga ma xamee amuñu benn euh, affaire bu ñu lié lu dul nga may jàngal ma nekk ci jafe-jafe nga jàppale ma ci man xam naa ni jullit lu baax la man dama bëgg a tuub ah, neex mhm. mu ne ma dama te foofu ñoom du ñuy tuub quand ci ku leen xam mhm. waaw ko xam usu yi di xam ne tuub yomb leen mhm. parce que day am ma ni ah, ma waaw man dama bëgg tuub ma ne ko ah lii de lu rëy nga ma wax mu ne ma man daal gis naa ni jullit lu baax la bi ma waxee ma waxtaan ceeg kenn ci oustaz ki ma bokkal fa oustaz la ma moom mu ne ma mais yow kay lii am nga lu rëy léegi nag mu nooy dem ma ne ko ñu waxtaan ma ne ko mais man bala muy dugg ci lii ak milieu bi dama ko xam il faut ma dem waxtaan ak ay njabootam mm-hmm. weekend ba ca topp ma jox ko paas mu dem waxtaan ak ay waajuram ñëw ne ma waxtaan na ceeg moom loolu c'était pour ma préparer leen mu dem wax leen ne la bëgg que moo ko bëggal boppam mu ñëw rendre ma kon ne ma nee nañ d' accord ne ay waajur mooy village am quoi. Mm-hmm. man ma d' accord ne ma ne ko ah waaw. c' la première fois ma fanaan ci village parce que zone boobu zone de guerre la aussi il faut que nit ñi nangu ko daaw ma dama doon limiter samay déplacement mm-hmm. ma ni yàlla rek a fi ne jour boobu laa mos a fanaan ci village. ma ànd ak moom ñu dem ci village am mm-hmm. ci zone boo xam zone de guerre la ma dem village am ñu ñu doog reer ba pare. ma fanaan fa c'était un samedi ma toog famille bi yëpp ñu waxtaan man leen lim leen wax lan ngeen ko ci wax parce que ñëw na ni ma d'accord ngeen ci ñu ni ñoom amuñ ci benn problème parce que am nañ seen sœur bu ne bi di sëy ak jullit hmm. kon dérangé wu leen mën na nekk mën na tout ma nekk ko man leen kon comme jox ngeen ko ci ndigal alhamdulilah léegi nag man ma xëy euh, ñibbi moom ci ngoon gi sax la ñëw rejoindre à di lundi mardi mercredi jeudi ma waxtaan ceeg sama gars yi après ma dem seeti imaamu dëkk bi Euh, bi ma demee waxtaan ak moom mu ne yee am nga lu rëy tuub ma ne ko waaw mun ma ah kon fi nga jaar ak moom rëy na. mun ma léegi nag kon ustaas bii nga àndal ustaas gay mi ngi may dégg léegi mu ngi à Saint-Louis comme professeur d'arabe mu ne mu ne comme mooy def waxtaan yi avant heure jumaa bi mu ne moom xam-xamam doy nañu comme defal na ko charte tuub yi mu laaj ko mu ne ko noo defal naa ko charte tuub yi ba pare après mu ne ma kon nag léegi siiwal gee des suba. ci jumaa ji bu ngeen di ñëw na ànd pour ñu siiwal ko keroog mu ko fàtte mu ko après koor la woon après korité yére korité bi ma solo mhm. mbasin bu jaune bi mu ko fàtte mu moom laa jël may ko moom laa moom ko jox mu sol ko ñu ànd dem julli ci mhm. ñu yegg si ñu taxaw julli ba pare oustaz oustaz ni man sasoo naa di ko jàngal nu muy jullee mhm. sasoo naa jàngal ko charte julli yeeg yëpp ak nu muy jàppeeg nu muy def yëpp mais nag en attendant day ànd ak ñun di julli même bu mënta wax dara léegi nag bu ñuy julli ñun ñëpp sàppe mu ànd ak ñun ci biir kër gi quoi comme ñun dañ daan jullee ci biir kër gi ustaas jiite mu koy jàngal et cetera mais jour boobu vraiment ñu siiwal ko euh, imaam woote bi ñu jullee pare na ñëpp xaar ñu xaar ñu ñëw présenté ko nit ñi ne islam am na gan maa moom ñu ànd jóg jéggi nit ñi dem ba ci imaam. jour boobu nag jour bu rëy la ci man. anam moom yéen a ngi. waaw lii ñëw na def ci maîtrise am ba léegi mi ngi jàngale moom tam xam nga man man dama ko influence xam naa professeur <laughs> d'anglais. ah professeur donc vraiment waaw hmm. wax dëgg yàlla après imaam laaj ko ndax da ngay soppi sa tur mu ne ko waaw dama bëgg a tudd Malick. boobu waxtaanuma ceeg moom ci loolu parce que comme changé moom du charte ci tuub nga changé sa tur ak yooyu. donc vraiment loolu quand même man pour man. événement la boo xam ni. Eh, kon daam nitu àjjana la euh, euh, macha allah macha allah macha allah loolu marqué na waaw loolu moom quand même mooy. yow maa ma gën a marqué <laughs> daam nitu àjjana d'accord alors alors daam léegi nag ñu dugg ci question d'actualité bu fekkee amoon na ay question Euh, yu ngeen bëgg a sànni daama. Ah, soxna man bëggoon naa mu wax ma ci relation am ak ay waajuram. Ah. Euh, surtout waajur bu góor xam nga waajur bu góor comme ni nga waxee léegi ci ki nga ki nga fexe woon ba mu dugg ci lislaam mais waajur bu góor souvent dafay am influence bu mag ci doom bu góor. Mhm. Euh, noo doon nekkee moom ak lan la tekk ci yow surtout ci jamono yi fi nga toll ci réew mi te fekkeew ko. waaw sama waajuru góor moom daf ma marqué parce que sama papa. may wax waa géewul ma nañ ma seede parce que dama ni jamono ji moom képp ku fi wax lu dëgg nit ñi ña ña nga dëkkal ñooy wax ni kii li muy wax amul. Mm-hmm. waa ngu ma géew li may seetaan xam nañ ni euh, Abdou Jëmbooj sama papa dafa nekkoon nitu rigueur da daan toog ci digg këram polygame la woon nag. Euh, kenn rek ki sunu grand yi moo ci moo ko ci nuuru carrément nekk polygame ci niveau bi mu nekk woon polygame parce que moom mm-hmm. bëri woon nay soxna ñaanti soxna. mais euh, da daan toog ci digg këram d' abord polygamie boobu comme ni mu koy wuteeg parce que soxna yi léegi ñoom seen polygamie li ñu gëm mooy ne ku ne nekk ci appartement mhm. loolu man sama jabar day wax ne loolu du polygamie tàppet la góor bu amee fit dëgg mu ne bu takkee jabar da leen di boole sama jabar moom may tooña loolu quoi danaa ma leen seen i ngeen da leen war a leen jabar yi bu doom doom yi xamante miinante waaye ku ne nekk ci appartement am loolu du polygamie mhm. donc xam naa ñii moom daan ci wax lu ñu xalaat. après non non ne ko moytu du ragal. <laughs> moytu du ragal. moytu jotawul ak dara dañ ko daan def te amul benn problème. Mhm. donc euh, da daan toog ci digg këram ne man sama doom du tooñ man kenn du ma àkk si loolu c'est très important maanaam sama doom buñ ko àkkasee dama koy rey gis nga ñu ñëpp ku ci daan def bêtise malgré ça des fois nga gis ku sàcc def bêtise mais da ci sa kaw lay toog. day toog ci sa biir bi dóor la dóor yoo xam ne yow boo gisatee kuy tooñ sax dootoo ca bokk. loolu c'était une valeur maanaam doomam kenn du ko agsi ni ko sa doom tooñ na ma loolu c'était important beneen bi mooy da daan wax ni moom da daan tailleur la woon sa papa euh, am na jamono géewul ku fa sol lu rafet moo ko ñëw eh. sam papa waaw loolu am na benn euh, tailleur bu mag xam ne fii dakaar ci ñu daq ñëw grand boobu la bokk moo ko moo ko moo ko jàngal ñëw ba léegi nii waaw moo ko jàngal ñëw te ñu dàq ñëw Dakar la bokk Maodo Dia Maodo Dia waaw waaw en tout cas bokk na ci ñi nga xam ni quand même nit euh, ñi ñu ngi koy cité en référence xam nga nag Sénégal tailleur yi dañu aay dañu taqe koo tagg rek am na keneen ku la mën a taggal keneen ku ko ko furli comme nañ koy waxee mais mu yar ay doom donc ci liggéey aussi parce que daan wax ne moom euh, du yar doom joo xam du liggéey mbasa moom da daan bay am toolam amul kenn koo xam dangay ngay ci këram te doo dem de doo dem di di di bay donc loolu aussi da da daan wax ne képp koo xam da ngaa bëgg a toog ci kër gi te doo dem ànd ak man ci tool yi waaye boo nga wuti nga sàkk foo dem. Hmm. parce que moom du du du def doomam buur. waaw loolu tamit valeur la woon maanaam sa doom da nga koy yar ci liggéey beneen bi mooy këram boo fa nekkee bu waxtu julli da ngay jóg julli. Hmm. maanaam du yar doom joo xam day nekku yéefar ci biir këram. Hmm. loola du ko nangu maanaam valeur yooyu la doon dawal daal ci biir kër gi di la wax li ñu ba nag am rigueur. benn doomam yabu ko benn soxnaam yabu ko loolu man noonu lañ ma tàggate yàlla xam na am nekk kilifta kilifa gu wóor goo xam kenn warantewul ni kii kilifa góor yàlla dëgg waaw man sama papa noonu la meloon waaw moom kay képp ku def leneen ci doomam jëw nga ko dafa am rigueur ci lépp lu muy def rigueur la koy defee loolu nag te man dama am chance bokk ñi am xam dañ ni ci famille bi ci pour euh, malgré que macha allah bari nay doom bokk naa ñu gën a nuru physiquement comme ci li may incarné ci beaucoup de valeur bi may incarné man ñi xam mag ñi dañ naan ma yow boo nee tëll ñu xam ne doomu Abdou Diamboy doom yi nag dañ ko nuru ñu euh, ñu bëri ci ñun man bu ma jëlee sama rakk même sama doom baay yi moo tax ñu nuroo dañu nuroo parce que dañ ko nuru moom ay doomam dañ ko nuru mais wax dëgg yàlla góor gu amoon na euh, yërmande la aussi ci ay doomam ak ci soxnaam mais ci rigueur ba noppi lu mu am partagé ko aussi loolu mi ngi woon ci moom mm-hmm. waaw yooyu valeur daal vraiment sama papa tàggat na ma ci Euh, malheureusement comme ni ma koy waxee bi may euh, commencé liggéey avant may liggéey ci la génn àdduna. parce que mi ngi génn àdduna année bi may def maitrise Abdou Diouf war a ñëw université duma ko fàtte mukk euh, Abdou Diouf war a ñëw université Gaston Berger war a ñëw pour inaugurer si ay pavillon yu mu fa yu mu fa construiroon ñun ñu bàyyi boobu maa ngi bokk ci quatre étudiants yi ko waroon recevoir à l' bokkoon naa ci à Saint-Louis quatre yi buy wàcc ñi ko waroon recevoir ci salon bi man bokkoon naa ci kaati yi euh, donc ñu ñu ñu koy menacé ni du bu ñëwee doon koy sànni xeer à l'université parce que daa am yoon pavillon individuel yi def ci dañu bëggoon mu jël ci engagement dina ko defar mmh. li ma naan gars yi toujours booy def booy xeex dara yow doo ko fekkee actuellement moo dee université Gaston Berger benn yoon laa fa dellu je crois dem ci pavillon eh, individuel ya ma grève woon dem dem visiter ko man ndeysaan fanaanu ma ci benn guddi te ñun ñoo ko grève mm. Abdou Diouf ñu menacé ni bu ñëwee te waxul engagement que da koy construire du dugg ci université bi ak yeneen doléance quoi. Mm. feu allemand mi Mataw Fall ndeysaan dama ko fàtte mukk ñëw rencontré ñu à ak le gouverneur ak le recteur. daan ne léegi jël na engagement yin wax yëpp ci liste doléance yi da koy def moom ci turu Abdou Diouf on da woon xaalis nag am teraanga. Mhm. Abdou Diouf nag jour boobu mer na ci loolu la fet que ñu menacé ko ni du dugg ci <laughs> université deful loolu xam Abdou Diouf nag doon defante léegi dama ko fàtte dama ko sama carte malheureusement man laa veille sama papa gaañ laa veille de l'arrivée de Diouf donc fekkewuma accueil bi mais sama gars yi dem ci accueil bi ñu remplacé ma quoi ci quatre étudiants ko waroon ñëw ci salon bi comme nii menacé leen ni mais yéen yéenay kan ba may tere ñëw université personne y a pas de de zone de non droit dans ce pays vous ne pouvez pas m'empêcher de venir à l'université dina paate man leen bu ko waxoon du ñëw ma ne sama gars yi ab Diouf nag dafa dafa bàyyi ba problème bi rek la muy doog wax loolu mais dañ ne woon bu ñëwee forcé dañ koy sànni xeer mais foofa vraiment ñu mujj juboo les recteur à l'époque naxante pour jàmm am après ñu sama gars yi ànd ak moom ñu dem université euh, donc pour def euh, cérémonie bi au niveau de l'université Gaston Berger moo doon benn visite moo fa xam ab Diouf def ko avant muy quitter le pouvoir donc vraiment daal euh, loolu moom dund naa ko ci sama sama jeunesse avec mon papa qui m'a beaucoup marqué quand parce que nit ku amoon Euh, yërmande ci famille am la lu mu am jox leen mais nag yar leen. yar leen ci diine yar leen ci liggéey yar leen ci ay valeur loolu moom lu wóor la. jërëjëf jërëjëf Dame Mbagnon ma bàyyi la kon nga wéyal dugg ci beneen euh, thème bi. d' accord ñu dugg ci wàllum actualité bi ñuy njëkkee nag moo di coowal li nga xam ne moo nekk euh, grande pharmacie dakaroise bi nga xam te nii mu ngi opposé madame Aïcha Goundiam ak ki nga xam moom moo nekk madame Aminata Gassama nekk cousine ci la ci le président Macky Sall. alors coow loolu dem na ba tax sax ñu tëj jamono ji ni pharmacie boobu noonu euh, ñu ne quand même ah bon tëj na ko man yow boo duggee Google day dañuy bind fer fermé xaw ma definitivement lañ ci bind donc day wane ne peut-être tëj nañ ko ti doo fa mën a yëngatu ci <laughs> mën a jënd ay garab mm-hmm. ma bëggoon xam sa analyse par rapport ak li nga xam te moom moo nekk euh, dossier boobu nga xam te nii jur na coow ñu ci sax tuumal le président Macky Sall waaw xam nga man j'en profite pour wax ndaw soosu fa nekk euh, soxna Aminata Gassama parce que woo na téléphone man je n'ai rien contre elle mm. parce que man du ma nit kuy acharné wu ci nit mais nag dama nekk nit koo xam damay am samay conviction de ko défendre comme ni ma koy waxee ku ma ciy mere mere ma ci ku ciy kontaan it man noonu laa mel noonu la ma yàlla bindee noonu lañ ma yare loolu dama koy leeral moom soxna Aminata gasama ak ñi ànd ak moom parce que damay bañ ñuy def amalgame c'est transféré wu ma aussi ay position yu may am ci ne président Macky Sall di gérer réew mi naam mbokkam la parce que doomu Macky Gassama la turandoo Macky Sall mu nekk pharmacienne comme ni ko euh, Aïcha mm. Aïcha Goundiam nekke am ma dégg ay sénégalais yu naan Aïcha Goundiam est-ce que sénégalais la Aïcha sénégalaise loolu tappale la ñun xamuñu Boddi Konté fii affaire kii fan la bokk yooyu loolu amu fi. Mhm. ay Goundiam papaam Ousmane Goundiam nekkoon na procureur près de la cour suprême procureur général près de la cour suprême kooku xam ku nekkul sénégalais mënu ko nekk. Mhm. papaam naam yaayam française la mais ñun Sénégal xam nga français yaa ngi ni rek ci dëkk bi nekk fi et ñun Sénégal aussi on a beaucoup de sénégalais la nationalité en France yooyu waxu ma dugg. li leer daal mooy ñaari pharmacien lañ Aminata euh, Gassama Balde jabaru Ablaye Balde comme ni ma koy waxee di allié wu président Macky Sall. allié woon wala. non allié président Macky Sall ak donc nekk euh, doomu Macky Gassama di turandoo donc Macky Sall comme ni ma ko waxee. Mm-hmm. ñu gis acharnement bu am parce que Aïcha Gu Aïcha Gundiam moo mos sa liggéeyee foofu ci mooy mooy pharmacie bi nekk suufu place de l' indépendance ci suuf hôtel de l' indépendance foofu la pharmacie bi nekk pharmacie bi yàgg na fa 1953 léegi bi ñu fa bi mu fa nekkee moom employé rek la fa woon nekk employé 1953 di fa liggéey ba 1981 moom Aïcha Goundiam mu dem jënd pharmacie bi nekk fa léegi chef bi liggéey nag ay employé am léegi bi mu fa nekkee 1981 di fa liggéey léegi ci turam pharmacie bi mi ngi tudd la grande pharmacie dakaroise. Hmm. mu fay liggéey ak ay employés am depuis 1981. ñu dem donc ba ba quinze hôtel bi IPRES dem jënd ko IPRES moo ko jënd comme ni mu jënd immeuble yu bëri Dakar. Mhm. mais IPRES boobu il faut nga xam ni ka fa nekk PCA mooy Racine si xam ngeen ko moom mooy PCA IPRES. léegi bi bi IPRES jëndee immeuble en 2015 ñu ne dañ koy defaraat ndax hôtel bi dañoo dem ba amatul client parce que daa commencé màggat léegi màggatee amatul client IPRES tam jënd ko. ne da koy defaraat donc forcément mu ne na ñëpp génn amoon na yeneen service ay bureau de change ak yeneen mun na ñëpp génn ndax day defaraat immeuble bi loolu c'est normal léegi ñu ne kon Aïssa bu Njaam wuteel feneen euh, mu demande donc ministère parce que foo mun dem de lay autoriser nga dem fa mu demande ministère euh, de la santé ñu autoriser ko mu dem wuti beneen local en naa ñu pare. parce que provisoire waaw c' est provisoire c' est un transfert provisoire. Mm-hmm. donc l' acte uniforme de l'OHADA li mu wax lu leer la c' dire que bu bu bu bu yooyu amee soo paree mënoo ko jox keneen ku fay def la même chose donc ka fa nekkoon ngay fixé wàll les modalités nga delloo ko. Mm-hmm. waaw léegi donc Aïcha daal di déplacé wu mais en 2017 euh, bi mu demee ba nga xam si ñoom travaux yi commencé si yëpp bind na leen ni leen maa ngi man dem naa mais local bi su paree. local bi 66 mètres carrés la ci suuf la nekk local 66 mètres carrés 02. Mhm. mun leen man ba léegi bëgg naa ko su ngeen paree wax leen ma yan modalité ngeen koy joxe yéen waa IPRES bi ko jënd ñooñu tontu ko en 2018 ne ko léegi yow lañ ko réserver bis bu pare wax ji wéerewul boor. Mhm. Mamadou Sy Mbengue la directeur ba tuddoon IPRES à l'époque moo fa nekkoon bindu ko moom ñu bindante ñu ne amul benn problème. ba ne ko sax rapproché wul ci ki yore patrimoine bâti wu IPRES pour que mu wax la yan mooy condition yi pour ngeen def contrat de bail. ndaw si daane ayu te loolu am na kayit ko fi. yooyu yëpp ay kayit firndeel na ko yu leer. léegi bi loolu amee léegi ah léegi kon nag ñuy xaar ñu pare ñu jox ko ñu toog ba ci yàgg rek ñu gis euh, Diouf Sarr en euh, deux mille vingt et un euh, le treize janvier deux mille vingt et un Diouf Sarr dem jël benn arrêté jël benn arrêté daane léegi moom. Euh, permettre na Aminata Gassama mooy jege ñaar le président Macky Sall bi léegi moom na dem ca local ba occupé ko <laughs> defar ab arrêté ni kooku la ko jox mais mais ñu ni Diouf Sarr li muy def nii mooy lan ah ndaw si dem jël ñetti avocat yoo xarañ nag maître Boukounta Diallo Assane Diomba Ndiaye ak euh, ma Massokhna Kane ñoom ñett ñu dem attaquer la décision au niveau de la cour suprême la chambre administrative moo compétente. Mm-hmm. la cour suprême. parce que c'est une question d'arrêté à annuler. la chambre administrative àtte euh, le 25 novembre 2021 moom it bi mu àtte daan ni annulé na l'arrêté de Diouf Sarr parce que Diouf Sarr tëgg ko ci yoon ni Diouf Sarr mënoo euh, permettre Aminata Gassama mu dem foofu daal di annulé arrêté bi mu jëloon. xam nga wàññi féet na boo te pourtant Diouf Sarr jëloon na euh, euh, Aminata Gassama jàppale woon nañ ko ñoom mu am ay avocat euh, agent judiciaire de l' état nekk ci ginnaawam ñoom ñëpp ah comme ni ma leen jàppale le comploteurs yi nekkoon yëpp di xeex Aïcha Goundiam mais foofu moom yoon defoon na liggéeyam quoi voilà foofu yoon def na liggéeyam léegi kon yoon am na fi non non non c' est pas parce que <laughs> ah, tubaab den une hirondelle ne fait pas le printemps une hirondelle d' accord ñu wéyal printemps ñu wéyal baax magistrats yi ñoo waxal seen bopp ni la justice n'est pas indépendante damay bañ ñu def digression voilà léegi maintenant bi loolu amee hmm. léegi donc arrêt euh, da yéen ngi suivi fi ma wax bu fi léegi cour suprême annulé na cour suprême annulé na l'arrêté de Diouf Sarr bi bëgg a foqati pharmacie bi ci ay Aïcha Goundiam dem jox ko Aminata Gassama cour suprême ne ko yow Diouf Sarr loolu mënut ne annule la bind la cour suprême annule l'arrêté numéro tel tel tel du 13 janvier 2021 du ministre de la santé mu leer nañ ci décision bi signé ko ñoom ñëpp président cour ñoom ñëpp ñu signé président chambre bi signé greffier signé ñoom ñëpp ñu signé ak ñu nekkoon ci chambre bi waaw léegi ñu jébbal ko Diouf Sarr Diouf Sarr gis ko ni i eh, léegi kon Aïcha Goundiam day dem di ñu booleeg justice bi léegi ñu commencé ni léegi nañu wut beneen yoon xam nga lu Diouf Sarr def hmm. Diouf dem jël beneen arrêté wax ne léegi abrogé na arrêté 1981 ba waaw ba joxoon droit ay Goundiam mu yore pharmacie boobu mu ne léegi annulé na ko ba léegi joxul benn euh, raison de benn article rek ay nekk ci arrêté bi article premier et abrogé l' arrêté numéro tel tel 1981 euh, du euh, don autorisant Aïcha Goundiam à la pharmacie de l'hôtel de l'indépendance la pharmacie dakaroise et nous lui demandons de chercher un autre lieu waaw lii mooy lan jaay doole nga ko jàppee léegi euh, bi mu defee loolu avocat yi attaqué waat nañ ko normalement déposé nañ ko sax parce ci fan yi parce que boobu mi ngi ko jël rek ci 2022 bi février 11 février 2022 la jël arrêté bu mujj bi mooy contourner décision cour suprême bi mhm. pour jaay doole waaw léegi mu des na léegi local bi aussi euh, comme dañ ko jox injustement euh, local bi dana ko jox injustement Aminata Gassama Euh, avocat itam attaqué nañ ko parce que ñaari procédure la bokkul bee arrêté la boo xam nañ ko attaqué à la chambre administrative de la cour suprême mais bii local bi mu bëgg a jox injustement euh, Aminata Gassama tamit ñoom attaqué nañ ko au niveau du tribunal du commerce mhm. mais ba léegi nii tribunal du commerce nangu la àtte di renvoyé ko renvoyé waat waaw léegi donc li ñu situation bi ñu am mooy kon liñ ci man a jàngate et li ci gën a gaaw lool de ñu forcé gis nga bi arrêté boobu amee Diouf Sarr bi dañoo forcé léegi dem ubbi ni ndaw si na dem nda euh, Aminata Gassama na dem directement ubbi euh, euh, local bi commencé liggéey. Hmm. ba noppi nag ñu xam ne am na benn galgal bu ci ne un moom elle n'est pas inscrite à l'ordre parce que ordre bi ñoo lay jox autorisation bi. l'ordre des pharmaciens donc munu fa jaay garab. léegi ñu ne comme munu fa jaay garab léegi day jaay ay noonu lañ tuddee woon affaire ni léegi parapharmacie la fa ubbi maanaam les produits cosmétiques ak yeneen yi hmm, loolu la fay jaay. mais comme avocat Aïcha yi du ñu ay cuune ñu jël benn huissier jox ko ordonnance mu dem jënd ko fa. pour war a nag ay activité pour wane ne li mu wax ak activité illicite lay def. Mm, mm. léegi euh, huissier bi dem ci pharmacie ba yóbbu ordonnance ñu jaay ko garab ñaari garab a ca ne ñu ne amuñu benn bi am nañ benn bi huissier bi constaté ko def constat PV de constat que jënd na fa garab. Uh-huh. def versé ko ci dossier bi. ñoom it nee nañ daañ ko utiliser waat pour dem annuler waat fële pour woon na ñu ngi jaay doole beneen bi euh, mooy euh, contrat bi mu signeel ndaw si ñoom waa IPRES contrat bi mu signeel euh, Aminata Gassama contrat bi ñu ko signeel Aminata Gassama contrat bi ñu ko signeel pour jox ko local bi injustement mhm. xam nga lu ñu ca bind ca article 12 ba mhm. dañ ko tuddee clause de responsabilité u man man leen c'est une clause de de, de précaution pour mu gën a leer xam nga lu ñu ca bind mhm. dañ ne ñoom euh, ñoom Racine si ak euh, le nouveau DG bi fa nekk Dieng ñu ne léegi ñoom local de 66 virgule 02 mètre carré boobu ñuy loué maintenant Aminata Gassama léegi ñoom daan ñu leen ci mën a daan ci tribunal ñoom duñ ko fay moom Aminata Gassama moo koy fay. waaw ah, moom la nañ ko ci est-ce que dégg maanaam coow lii yëpp léegi fu mu mën a mujj. Uh-huh. loolu lañ ko ci bind de ñu ne léegi foofu yow damay laaj waaw. waaw mais dama lay laaj ñun tey jii bu ma la bëggoon a loué sama kër ne la maa ngi lay loué kër gi waaye nag maa ngi ci contentieux de lu ma lu ma ci mën a fekk yow lu ma ko loué yaa koy fekk dèjà loolu rek tappale la loolu dañ ko nangoo jëlee ma lay loué kër ne la léegi man kër gi ma lay loué lu coow li bari bari lu coow li bari man mi ngi ci yoon waaye lu may yoon mën a daan yow moo koy loué <laughs> yaa koy fay <laughs> waaw léegi loolu yëpp lan moo ci lan moo ci yoonu le président Macky Sall. waaw xam nga lan moo ci pré yoonam. Ah. non parce que balaa président Macky Sall sax moom du moom lan moo si yoonam moom. <laughs> voilà lii sama yoon mooy. man nag man man mii sax jaam jaaxal nga. waaw non may ma rek ma ñëw ci loolu loolu ci laa jëm parce que loolu mooy question bi nga xam si. Euh, moom la nit ñi mën a posé mais xam nga man Dame Mbodj. est-ce que am nga intérêt à agir. Euh, non non non si non man agiruma man damay damay dénoncer une situation boo xam dafa am ci réew xam nga. olof yi dañ ne seetaan ci sot la bokk bis bu ma déggoon ni man ñoon mii ñu ngi koy jaay doole dama ñëw taxaw ci wetam ñaanu ma ko yàlla nag mais bis bu ma déggoon dañ lay jaay doole nga am ay droit ñu bëgg a foqat ci say droit damay ñëw taxaw sa wet man loolu dama koo def defati bu nga université Saint-Louis boobu ma ne wax sànq dama étape boobu dama cey waxul mais bu ngeen neexee mën naa am naa fu turandoo boo xam mën naa leen wax lu tax kooku tudde ma ko te ba mu ko te dañ ko doon jaay doole da nga ma taxaw ci wetam man Dame dama mës a taxaw ci dëgg ku ma gis ñu koy jaay doole dossier sonk bii ñu yaakaar ñu bëri ñoo defa ne Sonko demul ma fenn dañ koo jaay doole rek mais bis bu ñu bàyyi woon jaay ko doole ma pare man li ma gëm mooy lu tegu sama loxo la dama toog moom jege ñaale moom moom ma euh, Aïcha Goundiam maa ngi moom mosuñoo wax téléphone mais wax naag Aminata Gassama sama même téléphone jegeñaale kooku woo ma ne ma Dame gis nañ na ngay défendre dëgg ñu ngi jaay doole euh, euh, ndaw su tudd Aïcha Gunjaam mën naa laa yónnee tous soo bëggee ñu rencontre la man leen envoyé leen ma documents yi parce que man intellectuel ñu ma documents yi ma étudier ko ñu ma dañoo bëgg nga étudier ko bu ñu nekkul ci dëgg bul ñu défendre mais dañoo bëgg ñun bu fekkee ñoo nekk ci dëgg nga taxaw dénoncer lii parce que du yoon te man ci loolu rek laa nekk man nekkuma ci leneen. man dénoncer lu mu dëgg est-ce que def nga ak lu ni mel Aminata Gassama sama pour tëdd njaaxaan naa jéem a xam moom it lu mu yor ba tax mu sañ a ndëgëranteeg bopp li dama loolu laa ko wax ma ne naa ko yónnee ma document yi nga am mais nangu ko yónnee hmm. mu ma dama lay rencontré ma ne ko noonu man du ma la rencontré yow Aminata Gassama du ma rencontré Aïcha Goundia parce que bugguma di mel ni kuy influencé di dem di dugg man li ma gën mooy coow am na liir naa ci journaux yi gis naa le syndicat des pharmaciens tamit taxaw ci ginnaaw. Euh, Aïcha Goundiam Aïcha Goundiam. Mm-hmm. Mm-hmm. l'ordre des médecins de euh, des pharmaciens nekk dans une position boo xam ni. féetewul fii féetewul fee kenn xamul fu mu féete. ci ngeen cangal la ci ngeen cangal waaw kenn xamul fu mu féete parce que seen position leerul mais mais syndicat mais ñoom def nañ conférence de presse yu bari di attaquer li Diouf saar def ak li nga xam moom la directeur. Euh, de la pharmacie et du médicament def parce que ñoom ñoo xam nga ndaw si ñi koy xeex dañoo am doole yow boo taxawee ministre de la santé di la xeex le directeur de la pharmacie et du médicament di la xeex euh, euh, le le DG de l'IPRES di la xeex le PCA de l'IPRES di la xeex agence judiciaire de l'État di la xeex maanaam ponkal yi wër. Aminata maanaam ñi ngemb Aminata Gassama dañoo am doole. ba léegi tudd doo fi Macky Sall kon moo si yoon Macky Sall. non ñoo ñëpp mun ñoo def dara lu Macky la gis nga Macky Sall coow lii wax naa ko ci yeneen sotti man leen Macky Sall est au courant ñun on a des informations qu'il est au courant mais gis nga président de la République soo déggee lu mel noonu da ngay àtte ci dëgg da ngay àtte dans le sens de l'intérêt de celui qui en qui en parce que aujourd'hui mënoo ni sama jegeñaale laay si man xamul ma gëm man ma nekkee président de la république sama jabar di xëccoo waxuma la sax koo xam sama mbokk la ne sama jabar wala sama rakk di xëccoo beneen sénégalais boo xam ni gis naa ni lépp wane na ne amu ci droit mais du ma dama naan ko yow bul bul ñu yàpp parce que yow moomu nit ñi léegi kee moo am droit mais doo taxaw di utiliser sa posture pour di jàppale sa mbokk loolu moo am ci doo dossier bi jàppale maanaam ñiy def leer xam nga ñu koy def. parce que xam nañ ne Aminata Gassama bu doon euh, du mbokk Macky Sall bu doon ay Aïcha Boundiam moo nekk mbokku Macky Sall kon kenn waxatu ko kenn ñi mu la def lee lee dañ koo def tout simplement parce que dañuy wut lu neex président Macky Sall ak am loolu nag du fi amee réew mi du royaume fii réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk fii kenn amul droit jaay fi doole kenn man jaay doole nit bu ñu koy def mu teg ko sama loxo man loolu rek lay def man sama bureau au niveau du siège dama koy wax sama yi nee naa leen fii bureau des lamentations la chaque jour de reçoit des gens chaque jour de reçoit des gens tey jii rek recevoir naa ko xam andi na ma ay problème man ku am problème yaakaar ma ci bu ñëwee waxtaan ak man dama koy taxaw te kii dañ koo jaay doole ma ne président Macky Sall su la neexee daggal ko pharmacie ca jardin palais bi comme yow la neex rek ngay def <laughs> mais bu ko neexee parce que président Macky Sall def na loolu te amul mujjul fenn mais nag mais nag mais nag pharmacie jàmbur mënu ko joxe pharmacie bi comme nee na tëj nañ ko man yëgu moon ni tëj nañ ko waaye tëj ko mun ta ñàkk man xamoon naa ne fa jëm mais li mooy mbir mi du tëj ko de xamal ne xaar hmm. delloo ko ay sagu njàmm parce que moom moo ko moom local bi kay mun ñu ko luwee keneen moom kay li mu mën mooy delloo ko te loolu la de des pharmaciens wax te j'en profite pour dire à Racine si que na bàyyi yooyu quoi yi seen seen yëfu caaxaan yooyu nañ ko bàyyi quoi tooj baaxul beneen bi mooy moo di giroo Euh, le secrétaire général du de la centrale leader bi nga xam moom moo nekk foofu moom it dina àtte ci dëgg gis nga grand yi il faut ñu euh, euh, aar ja liggéeykat yi parce que bu ñuy jaay doole liggéeykat da ngay taxaw ci ki nga xam moo ne ci dëgg xaw ma ko sax mosuma koo gis gis nga seconte ne moo nekku ci dama naa ko soxna si bu ma woowee téléphone wala leen dama naa ko yaa nekku ci dëgg man ku nekkul dëgg du ma ànd ak moom gis nga Aminata Gassama na ko nit ñi wax dëgg xamal tax muy def li muy def ne parce ah. que day profiter ci posture u muy président de la république Macky Sall ñee koy jàppale loo tax ñu koy jàppale. d'accord tax nag man li ma ci intéressé. Mm-hmm. mooy man xam ma laaj est à agir man j'ai intérêt à agir ci lépp lu nekk injustice Sénégal. d'accord fi nii lépp loo xam ne jaarul yoon ci dëkk bi damay am droit en tant que sénégalais taxaw dénoncer ko. mais ñay agir moom la moom ndaw si moo agir ak ay avocat man agiruma. mais nag am naa droit ñooñu d'accord taxaw action la taxaw la. ñu ñu ci beneen ci Euh, par rapport arrestation ki nga xam moo nekk Cheikh Omar Diagne mi nga xam te ne nii ay tuuma lay yëkkati teg ko ci ki nga xam te ne moom moo nekk euh, député boobu Djibril War euh, ci ginnaaw bi nga xam te ne ñaar ñu ngi doon sekk ci ab jotaay ci émission muy liste PGA yooyu nga xam te ne nañ ay député yu liggéeyal ngóor jigéen ñi lañ lu ni mel man si yow laa ko njëkk sax déggee nga wax ko ci ci ci ci télé. ci émission ci émission fii Seneweb donc. daam fii la waa. <laughs> ndax <laughs> daf may moo jiite woon débat voilà mu ngi noonu donc moom sax il est mieux placé peut-être pour ñëwaat ah. mais yow arrestation ki nga xam te ne moom moo nekk euh, Cheikh Omar Diagne nañ la nga naan euh, jaay doole la ngay faral ak tout mais aussi est-ce que tamit nit ki boo ko tuumalee waroo àndi ay preuve yu leer ci li nga xam te ne moom ko tuumal mais am nay preuve xam nga lu ñu def nangu ñoo déglu preuve yi Cheikh Omar Diagne li ci intéressé mooy nañ ko jël dugal ci kaso bi ñoom nee nañ diffamation ak injure publique. ak injure publique chef d'accusation boobu. Hmm. amul benn sénégalais depuis vingt ans je défie quiconque dama donner un seul exemple depuis vingt ans au Sénégal koo xam ni yóbbu nañ ko instruction sur la base d'une diffamation amul Cheikh Omar Diagne mooy premier bi président Macky Sall ak nguuram nañu arrêté ni ñuy jaayee doole nii ci réew mi ci ci ci guuta la leen jëmale. président Macky Sall di am pour tëj kon da ngaa xamul li xew. président Macky Sall dama lay wax xoolal fi mu toll nii bu mënoon a am yoon wu mu jaar ba tëj ma mën nii yoon wu mu jaar ba tëj Ababacar Mboub yoon wu jaar ba tëj gii Marius Sagna et cetera et cetera président Macky Sall ñi ko lakkal président Macky Sall réduire xam nga dañu day réduire l' opposition à sa plus simple expression. Mhm. réduire na ko opposition bu Sonko deñoon rek jeex na mat na fi mu toll nii moom la mu bëggoon def na ko maanaam bi ñu bëri na fu leen jekk ñoom ñëpp benn par benn kenn bougé wul Sonko rek kay bougé moo tax ñu bëgg ko éliminer mais bi mu defee loolu ba pare la nature est en horreur du vide léegi am na yeneen leaders yoo xam dañuy taxaw même sekke société civile lañ nekk di am ay position ni am ci réew mi te président Macky Sall mënta muñ ku koy ku koy ŋaaññi président Macky Sall adversité la mënul supporter Cheikh Omar Diagne dafa am ay position yu muy jël ci réew mi yoo xam day déranger loolu moo tax ñu bëgg ko museler léegi daam tamit da ngeen bëgg tamit ñu bàyyi réew mi daal euh, Ameth bu ko neexee daal mu xëy rek jiiñ Mouhamed Diallo lu ko neex Mouhamed Diallo amul droit dem si yoon euh, wala ma wax lu ma neex ci euh, Absa Anne ci ci toog si sama sama canapé rek def samay déclaration sama liste demewul noonu mu neex demewul noonu demewul noonu émission bañ ba nga xam ne moom moom moom moom moom la Djibril parce que problème bi entre Djibril waar la ak Cheikh Omar Diagne émission ba ña ngi ko defee Walf Fadjri boobu yaa ngi toog maa ngi toog ci plateau maa ngi ci palaato bi Cheikh Omar Diagne a ngi ci plateau bi Cheikh Omar Diagne sax nekkul ci plateau bi moom dañ ko fa andi pour mu jël parole mais plateau ba ña fa nekkoon jël na parole nag ci ci ci émission bi. yëg ay kàddu yoo xam ne dafa am public bu mu dafa dafa amoon public ci biir public bi am ñun jox kàddu ñu ñëw wax. Mm-hmm. mais émission boobu man maa nekkoon ci. plateau bi ak ak kër Mboub ak Abdou Karim Guèye ak euh, Mamatar gi mm-hmm. ñun ñooñu ñoo nekkoon ci plateau bi. à Walfadjri. plateau waa am sàmm jikko yi la woon. voilà parce que ñoom ñoo ragaloon na ñëw. d'accord léegi parce que homosexualité ñoom nekkuñ ci à l'aise parce que xam nañ ni li ñuy def yëpp i tappale la léegi nag ca plateau booba dañ leen a permettre ñu dugg ku bëgg dugg dugg léegi nag Jibril Waar dugg di tontu bi mu duggee ci émission bi tontu Cheikh Omar Diagne daan ni euh, ñoom ñaar ñu ko xënte quoi mu ni Cheikh euh, mu ne mu ne mu dugg wax lu ko neex boobu sax kenn daggu ba mu coupé mu xas sa ñun ñu newoon ci plateau ba yëpp xas nañ wax lu ko neex attaqué nag principalement Cheikh Omar Diagne daana ko dinaa la def ni jigéen ci sa moroomu góor Cheikh Omar Diagne njëkk ko attaqué mu ne ko naa la def ni jigéen Cheikh Omar Diagne xas ko moom it ci ci ci ci loolu la ñuy tuddee ñoom injure yi parce que mu ngi naan benn mbaam bu sant waa bu sant waar waaw mbaam waaw da koo xas parce que moo ko xas mu xas ko xam nga xasante la mi ngi mel ne euh, xasante xasante kay boo ma surtout que xasante boo xam yaa jëkk a yaa jëkk a xasaate ñu hmm. xas la nga daal ne non man xas léegi moom la mu wax Cheikh Omar Diagne nag naa la def jigéen daa fayeeku léegi nag ñu ñu jàppante ñoom ñaar fayante loolu la léegi nag Cheikh Omar Diagne wax na effectivement que moom PGA la euh, réseau mondial des parlementaires parce que en anglais c'est un sigle Parliamentarian euh, Global Action. donc ñoom c'est un réseau de parlementaires dans le monde pour dooleel ngóor jigéen ci réew yi maanaam dañuy dem cim réew jël ay député yoo xam ne dañ leen di defal association dañ leen di boole ci seen association pour ñu nekkal leen fa ca assemblée ba parce que ca assemblée ba la ñuy voté loi yi leen di may ay droit ñoom góor jigéen yi mm-hmm. kon ñoom dofuñu mm-hmm. ah réew muñ dem duñ dem di seeti ay ay Mohamed ak ay et cetera ay manjoon pour ñu jàppale leen déedéet dañ ñoom réew muñ dem dañuy dem fa ñuy woteel waay parce que ñoom leen soxla ay droit la yu mu bëgg ay droits humains nee nañ maanaam ñu may leen ñuy euh, ñuy euh, ñuy ñuy def seen yëfi góor jigéen loolu lañ bëgg nee nañ seen droit la que leen ko mën a jox mooy assemblée nationale da koy voté moo tax assemblée nationale réew yëpp ñu ngi fay dem di wut ay groupe bu député waa léegi nag moom Djibril War mhm. man fii nekk ma fii fii euh, wax fi liste boo xam lim naa fa ñu bari fii ci émission Euh, Mohamed Diallo Mohamed Diallo fii. ci ci 31 décembre passé. Mhm. ba am na ci kenn koo xam ne sax boobu laa gëj gis ci plateau. ma lim ci kilifaam mais ab liste la bu ñu yore liste bi moom Jibril Wade da cee nekk ñeneen nekk ci ñu lim ci ñeneen man mii taxaw naa waxul te porté wu ma plainte ñaata yoon laa taxaw wax ne moom mi ngi ci liste bi. yow yan firnde nga ci am ca mu ngi bi. liste bi liste bi ah, ci boo demee site ba site ba aussi. déedéet par pays la par pays la c'est un c'est un document authentique par pays. pays bu nekk dañ lay wax diw diw diw. day wax may pays parce que xam nga dama naan moom la xam nga xam nga yow li nga xamul mooy. góor jigéen ñoom jàpp ni loolu bon la. dañoo jàpp ni ñooñu ñu baax lan sax ñooñu leen wax ne sax que ñooñu ñooy les démocrates ñoo leen di may ñu am droit am seen fësal seenu ngóor jigéen donc. pays yi mais Cheikh Mor Diagne pays pays yéen daam booy da mu xaw a wéet si bi lool ba sax euh, yéen waa ànd sàmm jikko yi démissionné woon na mais dañ koo seetaan ba sax mbir mi demee nii ñu ubbi si information judiciaire ba nëbb ko jant bi ñu bari gisul nañ lii mu ñëw ñëpp ñu bëri seen gis-gis jàppoon nañ ne yéen dañ koo seetaan parce que contexte bi am na nu mu demee moo tax li dal ko. waaw non xam nga loolu am na ñu koy wax mais mënuñoo wax dañ ko seetaan xamul tax parce que Cheikh Omar Diagne lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee ci sunu biir c'est vrai que j'avoue que. benn moment moom génn na sam sàmm jikko yi pour ne pas gêner ànd sàmm jikko yi parce que soupçonné na ne fii la état a jëm ak moom te bëggul ko wala ñu koy def loo xam ni wala muy jël ay yenn position yi Sénégal yoo xam parce que Omar Diagne aussi dafa am benn liberté de ton am ay position yu ñuy jël ci réew mi yoo xam ne parfois mun na gêner nee na ànd sàmm jikko et cetera donc loolu moo tax benn moment moom daf ne day génn ànd sàmm jikko pour ne pas gêner li ànd sàmm jikko yi def parce que dafa am ñu mu doon jàppanteel ci ay position yu muy jël ci réew mi Mm-hmm. waaw loolu nag loolu ak ñun ñu bàyyi ko bokkul. léegi moom moo décidé boppam bàyyi. waaw mais position war na mën a tax position bi mu am ak li mu jot a sekk ak war na mën a tax yéen difficulté yi bu ci nekkee ngeen gaan taxaw. mais dañuy taxaw. dañu gis ne tam biñ ko biñ ko jàppee ba fi fiñ koy ba fi fiñ koy nekkee en garde à daanaka tamit néew néew ci ay post la ñuy gis yoo xamante ni mu ngi bàyyi ko ci yéen di dem di dem non non non du loolu cest à dañ ko woo biñ ko woowee ñun à travers les plateformes And Samm Jikko Yi il a très bien moom nañ ko bàyyi mu dem déglu ko parce que moom amul dara lu muy tiit am na ay preuves yu muy yu muy wax ni loolu mu wax man wax naa ko boo demee ci site PGA réew nekk ña fa nekk membre dañ koo def mu leer nañ euh, euh, euh, ki ki ma bokkaloon débat 31 décembre dama ne ko yaa ngi ci liste bi mais loolu moo am. parce que ñu ngi ci liste bi ñoom ñëpp dañ ne mais Ndiaye bokkul li mu ñu la. bii boo dem boo demee dañ lay woon c'est un site officiel mi ngi man tey jii bu ñu woon le site officiel de Seneweb. Mhm. mais site officiel bi li ñu fay bind day engagé Seneweb. donc PGA aussi ñeen fa cité daf leen di engagé. Mhm. donc loolu la ñu wax ak ñun waxuñu leneen ñun dañ leen wax sax man sax dama leen nañ ko leeral même man tontu plateau 31 décembre lu ma fi wax dama ne waa leen ndax liñ leen dugal ci surtout PGA bi ngeen bokk yéen est-ce que yéen. yéen a ngi ci wala nekku leen ci. yow bu ñu la woon nii kon la nga naan ci ci site berg laa leen gis ci site berg laa leen gis mais site bi c'est officiel dañ koo téeree yore document bi. par pays loolu mooy sa preuve yow. ci mais loolu preuve la par preuve la parce que xamul tax man tey jii ku ma bindoon ne ci site par exemple Adeos bi nga xam ne dafa maa cité eh, man ak ay Cheikh Omar Diagne mi ak ay. Euh, même ay xalif généraux ku ci mel ni la xalif général des Tidiane ci seenu réewande ak euh, euh, sunu imam François Bodian wax ne mëntunoo dugg France ndaxte ñun dañoo fes ci xeex góor jigéen ba mu ëpp xam nga lool bind nañ seen liste xam nga liste boobu man ñun kaasuma ci parce que dama cee kontaan man ñu boole ma ci liste ñi nga xam ne dañoo taxaw di xeex contre góor jigéen ba mëntuñoo dem France nee na ba pro du xam mëntuñoo dem mais proposé nañ proposé nañ gouvernement français bi que nañu interdire l'accès. non yaa ngi naan yaa ngi naan boole nañ ci xalif bi ci seen réewante du tax réewante loolu xam nga ñàkk xam nga xam ne wax dëgg yàlla xalif général non maanaam di Tijaan wax dëgg yàlla moom euh, d' moom kilifa googu bu bëggoon a dem France kenn ñëw koo tere dem parce que gouvernement France du dugg ci euh, yëfu tàppale yooyu mais c'est-à-dire bañ ko boole loolu xamul leen ca dugaloon mm-hmm. pour diviser pour ne wax ne am na xalif yu ci dugal ak ñu ci dugal loolu lañ bëgg mooy non non maanaam loolu tax man la ci réew na ak ay tappaleeg yooyu mais yooyu amul njëriñ xamul tax man ba à l'époque bi ñu ma laajee ne ma dàmbooj noonu def mën leen sant yàlla ay waay waay man dàmbooj mi juddoo ca nguma ngeew samay maam dundu lu ëpp téeméeri at ñu bari ci ñoom te mus ñoo dem France man moo demul France lu may wàññi man nga xam ne voyagé naa sax ñu ne ma jaaral France man leen dooma fa jaar ñu may proposé itinéraire boobu moo gënoon a yomb ma jaaree France pour dem Danemark man leen jaaruma foofu waaw jaaruma France naa jaar beneen voie naa ci bii ñaari billet ma proposé ma ma jël bi gën a cher pour bañ a jaar France man France dama man man damaa bokkul ci complexe yi man man dem France dundalu ma. mais mais mais waaw donc ñun li ñu gëm mooy ñun ànd ànd sàmm jikko yi fi ñu war a taxaw mais lii tax jàpp ko si combat boo bokkoon la. gis neen poste bi en waaw bi ñu gis ni à l'écran gis neen euh, ku mel ni Ousmane Matar Sarr euh, def poste di ko mais quand taxawaay bi xaw na faible loolu mu nga ko reconnaître lan moo waral loolu ndax contexte bi da ngeen di bañ a soutenir Cheikh Oumar Diagne am ñeneen ñoo leen frustré moo tax ngeen am taxawaay bi ngeen am vis-à-vis de Cheikh Oumar Diagne ci loo xam ne nii combat boo leen bokkoon la du jàpp ko si non loolu euh, gëwuma loolu man euh, j'avoue que am na ay conflit yu am benn moment parce que man du ma wër-wëral ci ay question yoo xam ni su ma ko waxee ñi may déglu dofuñu du ñay dof Mhm. Cheikh Omar Diagne am na ay euh, jàppante yu mu def ak euh, certains euh, groupe aussi au Sénégal yoo xam ni yombalul liggéey bi carrément loolu mooy dëgg parce que man dama yàgg wax ni ñun ñu nangu ñun julliti ñu ñuy diviser waruñu permettre suñuy noon dañoo àtte loolu man dama ko yàgg gëm moo tax am na yenn combat yoo xam si man mosuma bëgg ñu ciy dugg mooy yenn polémique yi nga xam ne c' est en notre sein loolu dëgg la mais ànd sàmm jikko yi mënul bañ a jàppale euh, Cheikh Omar pour quoi parce que Cheikh Omar Diagne nit ku baax la Cheikh Omar Diagne dafa xeex pour diine Cheikh Omar Diagne dafa xeex contre euh, lépp li nga xam ni lu yàq sunu askan la te loolu moo tax a jóg ànd sàmm jikko yi donc ànd sàmm jikko yi day rester solidaire parce que li ñuy def nii jaay doole la nee naa la diffamation bi ñu ko toppee correctionnel doy na ci loolu moo mës a am tey jii bu ma la diffamé dañ ma yóbbu flagrant délit mais mun ñu ma yóbbu instruction munoo nekk. ubbi information judiciaire tey ubbi information judiciaire dem flagrant délit en trois jours maximum quatre jours une semaine ñu àtte ko te li ci ëpp sursis lañ leen yóbbu amagul kenn kun ci yóbbu ci vingt ans yi ma la wax ni amul nañ ma génneel benn décision de justice boo xam ni yóbbu nañ kenn en instruction euh, te ñu liñ koy tuumaal leen koy toppee mooy mooy mooy. Euh, Euh, mooy diffamation. nga yaakaar ne amuleen ci responsabilité parce que ku wéet moom neex naa daaneel. non loolu man jàpp naa ne yéen yéen a ko xalaate noonu mais ànd sàmm jikko yi mënta mënta bañ a te man xam naa li ci ànd sàmm di yi di dox actuellement te ñun li ñu gëm mooy combat bi c'est simple aujourd'hui c'est le président Macky Sall di moom mooy jéema dooleel góor jigéen yi. Mm. ak euh, ñun. parce que di jéem a nasaxal ànd sàmm jikko yi parce que bi élection locale yi jàllee. dafa woo ay imaamam ay imaamam yu koy politigal parce que imaam yooyu jàppale nañ ko 2019 mooy imaam ya demoon pale mm. jàppale nañ Macky Sall 2019. Mm. jàppale nañ Diouf Sarr ci élection yi ay imaamam lañ. mu woo leen ca pale ba ni leen xutba yi ñu doon def ci jumaa yi ñoo tax mu am ay jafe-jafe ci élection yi jàpp ne ànd sàmm jikko yi moo nekk ci loolu parce que loolu ànd sàmm jikko yi moo doon def xutba yi léegi nag donc mooy aujourd'hui y a deux camps. kaaw ñi nga xam ne dañoo bëgg a defar jikko yi ànd sàmm ko mhm. ak kaaw ñi nga xam dañoo bëgg a nasaxal jikko yi lawal ngóor jigéen ci senegal te loolu moo tax ñu jàpp Cheikh Omar Diagne bu ñu ko bàyyiwul li ci ànd sàmm jikko yi doon seet sax ci élection local législative yi nu jëm di ci am lu muy rafetal doot ci am dañ naan rëj ci campagne bi wax sénégalais yi ni leen nguuru Macky Sall gi nguur guy lawal ngóor jigéen la day bàyyi Cheikh Omar Diagne ci nii wala ci naa wala dinañ wat ci terrain bi def campagne mobiliser les imams mobiliser ñëpp li ñu wax Macky Sall li mu doon ñu tuumaal nag ci local yi. Hmm. fii lay xamee ni lépp tey tey lay tey lay leer. gis nga gis nga yow li ngeen ni c'est tout le contraire. gis nga Cheikh Omar Diagne suñ ko libéré hmm. dinañ wàcc ci terrain bi dans tous les départements mobiliser les imams et autres ñëpp ñu bokk ci And Samm Jikko yi ak les associations parce que And sam Jikko yi c'est pas une association religieuse c'est association où il y des religieux. seen une association où il y a des syndicalistes may ma rek c'est association où il y a des politiques Sénégal la loolooy Sénégal où il y a des journalistes nous avons des journalistes waxuma yëpp mais il y a des journalistes dans And Samm Jikko Yi il y a des enseignants il y a des syndicalistes il y a des il y sax signal nan la xoolal li gën a yooyu sax signal nan la fa satisfaire ay ambition politique maanaam ngeen fa àgg assemblée wala ngeen war sax seen xam nga ñun kenn du ñu fii la ay complexe d'accord ñu bëri dañ naan la yéen bu ngeen defee nangam da ngeen di politique kuy sàkku dara kay yaa ngi politique ñun on demande la criminalisation de l'homosexualité loolu koy politique la xam nga Sénégal dañuy jaawale politique ak politique politicienne waaw c'est vrai lépp loo teg politique la hmm. soo nee lii laay sàkk pour sama réew yaa ngi politique ñun bañ ñun dañ ñu politique ah. parce que ñun au contraire ñun kenn duñu fii lay complexe man ma position daan ànd sàmm jikko yi mooy dañu waroon teg une liste dem législative. non péete gi la ñuy bañ. ak xamoon tax non ñun ñun dañuy féete ci par parloo parti. mais dañuy féete dox ci réew mi. d'accord ñun man ma mooy ànd sàmm jikko man nag j'ai été minor la question mais man ma position moo doon que ànd sàmm jikko yi teg une liste dem élection législative. demander Sénégalais yi d'accord pour ñu criminaliser ngóor jigéen. ñu voté laal liste massivement pour ànd sam ji koy am ay député à l' assemblée nationale. loolu mooy permettre comme ñoom dañuy bañ ñu criminaliser. bu ñu demee ñu am majorité bu ñu permettre ñu criminaliser. waaw loolu moo ñuy permettre loolu la ñuy permettre transition ñu dugg ci li jëm ci wàllum seen arrestation bi moo Mouhamed Ndoye doon wax léegi ne mosuñu dégg nga wax ci. Euh, ci coowal parrainage bi ngeen ne da ngeen di amal ab manifestation doxub ñaxtu. ñu mbogo mbogo leen yéen ñëpp dugal ci euh, auto police ñi ñu yóbbu leen si Sébikotane wàccee leen fa ñi jam ñaajo yow fan lañ la wàccee woon. man ni ma wàccee ci zone euh, sédiment bi ci àll bi parce que ben ma wàccee vers vingt trois heures et quelques euh, vingt trois heures vingt cinq et demi lañ ma wàccee man lañ njëkk a wàcce parce que ñaar ñaari oto la en tout cas bokkuñu pour être plus précis bokkuñu oto bu ñu bu ñu dugal. Hmm. man oto bi ma nekkoon euh, on était ay douze personnes benn fourgon bu policier la boo xam ni ay quinze policiers encagoulés ñoo fa dugg ñu ñuy gurgur duñ ci dugal daal di taal daal di taal seen oto wàcce bâche bi bañ ko takk pour muy def di bruit buy daw. Hmm. pour que dóor yi dóor dóor nit ñi kenn du ko kenn du ko dégg ci yoon man man man man man man personnellement j'avoue que laaluñu ma wax dëgg yàlla parce que tamit. waxtaan wax dëgg ca la. man ci jàpp bi dóoruñu ma. ils m'ont traité avec respect même si par ailleurs bi ñu duggee ci oto bi quand même j'ai entendu propos de complexé ay dambo jow da ngay jaay affaire de VIP mais dañ la won ni réew mi waaw fii duñ leen bàyyi ngeen def lu leen neex et cetera affaire yooyu di wax daal. Mhm. mais ñu ma fenn kam waaw no en man kenn laalu. maintenant mais gis naa ni dóor nañ ay nit di mbéj ci mbéj voilà yow def nañ ko fa. maintenant euh, dem ba ci àll bi mën nañ njëkk a wàcce ci oto bi ma nekkoon man ci douze personnes yi man maa njëkk a wàcc ñu ngi ma wàcce ci a ah, ci mbartalu euh, dañu ñëw ba ci zone euh, descente kii bi sédiment bi fa la ñu wàcce maintenant nag daw lu bëri ci faro yi xam foo doon ay faro boo hmm. wàccee péage bi léegi nag dem ba mu neex leen ñu wàcce ma daal di tëjaat seen oto dawal ñi ci des ñu ko ne waat ak ñun demaat ay deux kilomètres trois kilomètres certainement wàcce waat kenn di def noonu ba côté àllu Thiès bi def lu leen neex jaay doole waaw mais xoqatal nit ñi Guy Marius Sagna nee na moom côté Thiès dañ ko wàcce di xoqatal nit ñi rek di jaay doole parce que ñun bokkuñu woon oto bi ñu nekk mag gi mais di jaay doole rek xam Macky Sall li bëgg mooy nee naa la sànq Macky Sall dafa réduire l'opposition à sa plus simple expression sauf Sonko bi mu paree ci loolu nag dafa ne léegi daa war a dérouler malheureusement produit mu am ñu taxaw ñoo xam ñu ngi taxaw ci ah, jafe-jafe askan wi nekk la société civile crédible pas la société civile bi nga xam ne day wër wër di wut ay financement xam na am na société civile boobu nga xam ne ñoom nguuri financement rek lañ fi nekk ñoom réew mi di dund seen i jafe-jafe seen yéen ñoo politiciens yooyu ci oligarchie bi lañ bokk maanaam ñi nga xam ne ñoom wër ay ñu leen di financé lañ nekk ak yooyu di xool seen i intérêt bu réew mi doon tàkk seen yoon nekku ci ñan ngay gaaral mais no société civile bi nekk dañoo bëri boo joxee kenn day da nga ko jox bës dama ne dama ne la ñooñu réew mi njariñ la société civile bi nga xam ni wër ay capté financement moo leen intéressé waaye dañu wàcc mukk ci jafe-jafe askan wi te pourtant en 2011 ñoom société civile boobu ñun ñii yëpp dañoo àndoon ak ñoom ñun syndicat yi yëpp ñu taxaw di xeex pour bu ñu laal suñu constitution actuellement bu ñu dee laal constitution bi Macky Sall di jaay doole kenn du leen gis ñoom ñoom société civile boobu c'est regrettable maintenant nag ñun Macky Sall li mu ci bëgg comme ni nga ko waxee li ngay laaj noonu lu mu ci bëgg li mu ci bëgg mooy napp ñu pour ñu ragal mais ku ñu xam-xam ne ñun du ñu ay ragal. xuppaate xuppaate parce que Macky Sall ñaar yi la am xëpp mbaa xëpp la alal nga noppi wala mu xëpp la dugal ci kaso bi loolu lay jaay Cheikh Omar Diagne te du jàll lool lay jaay Dame Mbodj te du jàll loolu lay jaay Guy Marius Sagna du jàll ñun ñi nekk ci réew mi di wax pour intérêt réew mi dañuy taxaw di xeex pour suñu réew parce que suñu réew moo na ko jaral léegi nag leneen lu mu fi def day gën a ñaawal jël bi rek parce que moom 2024 mënta nekk candidat nañ ko bañ a la woon ñun société civile bi yëpp ànd ñu ne ñoom ay àllinti nag ñëpp àndoon di xeex ni Abdoulaye Wade mënta def troisième mandat mu forcé mais ñu xeex ay nit dee Sénégalais jëppi Abdoulaye Wade massivement ñu sanctionné les mêmes causes produiront les mêmes effets moom Macky Sall 2024 bu jéemee nekk candidat dañuy taxaw xeex ak moom comme nañ defoon contre Abdoulaye Wade en 2011. boo defee élection 2024 yi. Hmm. ñu woon ko ne moom mënta nekk candidat. candidat bu mu bëgg nag na ko teg bu ko defee ñu dem élection yu libre et transparente sénégalais yi fal kin bëgg. d'accord lii lañ bëgg ñun. léegi moo taxoon ñu doon xeex ñun pour parrainage euh, bu ko fi kenn defee li tax ñu jàpp ñu parrainage dañ wax ni du yoon xamul tax. mais parrainage Macky Sall ni mu koy defee c'est c'est vraiment c'est regrettable mais sénégalais yi lu tax ñuy nangu président Macky Sall ñu defal parrainage. parce mais yéen yéen a ko ko fee nangu jour ba ah. muy voté dama dama lay wax jour ba muy voté. yéen yéen a nga foog Sénégal di ko couvrir jour jour ba muy voté la loi sur la parrainage dafa génne char yi teg ko fépp. kenn mënut a accéder à l'Assemblée nationale vraiment dañuy comparer ak 23 juin. 23 juin Abdoulaye Wade dani dafa ubbi woon ku bëgg a manifester pour la loi demal manifester ku bëggul manifester pour la loi bul euh, euh, demal taxaw def sa contre manifestation loolu la Abdoulaye def génnul benn benn benn benn benn char ñëpp accéder ci grille assemblée nationale bi bu ko defoon xam jour ba muy voté parrainage na lu tax defu ko moo tax ñuy combat naa 23 juin avec tout le monde Macky Sall bu fekkoon 23 juin Abdoulaye def noonu ñu nag ñoom dañuy accéder dañoo mën a accéder ci ville bi Macky Sall day mel ne guerre am buy voté benn loi parce que day jaay doole mais parrainage bi kenn àndu ci léegi nag ba mu ko defee ñëpp gis nañ ni mu def dafa sélectionné def cinq candidats pour wóor ko ne mën na mën na am chance su dem euh, gagner au premier tour parce que deuxième tour su demee day ñàkk loolu la bëgg def ci législative yi parce que dafa am ay listes parallèles yu bokk ci camp yoo xam ne na ñoom dañuy dem élection Macky Sall mun leen a convaincre parce que nee leen duñ topp ci département boo dugg xam naa fa koo xam ne APR du topp ca kan bëgg a jiital léegi nag ko bàyyee day teg listam ñooñu bu ñu tegee mun na ñàkk département yu bëri parce que raw gàddu ci département yi mu teg pare naa dem pour éliminer list yooyu bokk ci moom yi nara a dem législative ba noppi nag éliminer waale list boo xam ne peut-être société civile moo ko nar a teg imagine nga ñu tegoon une liste citoyenne boo xam ne ñun ñëpp ñi nekk ci biir euh, société civile bi di xeexal réew mi teg nañ ko daan ni sénégalais yéen ñun ñii ku ci am ci jafe-jafe ci ñun ngay ñëw da nga seeti Guy Marius Sagna wala nga seeti Dame Mbodj nga seeti kee wala nga seeti kee waaw léegi nag ñoo ngi nii voté leen ñu dem assemblée daal leen fa fekk am ngeen doy dama ne la du loolu président Macky Sall va foogoo leen ne loolu bu ngeen ko defee parce que la plupart ñi bokk ci yéen wala public bi leen di suivre yeewi askan wi la ñuy voteel est-ce que bu ngeen ko defee aw nii yeewi askan aw nii est-ce que loolu du arrangé Macky Sall merci beaucoup léegi nag euh, loolu moo tax ñun duñu ay dof li ngay wax nii xalaat nañ ci ñoo ngi waxtaan suñu biir leen ñu bëgg a terroriser que yéen bu ngeen demee wax yéen askan wi vous êtes des politiciens ndokk xam nga liy dëgg. xam nga liy dëgg non non mais doon politicien daa bonul sax xam nga politicien. non doon politicien déguisé moo bon. voilà xam nga la ñu xam nga la ñu bëgg naan sunu xel yi xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga dañu muus. dañ naan politique baa ngi nii ñun ñu ngi koy def. parce que politique baaxul. yéen da ngeen a baax bu leen ko def ñun loolu duñ ko nangu parce que foofu la ñuy dogale dañoo bëgg bokk ca fa ñuy dogale ci euh, euh, ci ci ci loi réew mi ñu fay jox suñu xalaat parce que ñun askan wi moo ñu ñor kon politiciens yi mënuñu jël une assemblée monocolore où il y a que l' assemblée nationale doit refléter la société sénégalaise. ñëpp nekk fa rep ñu am fa représentant loolu moo tax ñun bu ñu demee ba Macky Sall bëgg a jaay doole ni du dindi parrainage su dindiwul parrainage bi man ma proposition au niveau de la société civile mooy ñu dem ànd ak Yewwi Askan Wi. parce que loolu laa gën ne ñoom ñoo fi taxaw nekk une opposition crédible pour dem euh, euh, imposer ko une cohabitation au niveau de l'Assemblée nationale pour que loi yi bëgg nii comme criminalisation yooyu yëpp ñu dem ci bu ko defee man koo voté réew mi dem ci beneen beneen yoon. loolu lañ bëgg ñun loolu moo ñu intéressé l'objectif qu'on peut atteindre dans ça. mais nag ay nit yi taxawee naan yéen bu ngeen ànd i waxi bopp rek. ñu war a yokk limu député yi ñu war. waaw juróom yi ñu bëgg a yokk man jàpp naa ni euh, amul woon njëriñ xamul tax. Hmm. parce que député yi moom député yi tàccu kese. bëgg woon a yokk loo ci yokk député lan la ñuy def assemblée. yow loi wax yoo xam ne Macky Sall mooy Macky Sall en dama lay wax gis nga Macky bis bu bëggoon code code de la presse Macky li mu ci bëgg bis bu ko bëggoon député votel ko man maa la wax li man dam gis na Macky dama ne la dëggaloo li ma la wax Ablaye xoolal dama lay wax code de la presse depuis Ablaye dañ ko ragal gis nga code de la Sall suba député député Macky Sall lañ nekk nekk fa kenn yi nekk luñ fa askan wi député Macky lañ ñoom sax dañ la koy wax boo leen déggee ñoom ñëpp dañ ne ah man ne Macky lu mu andi ma voté loolu la maire yooyu wax daañ sol seen cuub rafet ñëw yëkkati mais dama ne la Macky Sall assemblée nationale bi moom xoolal li jëntuwu leen xamul tax moo fa am majorité écrasante te ca na fa nekk moo leen fa teg kon nag loi bu fa ñëw day jàll kon na man assemblée boobu dama jàpp ne sénégalais jot nañu soppi ko ci lo ci dañu war a dindi assemblée boobu assemblée boo xam am un débat bu sérieux hmm. un débat sur les grandes thématiques un waa un débat contradictoire yaay fàttaliku am nay temps buñ la daan wax assemblée nationale journaliste dañ doon yàkkam sa dem couvrir ko a xam a pas débat là-bas la cette treizième législature là est nulle <laughs> mais ay temps da doon gis au moins temps ay Abdourahim Agne Euh, ak euh, Ousmane Ngom ci année yu mujj rek quoi waxuma la nag avant. Mm-hmm. mais da nga gis au moins mu am ay ay ay ay ay débat yoo xam ne de haute facture. jamonoy maître El Hadj Diouf. waaw nekk à l'Assemblée. non non non ne me parle pas de cet avocat là. non non non kooku moom wax dëgg yàlla. non mais fay nekk daan am débat. ban débat la. ban débat la. l'homme du 23 juin. nan la nekk l'homme du 23 juin lan moo ko tuddee boppam nga am l'homme du 23 juin. waaw l'homme du 23 juin moo ko tuddee boppam. c'est bien le député du peuple. waaw député du peuple moom moo nekkoon assemblée nationale. di ak en plus. ba ñu tuddee ko député du peuple. gis nga ñii xoolal gis nga ñii li ñuy wax ñoom ñii sax gëmuñu ko maanaam ñoom ñu koy wax ñu dëgg maanaam maanaam xam nga yéen fi mu doon nii xoolal l' expression faciale bi ma gis nii yéen ñii ñu ngi wax nii ñu ngeen di wax nii yéen sa gëmu leen. non non ñii man bu la koy yéen leen xoolee nii yéen a koy wax nii mais seen kanam yi sax day. mais mais mais du ñun mais jamono jooju ñun ñi ñoo dem ba woowee ba député di ko mën a. mais moom parce que moom moo ñëw tuddee boppam l'homme du 23 juin rek moom mooy. député du peuple nag moom dama lay wax waa léegi léegi kon léegi lu mu nekk léegi léegi nga xam ñemeetul dem élection benn léegi député du peuple la yow boo fekkee da ngaa nekk député du peuple dem ba ah, candidat la président candidat la loolu la koy wax pour nelawal nit ñi xoolal dama ne El Hadj Diouf mu nit ñi xoolal xam nga lu mu bëgg mooy nëbb li ko dal xam nga lu ko dal hmm. sénégalais dañ koo bëggoon parce que dafa taxawoon ci ay position yu leer Ah, kon yàlla léegi nangu nga quoi. non bëggoon mais tax loolu mu nekk le député du peuple ah, ah, moom te doon boppam. non boppam gis nga. ah ah ah sa baaxu bàyyi ko yàlla la xoolal gis nga 23 juin. le député qui a déclenché la crise c'est Cheikh Bamba Dièye Cheikh Bamba Dièye mais à l'intérieur. non may ma rek waaw may ma rek waaw may ma rek waaw damay déglu rek El Hadj Diouf dans son intervention. waaw ki nga jaww la c'était pas évident parce que ñu ngi woon si kaw. waaw mais may euh, ma rek loolu ci dara. waaw loolu ci dara waaw may ma rek. voilà non Mohamed Mohamed d'accord maa ngi lay loolu. waaw mais dama la jox benn exemple. xoolal Moussa Sy Moussa Sy. Hmm. mi ngi woon ci mouvance présidentielle bi à l'époque pourtant il a eu le même discours que euh, Ablaye moom sax au contraire. mais mais El Hadj Diouf bu ngeen voté lii dañ leen di fekk fii taal seen kër la leen moom Moussa Cissé pourtant ñoom la bokkoon noonu du wax eh, maître El Hadj Diouf dafa gaawantu wax député du peuple di sóob ba ñëpp daan député du peuple député du peuple maître du euh, amul fenn fu ñu ko bind ni moom mooy député du peuple. d'accord d'accord euh, mooy comme actuellement gisu leen euh, lan lool li moom nee na mooy député du peuple léegi. mais attends daal yéen yéen du seen bopp yéen a ngi woowee seen bopp coalition le peuple kon kay moom bu ko neexee ne député du peuple. non ñun dañoo ñun dañ koo duppee askan wi loolu c'est différent ñun dañoo wax ne askan wi yéen lañ duppee yéen lañ ko tudde mi ngi mel ne yow nga am sa doom tudde ko ku la neex ñun dañoo am suñu doom suñu bébé ne euh, askanu Sénégal lañ ko tudde loolu bokkul mais kay daa tuddee moom. d' accord daam léegi ñu wax ci ponk bu mujj bi. waaw euh, ponk bi nga xam te nii Sénégal bu doon wax kan moo ci gën a wax yow yow la ñuy wax ne yaa ci gën a wax mu di coowal Ousmane Sonko ak Adji euh, li ci mujj muy audio bi nga xam te ni ñu ngi naan Mamour Diallo la wala du Mamour Diallo mais yow bi ma la déggee ngay wax. da nga confirmer que ni Mamour Diallo effectivement moom moo wax ci audio boobu noonu mu bëggoon a xam ba xam da fekk woon bi mu koy enregistré wala ka ko enregistré moo la ko wax wala yow ana ban information nga ci am daam. d' abord euh, ma ñoon damay sant yàlla euh, wax dëgg yàlla parce que bi audio yi fuité. Hmm. lépp yi dañ may woo fu ne. <laughs> allah. yow kenn du la baal. lan moo fi leer. non non non dinaa ñëw ci loolu. bi audio yi dawee. Sénégal yi dañu doon wax macha allah. macha ne woowee nañ ma fa. ay laa def. naa ma dàmbuj. Mm. parce que ay temps dama daan am ñu daan moom ay dàmbuj. te ngaa tey ci dossier bi man leen dossier bi duma ci tey parce que man. parce que non kenn bàyyilewu ma ko man intellectuel laa. man mm. intellectuel n'a pas besoin d'avoir tous les éléments d'analyse. un intellectuel c'est celui qui sait prendre un certain nombre d'éléments les analyse froidement et en tire une conclusion. non man man man ma ñëw non non non ma laaj bon ma laajee man bëgg naa dugal feneen bu dëkk. dama la ko ko soxla man moom ku ma déglu rek mu leer. dama ni. man en tant qu'intellectuel. te du ma n'importe kii nag. coow li na ñoom ñooñu xam nañ ma bu baax a baax a baax kuñ ci ne kaay toog ak dàmboo ñuy débat sur un sujet yaa ngay suur. te pourtant du ma dóore du ma mais nag lépp ci xam-xam laa koy teg damaa toog dossier bi daw sequma dara Ousmane sonk mais ma xool les éléments du dossier lire l'enquête préliminaire jël guddig la mu di ko lire dafa gudd nag l'enquête préliminaire mooy fi ñu digloo les les protagonistes mm-hmm. ma liir ko guddig lëmm prof de lettre laa nag ah oui prof de lettre laa nag def waaw man liir guddi gi yëpp. lire entre les lignes. non lire dama ko lire phrase par phrase mot par moo ku ci nekk li mu wax parce que enquête préliminaire. Euh. c' est vrai que c' est à titre de renseignement. Euh. mais képp ku fa dem li nga wax lañ lay tekkee bu dee déggoo tubaab parce que dañ koy bind ci tubaab mais yow bu la laajee te déggoo tubaab dañ la koy faram fàcceel li nga wax man mii bi ma demee garde à vue daaw bi may defal sama enquête euh, préliminaire. Euh, mais bu ñuy bu ñu bu bu may wax français laay wax mais su ma paree su bindee ba pare su amee ay kii damaa ko corriger lii waxuma ko lii laa wax ñu koy ba déggu parce que li nga wax la ñuy dem lan lañuy moom la ñuy dem jéppal le juge d'instruction xamal ma la donc ma lire enquête préliminaire bi ku ci nekk li mu wax mu leer nañ ma déglu également ku ci nekk li nga wax maanaam li li nga wax ca section de recherche ak li nga wax yow Euh, ci ci presse beeg parce que ñoom ñëpp doon génn di wax ku wax. espace public. ci espace public bi ku nekk li nga wax. ma jël l' accusation l' accusation c' quoi mooy dañ ni dañ koo jiiñ. Euh, siif boo xam ne daa ànd ak ak xoqatal. Hmm, xoqatal non rek. siif gu ànd ak xoqatal ak ñaari arme maanaam yore ñaari arme Hmm. ba noppi di siif en même temps ak xoqatal. te ah, ah. noonu la ko ah eh la jufu ko moo dem moo dem ci benn télé TFM nii ñaari arme nii la ko téye xool leen vidéo ñaari arme la téye bëgg cee boole siif voilà ba noppi di ko siif siif ko siifaat ko siifaat ko ko ma ne mais kii tappalekat la waaye yow man leen kon loolu mooy loolu mooy viol à main armée <laughs> non viol à main armée non Sénégal moo neex c'est-à-dire Sénégal rek moo am viol à main armée <laughs> non c'est-à-dire réew mi tappale gi fi nekk non extra extraordinaire c'est-à-dire à l'époque ma ne non man xam nga man ak gars du tax duñ ma ñeme xam man. Hmm. samay affaire nag xam nga man damay analyser. quoi mais daal nga yaakaar xaaral balaa ngaa dem ci analyse nga foog ne góor yàlla xam nga sànq ñu ngi ay góor yàlla dëgg góor yàlla mën naa yore ñetti tiirekaay di tiire en même <laughs> mën naa waaw waaw di tiiree ci suuf di tiiree ci waaw waaw ñetti tiiree kat. waaw waaw yàlla mën na ko. ma uh, uh, xam nga déjà yow wax nga sa bopp. dégg nga ma lay laaj dégg nga laaj <laughs> dégg nga ma laaj man mosuma yor di tiiree. non xam nga xam nga xam nga affaire bi ah. non c'est-à-dire man borom la woon borom la woon. dañ ko waxee non euh, dama ne gars yi nag franchement réew mi moo neex quoi Sénégal moo neex Sénégal nag réew mu neex a jiitale xam nga parce que Sénégalais yi au lieu ñu analyser li ñuy wax côté da moom kay nañu wax est-ce que man leen yéen est-ce que lan yow ñii leen wax boo ko déggoo sax xam ne waxi dof la mais dafa am wax yéenawul maanaam wax dafa donc déjà ñoom ci accusation bi li ñu ko bindee rek mooy daanu hmm. beneen yow boo jiiñee nit siif. dafa am loo xam mënta ñàkk ci lañ ko jiif parce que jiiñ ñu ko jéem a siif audio yi waaj a ñëw nag am na ji jéem a siif bu ci am. Hmm. Hmm. ah yi ñëwagul. waaw yi ñëwagul. dé déglu nga ko yow waaw non dafa am ku ko déglu koo xam ne. ma ko wóolu. Hmm. daa am ku déglu. daam ba léegi waxagoo ma lu li may wax ak. Ah, daa dafa am koo xam ne man daf maa doy gis nga tey jii par exemple yow su ma la xamoon ñuy ànd wala ñu séq. waaw ba ma xam ci yow jikko boo xam wóor na ma ne yow doo kàcc kat soo ma nee man ñu toog ma ak yow kese ak yàlla nga ne ma saa waay ma ne ko nga xam nga ma ne ko waaw ma ne ko déglu naa audio yëpp lii ak lii mi ngi ci audio dama koy gëm parce am ku ma wóolu koo déglu na audio yi ñu toog ma moom mu ne ma am na ci koo xam ni hmm. ci ñi nekk ak ndaw si la man sa ndaw si daa am ñoo xam ñoo nekk moom ma nekkuma ak moom mais ñi nekk moom am na ci koo xam ni ndaw si ci audio yi parce que dañ koo enregistré. Mhm. enregistrement yi ñaar la. Adji Sarr enregistré na Mamour Diallo mais Adji Sarr tamit enregistré nañ ko. ok bi Adji Sarr enregistré Mamour Diallo booboo génn mais Adji Sarr yéen ko enregistré moom génnagul. te boobu yow nga ne Mamour Diallo la daal te. waay waay waay man moom. waaw jàll ci leneen waaye tamit. parce que départ bi bi ñu nee bëreet am na ñoom ñu naan est-ce que euh, dossier bi c'est euh, est-ce que audio bi c'est authentique man moo ko déggee ay réel la ma def. waaw ma woo sama benn boy boo xam ne dafa xarañ nag. mën ma grand non <laughs> bul. bul ci bul ci bul ci bul ci mu ne ma grand non man na xam nga jàngalekat laa am ay am ay am ay élèves information parce que début bi da ngay waxtaan mais après au ci digg bi di nga dégg maa nee nañ Mamour Diallo la mu ku nekk si éco ay montage la tamit déglu nga. non kon yow xamoo non bul dugg ci loolu déggoolu ma la fi nga sama booy boobu. Hmm. moom professeur la ci informatique. parce maa ko jàngal nag terminal. xam ko mu dem États-Unis ñëwaat nga xam moo ko woowee lu ma wax dana ma grand mu ne ah, ma ma sama élève première année en informatique boo leen joxee eh, eh, eh, son bi ñuy analyser parce que on nee na wax na ci yuy compliqué décrypter et cetera mu ma non kii un preneur de son boo xam si sax dans le tas la nekk boo ko joxee mu xam ne c'est authentique mm-hmm. mun ma kenn mënu ko modifier mun ma y a plusieurs éléments yu authentique yu yu wane ni c'est authentique mun ma kenn xalaatul un spécialiste bokk mu ne ma xanaa koo xam mais ma un spécialiste ñëmul taxaw naan c'est pas authentique man ma soo dégloo audio bi rek xam ne audio normal la kenn laalu ko kenn touché wu ko. léegi audio bi lan moo ci lan moo ci grave. waaw non mais man rek loolu dinaa ci ñëw dinaa ñëw ci audio ba mais dama ah. xam nga li ci mbirum Adji Sarr si audio bi mooy. Hmm. boo jéemee nit siif waxoo ni daf ma doon jéem a siif. Hmm. mooy tentative de viol. jiñ ñu ko lool dañ ni dama siif. c'est important boo nee damaa siif mooy awra ku góor ki dugg na ci awra ku jigéen ah loolu mooy dëgg. non sa baaraam ko wax mu leer sa bi day day day day day day day kii rek misaal la góor ki dugg ci awra jigéen ki pour mu pour pour ñu mën a wax ni siif na ko mais bu dee jéem caa am mooy tentative de viol loolu jiiñ ñu ko wàcc. ma rappelé aussi ñuy def amalgame que jiiñuñu ko jii ko da ngeen a séq lu ngeen déggoo parce que boobu bokkul. consentement waaw consentement am ngeen déggoo et cetera loolu du loolu du loolooy wax ji parce que am na yoon li ngay wax loolu lañ bëgg a wax ne hmm. est-ce que amu ci mën leen ba ci amee lu hmm. bi du est-ce que am na lu ñu <laughs> séq hmm. ay ah, est-ce que amul lu lu lu am man leen ah waaw bu bu ñaar séqee déggoo ca ba dara génn wala dara lu ca suñu yoon ñun bu dee déggoo na du ca suñu kon génne ni am naa lu ma am loolu day day preuve loolu mooy la yow kay booy wax preuve wu da nga maa pièce bi njëkk bi ngay produire mooy nga produire un certificat médical buy na ni dugg na ñoom ñoo jël oto ba oto ba oto ba Mamour Diallo dem jëli Adji Sarr ca suite beauté ànd ak ay nit ñoo xam ne si ci Mamour Diallo lañ nekk mu mu leen di mu leen di courtier pendant des des des pendant une période au moins qui a précédé ça ñu ànd ñoom ñëpp ca oto ba dem ba ca hôpital Idrissa Pouye dem gis gynécologue bi docteur Gaye ñu dem yegg mu examiner ndaw si ne ndaw si ñu ma examiner ñàkk na ndawam bu yàgg yàgg yàgg yàgg loolu moo ko non loolu la bind ci dañ yow sax damay mais daam que moom moo def conférence de presse moom Adji Sarr daan ne Sonko ci conférence de presse bi mu ne Sonko xool ma daan ne kii nin feese dell kenn du ma ci jiitu xaa yéen seet xaa seetaan leen de presse Adji Sarr nu muy waxee Sonko non dama ne. Sonko dani man est-ce lu tax may wax yàgg a yàgg bi man samay wax lépp lu ma la wax am na fu ma ko teg. du ma sànni du sànni bal man samay bal du am bal su may wax man du am bal perdu. boo visé day dal. damay visé mu dal parce que li may wax ci dëgg laa koy teg dëgg dafa neex nag xoolal li may wax nii. côté bu ma neex man naa ko commencé. lépp a leer ci sama bopp bi ne ay tappale la xoolal mu ne. soo ko xool ma daan ni kii ni mu feesee kenn du ma jiitu ci moom mais tappale. docteur bi ni ca certificat médical ba mu màbbal kàcc ci Adji Sarr yooyu mu ni ndaw sii ñu mën ñàkk na ndaw bu yàgg yàgg yàgg yàgg beneen bi beneen bi mu teg ca ne toog na biir bu mat fukki waxtu ak juróom benn yoo xam ne sëy lu mu gàtt gàtt loolu vingt quatre heures lañ koy tuddee parce que période d'activité bi la donc lu mu gàtt gàtt. ci koo xam nee na léegi nii lañ yegg ci man léegi daa daan ñëw leen jël sama ñu dem njëkkewul sax police moo tax nit ñi moom bu ñu njëkkee dem euh, hôpital loolu du procédure bi da ngay njëkkee dem police wala gendarmerie ba ne maa ngi nii violer nañ ñooñu commandité ñu ñu ñu andi pièce bu koy bu koy firndeel moom daa gaaw a njëkkante fa la xamul leen ci intéressé woon. Mm-hmm. dugal waa ji rek na dugg rek nañ am as affaire suñu jàpp suñu mën a jafandu rek. malheureusement ndaw si teg na leen dil parce que ban koy yóbbu. xaw ma ban bis de mais bis boobu kenn yëggul ci moom parce que spécialiste mu ngi ko wax. mu samay wax man dàmbul. waaye yéen yi. Ah. wax ji jéew. bu bis boobu la wax ne dañ koo violé. wax ji yow yoon mooy ki jeexal. non non attends dañuy waxtaan moom dañuy waxtaan moom bala ñuy wax waxu yoon yoon après daan ñëw mais dama ne. yow jiñ nga nit ki ne dalaa violé. dem nga ca ka ko war a firndeel. nga xam loolooy liggéeyam. te man xam naa gynécologue yi am dama la gynécologue bu fekkee jigéen ji doog a sëy la boo ko yóbbulee léegi nii soxlawul sax appareil. waaw dégg naa dañ koy xeeñtu rek xam. non du xeeñtu dañoo xam dañoo mën seen liggéey. Hmm. xeeñtu bi kese sax xam nañu koy wax ay dañuy xeeñtoog et mooy am na extra mais dama ne la gynécologue dañoo xarañ hmm. boo ko yóbbulee jigéen goo xam nee na ñu ngi doog a yegg ci moom léegi nii. Hmm. bu yegg see même bu dee jigéen ju yàgg say vingt ans bu yegg see nii ñun mu ne léegi lañ jóge ci moom. bu yegsee bu ko bu ko xoolee ni leen dëgg la wala dëgg est yaa ngi dégg wax ji ñu yóbbul ko directement mu xool ko defar fi mu toog certificat médical am ni ndaw si ñu ma àndil un ñàkk na ndawam bu yàgg a yàgg ñaar sëyul waaw wax ji féetewul boor nañu waxante dëgg rek moo tax à l'époque ma ne sénégalais yi ay waay sénégalais bàyyi leen seen layam layam te wax dëgg pièce à conviction bi dans un viol c' est le certificat médical parce que loolu ngay dem présenter. beneen bi mooy ñu loolu loolu taxawul dama lay wax non non non bu ñu amee beneen nañ ko génne. Euh, euh, docteur xam nga yéen ñii dañoo teg xam nga ñoom surtout gars yi dañoo teg nit ñi ay dof. médecin bi ko def mi ngi fii ñun dañ koo xam médecin bi ko def il s' appelle Alfousseyni Gaye il est laal ñëpp xam ko lim bind noonu dara du ko dindi waaw léegi loolu kon bi mu jàllee ñun la beneen élément bu mënoon a wane ni violé nañ ko. mooy au moins mu am aveu moom la ñoo aveu maanaam kenn jiiñ ne man d'accord naa ne maa violé maanaam moom jiiñ lañ ko mais d'accord na ne ma d'accord na ne moo violé mu am aveu moom la ñuy wax mooy nangu mu nangu leen ko jiiñ wala leen ko tuumaal loolu amul parce que waaj nee na man séquma ak moom loolu ñetteel ba mooy mu am ay seede ay témoin yu mën a firndeel ni gis nañ ni violé nañ ko looloo amu ci te li ci gën a grave loolu mooy ñëpp ñu wër affaire bi la ñu wax day wane ne viol amul boo jëlee maman ba nee na Adji Sarr moo ne ko génnal salle bi pour mu wéet ak Sonko loolu la wax ci enquête préliminaire bi mu leer nañ te maman ba moo doon nekk ko masseuse bi ñoom ñaar ko doon massé mu ne Adja moo mu ne Adji Sarr moo ne ma ma génn waaw mos ngeen a gis ku ñuy violé muy waajal violam boo jëlee borom këru ki moom salon bi parce que borom salon bi moom daa amoon doom. Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye waaye borom kër gaa nga fa ñu laaj ko mu ne ah Adji daal ñëw na ci man quelques jours avant. jour boobu daan na ma waaye yéen Sonko kañ lay ñëw ñu ne ko ah lii loolu mu ne na mu wax wax ba génn ci demaat toogaat ay quelques jours ñëwaat ne waa Sonko du ngeen ko woo mu ñëw xam nga aji xale loo xam du xam nu mu koy defee. Mhm. est-ce que comprendre waa sonk du ngeen ko wax mu ñëw waajal pour xool ban jour lay ñëw pour mën leen wax ni dana ñëw tel jour mhm. ñun duñ ay dof man jàngalekat laa ñun jàngalekat am na benn waaye bu naan ma yow avocat yi man na ko mais avocat yi su réewu ñoo ñun ñun ñun mhm. jàngalekat ñun nag dañ duñ n'importe qui de ñun dañuy toog suñu classe sa xool kenn ko def dara ni ko yaa def dara ñun dañuy analyser loolu mooy suñu rôle nu sommes des intellectuels ñu ay intellectuels de seconde zone booy waaw ñun dañuy wax lu leer moo tax soo seetloo état bi concours yu bëri bëggul jàngalekat def ko parce que bu ñu defee day jàll kon nag ñun waxam wax waxi dof dañuy analyser le contexte aji saar moomu ñoom yàlla la nga jël xaalis ba nee nga dañ laa violer nga ñëw jox xaalis ba nag jël sa reer ñëw teg di lekk di kii dem yëg ca kaw di làqatu boo fi bu ñu la violer kër ngay siiwal violer nañ ma waaye daw làqatu ko gaaw leen ñëw leen ñuy aji looy demee du dara de ñu dem taxaw ca terrasse da gis ni te gis ni lu ñu la naan mel ni ko fekkee man sénégalais nañ bàyyi waxu naa fekk yi man li ma lay wax mu ngi ci enquête préliminaire bi lu ñu wax la ay nit ñu nekk ci biir dossier bi ñoo ko wax devant le gendarme mu bind ko liiral leen ko leen est-ce que yaa wax lii mu ne waaw nga signé loolu dama koy gëm parce que lu nit wax la waaw parce que yow mi bés bu ne nga dem sa kër xool situation bi wax fa loo xam ne fekke woo ko woon voilà juge bi àtte sax fekkewul te day daaneel nit da ngay ñëw mu àtte la ne yow yaa tooñ jëkkër ak jabar xeex ñu dem ci kanamu juge bi juge bi àtte ni jëkkër ji yaa tooñ wala jabar ji yaa tooñ te fekkewul nit dong la nag man j'ai des élèves qui sont des magistrats <laughs> ba mu bëgg démb laa leen jàngal fu mu fi aaye ba man fee wax lu extraordinaire dul dem jaar université Dakar jàngal leen trop. mais il faut que les gens donc beneen bi nag mooy ñu ñëw ci. audio yi yi. donc à l'époque lii moo taxoon ma ni tappalay kese ne ci dossier bi y a aucun élément sérieux mais li ci gën a grave mooy gendarme enquêteur bi mu gëm diineem ñu bëgg ko wiñaar loxoom mu jar capitaine Touré mu jàll ko mu ñàkk liggéey ni moom kenn du loxoom parce que lii ay tappale la daan ne na procureur démissionné Bassirou Guèye na Antoine Félix Diome démissionné na ministre de la justice parce que ay tappalekat lañ déclaration de Touba ba mais c'est extraordinaire sama gars yi bu leen jël loolu sànni ci koo dafa jàng ba toll fi mu toll te Ousmane Sonko ko fenn. mais capitaine aussi koo bëgg a def loolu dul yoon mu bañ au contraire loolu mu def parce que fii adduna bii dañ fay jaar. mais loolu may ma woo loolu. loolu ñu wax yëpp waxuñu dëgg. Oh, oh, oh. lan la def lan la def lan dama leen la non en tant que officier de police judiciaire mhm. mënoo nekk si benn dossier mhm. dem ba Touba si contexte boobu ngay def sa vidéo naan diw saa xam ne diw saa diw Touba loolu ni mhm, ngeen ko waxal non non man maa gis vidéo mu wax mais vidéo ba dugul ci élément yi dafa eh, ay contradiction yu bari moom moom la waaw mais eh vidéo ci benn élément non <laughs> vidéo ba dam ba moom après nga wax waaw dama la dam mete laa jël mooy vidéo bi mu sol kiyam bi rek voilà mais mais moom du muy dugg si détail yooyu naan ay na président ak na ministre de l'intérieur nangam dañoo war a démissionner naan dinaa wax sa waa dinaa wax sax le haut commandant de la gendarmerie ni mu escorté ma ba Dakar su ma ñëwee maa ngi wax ñëpp ñu dal ñu def place de l'obélisque ñu def foofu benn manifestation association bu mag après man dinaa wax foofu lan ak lan ak lan. loolu du këram jàmm. waaw non loolu yow wax ci dàq bi. non d'accord non te paraît-il déjà na yëgoon na liy waaj a xew ci kawam ba pare moo tax. avant mu def mu def vidéo boobu. non loolu c'est autre chose loolu mooy dàq bi moom laa wax d'accord naa ngeen loolu ci dàq bi la. wax ne capitaine Touré suñ ko bëggee def loolu loo xam ne jaarul yoon am na droit ne d'accord ma ci defuma ko parce que gis nga nag sa liggéey. Mhm. ëllëg da ngay rendre compte yàlla de. fii suñ ñun xam luñ gëm. bés penc daa am de àdduna bii day jeex de te yàggul ku ci nekk léegi nga dee dem yàlla na yeex waaye boo demee nag ca kanamu yàlla dangay ngay rendre compte de man dama gëm ni moom loola la xalaat bés penc mu ñëw taxaw ne bés bañ ma bëggee def loo loo xam ne nekkul ci dossier bi damaa taxaw nangoo ñàkk sama liggéey yàlla maa ngi nii capitaine Touré loolu mu defa gën lii ñu buñ la bëggee ñaar sa loxo la def looloo xam boo demee ca kanamu yàlla subhaanahu wa taala bés penc nga war koo layoo mu xalaat loolu nekk nit koo xam nit ko am ngëm-ngëm la mu taxaw ne def ma lii jaral na ma ñàkk sama liggéey yàlla xam na ko moo tax na nit ñi tey ci moom de léegi nag loolu mooy li nga xam ne mooy dossier bi muy tappale yu leer Ndeye Khady Ndiaye wax ca devant devant l'enquête le gendarme enquêteur à la section de recherche mu ni dañ maa woo proposé ma quinze millions man leen pour ma taqal Ousmane Sonko man leen Ousmane Sonko violé wul aw ma benn élément bu may sukkandiku pour taq la ko ñu ne ma bu dee da ngaa xeeb 15 millions ñu defal la ko 40 millions waxaat na ko ci bi mu demee nii ci juge bi bi mu demee nii ci juge bu bees bii juge d'instruction waxaat na ko fa ne moom. proposé nañ da ngaa gisaat kii yooyu. non mais moom la ko wax bi mu génnee. Ah, mais ba muy génn ca buntu juge ba di dem ñun dañuy am tous les éléments. ba muy bañ demee ba enquête bi jeex ba muy génn nee ko li ma xam moom Ndeye Khady Ndiaye nee na juge d'instruction li ma xam ma ko waxee Sénégal tas te nekk leen ba procès ba loolu la wax juge d'instruction bi maa ko wax man bi muy génn la ko wax ne xam nga lu ma leen di xamal procès ba dina neex na procès am li ma xam man Ndeye Khady Ndiaye su ma ko waxee dëkk bi tas te maa ngi sama liste kon nag damaa bëgg mu leer ni coow la yi muy bëri yëpp pour ñëw ci ojo yi li nga ngeen ma laa ni do audio yi lu ci garaaw mais audio yi lu ci garaaw mooy. Hmm. ñëpp dégg Mamour Diallo ni waaw yow euh, aji parce que aji bu ngeen fàttalikoo dañu waxoon ne dafa daw tëb balcon daw ñu wedd ko. Hmm. Babacar Babacar Touré moo ko njëkk wax ne aji Sarr daw na. fàq na daa daw daa tëb balcon bi daw ñu wedd ko. Me El Hadji wedd ko. ak ay féministe. am na benn féministe boo xam ni wën wëndeelu na ci plateau yu bëri. non man kook du ma tudd turam. Euh, Gabriel turam bi lu si am ñoom ñëpp koo wax mu ne. du ma tudd xam nga donc. wër ci plateau yi wër ci. de xam ngeen ni. en pleine euh, diffamation non non non lii du diffamation parce la ko moom naa ko tudd bu doon booba. lañ wax ne mooy comme li ko moom kay bu doon plainte Babacar Touré lay plainte moom mi ko tuumaaloon nee koo tuumaaloon. loolu moom la ñu mën a plainte mais man li ma wax nii kay moo ko def war ci plateau yi weddi ni Adji Sarr daw li ñuy wax ñooñu li kooku Babacar Touré li muy wax du dëgg loolu def n'est-ce pas mais tey li Mamour Diallo wax firndeel na ni ñoom ñooy kàccikat yi xamul tax Mamour Diallo dana ko aji foo nekkoon mooy rëccoon nañu mu ne ko avec l'agent de la BIP. mu ne ko ak kan mu ne ko ak ki ñuy togga waaw moom lu mu war a mën a def ak agent bi. non non loolu loolu beneen demande la bu bu ñu yàq bu ñu yàq man li ma ci intéressé rek laay wax la ci des intéressé wu léegi ñu ne ko waa aji mu ne ko aji man ñooñu xaw ma ñëpp kenn laa ca xam waaye man li ma la bëgg a xam mooy yow la ca mën a am mooy ñun dañ lay protéger te la ma waxante woon ak yow contrat sax la wax contrat bi ma lié ak yow contrat. Hmm. contrat le terme contrat il l'a utilisé. dégg ah, leen dégg leen audio le contrat moral kii contrat moom contrat la rek. léegi contrat mooy li ma wax ma wax la ko li ma la defal nangam ma leen ma def nangam. li ñu dig li ñu dig non may ma rek may ma rek. Hmm. léegi nag kon la ñu waxante woon ak yow jóguma ci. kon dinañ ko def. ku la wax ne la man ngaa am léegi passeport mooy kon diggoon na ko ku la wax ne léegi ngay am passeport ku dem mënta nekk xaaral ba wax sax datu procès bi ne ñetti weer la procès dina am bu procès bi amee fii ñetti weer yow daal la jox sa passeport yóbbu la nga tukki mm-hmm. lii leerul ci audio waaw leer na nañ voilà moo ko wax la ko wax ah, nga léegi daal ce qu'on dit rek. waaw bi mu leer nañ ñëpp gis ni da koy rassurer. Mm-hmm. da koy rassurer parce que aji da leen nar a échapper. waaye comme jàppee su échappé su échappé musiba dal leen koo jàppee ni sa doom mënoo ko a wax jox jooju noonu ci moom koo jàppee ni sa doom waaw léegi wax nga loolu léegi dix-septième minute ba ah. koo jàppee ni sa doom mooy réunion ba jeex na parce que ca bu ñu demee ba ca seizième minute ba ñëpp dégg nañ mu daal ne kon nag mm, mm, mm, saye xam ne jeex na ba ndaw si ni góor ñi génn leen dégg ngeen ci audio wala déggu leen yéen xale yu góor yi génn man dégluwuma loolu de déggu loolu mi ngi ci audio bi ñu ne audio bi dañ koo déglu minutieusement religieusement. Mhm. yaa ngi may dégg topp ni leen. minute par minute dama lay wax minute bu ne. mu ne ko léegi ci 17e minute bi jëm 18 bi mu daan ne léegi ma taalal leen. Ah, moom ndaw si bi ah, mooy mooy ki ñuy woowee Viviane. clim bi waaw sa doom. Hmm. da nga da nga da nga dem di wéet ak moom koo xam da nga jàpp ne sa doom la. génn nga ña fa nekkoon ñi nga doon parce que bi mu ñëwee dañ dama ñëw pour ñu réunion ñoom ñu ko seq mooy ñi muy wax nijaayam jeeg et cetera si lim na leen. Hmm. ak Viviane ma fa nekkoon ak et cetera ñun xam nañ kan mooy Viviane léegi. Mhm. parce que xaritu avocat boobu ñuy tudd la ñoom ñoo bokk ci complot bi yaa may dégg. Mhm. ñu mu ne ko léegi est-ce que ma taalal leen clim bi wala ma taalal leen ventilo bi mu ne ko noo man soxlawuma clim soxlawuma ventilo xaaral sax ma fay sama téléphone bara ñu ma fee woo. Mhm. waa léegi lu ñu doon def. ah ñoom ñaar kese ci néeg ah, ñu tëj porte. nga dégg bruit waxtaan léegi lan lañ doon de waxtaan. ah waxtaan rek lañ doon ci sa doon ay enregistrement wala ku ko film wala ku ko vidéo léegi wax du ñëpp dem nañ lu fa des. ndaw si bàyyi leen loo xam ne waxtaan biir la woon ñoom kese. loolu dina leer bu ñu demee ba yegg si mbir ma léegi. Mm. xam nga tax man la loolu dina leer. jàppal li ma la wax. yeneen audio yi. bis bu audio yi génne. li li ma la laaj nii ne lu fa xew. Mm. lépp dina leer. ci dama ne la. boo bëggee dégg dëgg bu ngeen bëggee dégg dëgg. waaw sénégalais boo xam si nekkoo di tappale at di ruube xam nga ne dossier bii kàcc neen la ña doon tuumaalaate ñoo ñu commencé tiit avocat ba doon wër naan Sonko da koo violé violé waat ko violé waat ko violé waat ko te ñeent ak ñaari arme avocat ba ko doon wax nga xam ne daa wuuteeg nombre de fois bi aji wax parce que aji la mu wax ci interview le monde ak Jeune Afrique Euh, ak euh, RFI la mu wax ci interview ba wuute na ci nombre de fois bi ñu ko violé ak nombre bi avocat wax mais avocat am ba doon wër ci télé yi heureusement sax télé ba mu demoon ca ca ñoom ni leen da ko violé violé waat ko violé waat ko ba mu nekk ñeenti yoon fan la dem bërki démb taxawaat fa ni mosuma wax ni Sonko violé dama ni dañuy dem procès loolu la wax bërki démb loolu la wax moom doom commencé na tiit xam nga mu tiit audio yi bu génnee mu ngi ci biir. ah bon yaay layta la. Bougane Diouf dama ne la. ba audio yi génn. Bougane dégg naa mu ci biir. non man Bougane xaw ma parce que man Bougane mosuma koo dégg ci procédure bi. duma ci wax koo xam ne mosuma koo dégg loolu. wax dëgg yàlla dégg naa sénégalais yu bëri di ci wax mais man ma ko dara du ma wax waxi euh, Bougane parce que mosuma koo dégg dans la procédure mais. Mm. avocat bi am na ko ne euh, euh, am na ko ne ma lu tax avocat bi commencé changer discours naan. moom mun na ñàkk mun na bañ a ñàkk ah, parce que moom avocat la rek dañ koo défendre loo ndaw si rek te moom waxul ni Sonko def wala deful xam nga loolu wute nag lam daan wax mais c'est normal mu tiit hmm. yëf yi soppeeku na hmm. ay waay yàlla ay ci póotum buur day bàyyi ba ñu weer ba mu weex tal mu ne répp répp ci kawam taw suuf sa jóg lépp taxaat ba mu yàqu mais daam audio waral coow li nii ngeen ngeen nii ngeen ni bàkku mel ni euh, dafa nekk non audio bii lañ moom laa xoolal wuy ma bii moo leeral ni complot la daa maam Mamour Diallo man fa jox la xoolal audio bii génn nii moo leeral nañ ni complot la Mamour Diallo parce que Sonko jiñ na ko 94 milliards mu ñàkk postom de GID ñu remplacer ko Mambooy Diaw remplacer ko fa xool bi dagg mënatu koo muñ te leer na ko ne 94 milliards yi bis bu alternance amee dinañ ko leeral parce que 94 milliards du caaxaan mu ne kon kii naa ko rey tuumaal ko loo xam ne dañ koy tëj ci kaso bi mais malheureusement pour lui ça n'a pas marché loolu mooy dossier bi Mamour Diallo moo nekk au cœur du début à la fin. c'est lui qui est kon Macky Sall yoroon newu ci. non mais sa lu ci nekk yaa ngi ci biir c'est la personne morale lépp lu def moom moo leen koy digal xamal tax bi coow li jógee sëñ Abdou Samad euh, sëñ Chouaib bu dafa wax Sénégal yépp di ko seetaan mu ne sëñ Mountakha nee na sëñ Mountakha Bachir nee na Macky Sall dossier bi teg ko ci suuf parce que moo gën ci yow gën ci réew mi te ko ku xam ci xam ne ci baatin lay wax maa ngi koy maa ngi ci profité di ko ziar. ndaxte bi may mujj Touba dafa ma dalal moom sëñ Mountakha ci résidence Khadimou Rassoul jox ma fa chambre climatisée sama délégation ku nañ jox ko chambre climatisée ñu jox ma salon bu mag nde bernde di ma fa fekk Mbàkke ma dem muy raay sama bopp ñaanal ma maa ngi koy sant bu baax Mbàkke Mbàkke mais beneen bi waaw waaw ma yàlla xam na yaa ngi may dégg déet déet bàyyi noonu yaa euh, moom ku ko xam xam ne ci baatin lay waxe sëñ Abdou Samad Mbàkke moom maa ngi koy gërëm ci teraanga yi mu yónnee ne ko ni Sénégal yëpp sëñ Mountakha nee na na Macky Sall tekki dossier bi ci suuf parce que moo gën ci réew mi. mais mais mais waaw mais moom laa la léegi ba mu ko ba mu ko deful. teg ko ci teg ko suuf xam nga kon mooy yëgoon na ko mu bañ koo teg ci suuf na parce que la mu toog sëñ Mountakha mooy jotaguma ci dossier bi yëguma ko mu ko ah, ah kon bu yegsee ci yow. na nga ko teg ci suuf parce que moo gën ci réew mi ba mu yegsee ci moom mu seetaan dëkk bi tàkk. léegi nag yàlla dimbale nañu parce que daana a tàkkaat parce que bu ñu fi jaayoon doole moom dem jéem a jalgat yi tege nee li nga xam mooy élément du dossier bi mu leer nañ ne ay kàcc nee na nekk ci dossier bi mu def lu ko neex loolu su ko defoon dañuy taxaw xeex mais heureusement ay xeex du ci am parce que lépp leer na ci audio bi que Mamour Diallo moo doon jéem wax dëgg yàlla far yàlla nër ne leen kàcc yi mu leer nañ fi mu toll li ma xam naa mere nañ Adji Sarr parce que xamuñu woon Adji Sarr enregistré enregistré na leen euh, audio bi benn élément rek bu lay woon ni c'est authentique boo dégloo Adji Sarr muy wax ci baat ndànk lay wax et puis Adji bëggul tontu parce que moo leen di enregistré xam nga booy enregistré doo nangoo wax boo seetloo tontu tontu nuyoo bi sax baaxul tontu bu ñàkk fayda la tontu maama di ko secoué Viviane naan ko aji waxal yow tamit di ko c'est-à-dire que ku déglu loolu sax naan dañ koo triqué eh, ay réer may def sax quoi non ça il faut être sérieux quoi. Ah, chaque jour ngay envoyé audio kon lu audio bi di xalaat un wax naan ko xanaa da ngaa rus sën di jaay. waaw moom mooy mooy mooy mooy ndaw soosu macro bi. yaa may dégg donc léegi bi loolu amee ah, euh, mu leer nañ. que moom da doon rassurer ndaw si pour ndaw si bañ a daw parce que Adji Sarr man tu sais est-ce que xam nga man actuellement quelle est man ma position mooy nañ dem procès parce que juge d'instruction bi am na droit certes comme day euh, day day day day enquête à charge et ah, à décharge mun na xool ne dossier bi jarul yóbbu euh, euh, yóbbu au tribunal moom mu mu renoncer au ma à l'ordonnance de renvoi def ordonnance de non-lieu loolu mën na nekk mais man li may ñaan mooy mu dem procès pourquoi léegi mu dem procès c'est intéressant parce que kàcc yi moom leer na léegi mais il faut ñu xam mais Mamour Diallo kan la àndaloon ci complot bi jusqu'à quel niveau kan moo nekk derrière tout ça ba 14 sénégalais dee ci loolu il faut ñu leeral ko parce que fukki nit ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan donc Mamour jàll mun ñu ko bàyyee noonu te aujourd'hui le procureur da ko war a jëli maa ngi gis benn avocat mooy mooy avocat boobu am day dóor maato rek. maître Ousmane Seye ngay wax. en tout cas daal def na interview temps yi ñëpp gis ko euh, ab avocat transhumant daal laay wax foofu laa yem. léegi bi mu ñëwee mu naan les audios n'ont aucune valeur juridique ma ne laay tappale yow audio du ci lañ jàppee woon euh, Clédor Sène yàggu ci lañ jàppee Birame Souleye ci leen jàppee Assane Diouf ci lañ jàppee euh, Kilifa ci lañ jàppee Simon yow ay fan yii ñun mujj a jàpp yëpp presque ay audio kii xarala la leen jàppee mu ne léegi amul benn valeur juridique Mamour Diallo def audio mu leer naa ne ñu la république a jëli Mamour Diallo ne ko ràpp ci parce que moom daa avoué boppam moo ko avoué boppam kenn waxalu ko moo ne man maay cerveau gang bi maay cerveau complot bi kon nag moom la ko war a jëlee ni ko ràpp ci kaso bi. bu mu paree nag moo ci audio bi. maa se rek. mais léegi man daan dama la bëggoon a laaj. tourbillon bi nga xamante ne moo am autour d'une jeune fille. koo xamante ne apparemment elle semble être perdue yow ndax yërëmoo Adji Sarr. dama ko yërëm démb wax naa ko ci émission Walfadjri ma ne leen aji Sarr victime la. Hmm. may ñu ma nag bu ñoom chroniqueur ya ma wax ñu ne ma noo fel sama gémmiñ mais lii nga wax laa wax dama koo gëm. Adji Sarr victime la dañ ko war a yërëm Adji Sarr c'est vrai que li mu def c'est c'est inacceptable parce que mais Adji Sarr boo xoolee nay naïveté bi mu demee ci dossier bii lépp li mu def yëfu xale la def lépp elle a tout ma lépp li ñu ko def loo elle mal fait xale la quoi vingt ans la am elle est trop ñu jël ko ay bot yoo xam ni bëgg nañoo régler seen compte ak un leader bu ñu ragal parce que Sonko nag man naa ko waxati ñu ne ma man sama yoon nekku ci ku may mere benn opposant la ma Sall am bu ko teree nelaw barki dem dama gis benn journaliste mu bind ci presse bi ci 26 quotidiens yi et puis j'en pour dire waa ñun suñu 26 quotidiens yi ñoom euh, audio fii tey ñoom duñ ci wax daal ñoom. ñun daal dañ koy ignorer quoi ñaari ñaar. wax nañ 26 quotidiens ñaar ñoo ci bind. ñu jël ñëpp. mais ñaata information yi génn kenn rek bind si wala kenn du si. Eh, eh, lu tax aussi eh, génn rek ñëpp dossier bii dafa am importance. non non mais bu ci benn da interview sax ñoom day waroon waroon a mer. parce que journaux sénégalais yi kenn mënut a jot ci daam daam daam non may ma rek non non non non Ahmed bul dugg si Ahmed Ahmed yow Ahmed voilà gis nga journaliste kenn du leen la non non journaliste kenn du leen laal bu amul preuve ci xoolal tax mu ci xoolal xoolal journaliste gis nga leen kenn du leen laal non non mais dama lay xoolal dama ne léegi moom mii moo la gën a xam ne Ahmed yow bu may ma rek may ma rek yow ni ma la xamee waaw bu ne la woon Adji Sarr mën nañ la permettre nga interroger ko doo ko gëmee da ngay daw ak Ousmane Sonko sax tamit waaw moom laa lay Ousmane Sonko tey waaw mais mais mais mais au moins moom mi ngi def yenn saa ay conférence de presse mais Adji Sarr dañ ko nëbb depuis son euh, conférence de presse bu mu defoon à part moom Adji Sarr ci boppam actuellement moom bu fekkoonte nit ñi ci moom dañuy dem interroger ko parce que dafa nekk un sujet qui intéresse les Sénégalais kon na tey jii bu dee dañoom audio bu fuité boo xam moom Adji Sarr moo enregistré ñu ni léegi journaux yi kenn du ci wax. non ñaari bu ñu amul preuve lu tax ñu ci jour ba ñu déggee ni Euh, jiñ nañ Ousmane Sonko ban preuve la ñu amoon. jiñ nañ ko la ñu wax. waaw mais mais mais waaw fii tamit nañ ni nañ ni. audio ak euh, Adji am na audio bu génn. dañoo doon werante ci authenticité. am ñoo xam ne gëmuñu audio bi képp ku ci werante ça veut dire que yow tu n'es pas de bonne foi. képp ku nekk de bonne foi xam nga ni l'audio là est authentique. dañu waxante dëgg loolu problème. d'accord léegi man ñu ñu. maintenant li ma la bëgg a xam mooy soxna si li mu wax dama ciy daaneel. Adji Sarr victime la dañ ko war a yërëm man xam nga lu ma gëm mooy askan wi buñ ko baalul àddunaam yàqu na. et loolu buñ buñ ko baalul àddunaam yàqu na c'est fini dootu mun génn fenn parce que xamul tax dootu mun génn fenn. wax na ko ne elle vit tax parce que dañ ko jël en otage ay ay ay ay ay màggati tappalekat ñoom ñoo ko jël en otage. Hmm. yaa ngi may dégg ci boppam. su fekkente ne baalu baaluñu ko askanu Sénégal laa wax de bu fekkee parce que askan wi moom nee naa la xam nga dossier bi li ci neex mooy Adji Sarr nguur ko làq ak ay tappalekatam Ousmane Sonko askan wee ko làq loolooy dëgg parce que Sonko fu ko neex def waaw non du affaire sécurité dama la di àddunaam yàqu na bu ko askan wi baalul askan wi làq Ousmane Sonko Sonko làqaalewul moom àddunaam yàqu na parce que Adji Sarr fu mu dem ci àdduna bi sénégalais yi nekk fépp États-Unis Guinée yaakaar fa la sénégalais gën a bari bu fa demee du génn bu demee États-Unis état bu mu dem état bu mu dem sénégalais yaa nga ne bu demee Espagne moo yées amul benn réew booy dem ci àdduna boo xam ne sénégalais yi nekkuñu fa te Adji Sarr dootu mun génnati ci mbedd yi dootu nekkati à l'aise donc li mën a nekk mooy sénégalais yi baal ko baal ko nag mooy mu wax dëgg gi te dëgg gi wax na ko mu ngi ci audio yi dëgg pour ma dalal xelu sénégalais yi audio bi génnagul audio yi génnagul wax na mu leer nañ ne man Adji Sarr Ousmane Sonko violé wu loolu wax na ko mu leer nañ ci audio yi te ki ma ko wax ni ma déglu naa ko ne ma dambul waxal fu neex ne Adji Sarr wax na loolu Adji Sarr waxal boppam ci audio ne man Adji Sarr Ousmane Sonko violé wu. waaw loolu publié man Adji man ngay waaj yoruma ko man daan buñ ma ma yoroon sama bu ma yoroon ko parce que audio yi effectivement am na ca yu nag hmm. yoo xam ne mën naa taal dëkk bi looloo wax dëgg yàlla day tax ah bon yu yu am na audio yu garaaw yu wax man parce que man ma waaw gënu ko am loolu bu ma la audio boobu audio yi non Adji Sarr lañ ko enregistré du ay yooyu bii moom audio audio Mamour Diallo bi moom dafa leer naan ñi ne tëju am na fa euh, euh, climé nee nañ bu ko kenn taal bu kenn taal lenn moom na fay téléphone am loolu moom ca dix-septième dix-huitième minute ba loolu moom leer na man su may wax lu may wax taal mooy bu ma wax taal mooy euh, mën na am lu créer un malaise général dans le pays maanaam nday xat li mu wax noonu ci bi ñu koy entendre ci juge d'instruction bi li mu wax ne jour procès ba dina fa wax li mu yore bu ko waxee ca procès ba musiba dina am loolu moom wax noonu mu wax ko ca procès ba baaxul man xam naa loolu même si peut bëgg naa procès am pour ñu leeral lu bëri bu dee nanguñ ko leeral beneen bi mooy euh, moom Adji Sarr man ki ma wax ne ma déglu na audio yi te man ma wóoru ko lem ma wax gëm naa ko parce suma wax luy deñ te gëm naa ne àdduna bii dafa gëm dafay jaar di dem parce que man ñi gëm ni dañuy jaar fii dem te ëllëg dañuy taxaw ci kanam yàlla subhanahu wa taala bés penc ñooñu man li ñu may wax dama koy gëm maintenant ñi nga xam ne ñoo jàpp ne am ci wax maanaam loo xam ne mën na taal réew ah, non loolu laa lay wax daf ma moom ci boppam lam ma wax man ne mënu ma ñëw di ko exposer actuellement nañ xaar audio yi maanaam lu mu mel waxuma waxuma nga dugg ci carrément ci maanaam ci ay ci ay révélation ay audio yi taal réew waaw ay audio yoo xam ne ay révélation lay wax ay waa ay kilifa ay affaire grave ay révélation yoo xam ne c'est extraordinaire parce que Adji Sarr a parlé à cœur ouvert dans les audios parce que Baye Niass lu tax MC euh, Niass Baye Niass MC MC Niass li mu def euh, am na ñu koy ŋaañ mais bonul parce que moom demul woon pour leneen lu xool nu muy sauver Adji Sarr moom da doon propose sax mu mu ñëw ci moom mu protéger ko mu génn ko ci lim nekk parce que man ci lay profité wax mbokki Adji Sarr yi waaye dem leen jëli seen doom jëli leen seen doom nag wax dëgg yàlla mi ngi maa ngi bëgg a ëpp nag bu ñu dee bañ la sa doom sax ñu ngi naan ñu ngi parce que audio yi révélation yam cee def di wax ñu ko sàkkoog ñuy ñu doon jéem te te te cóolle ak ñu jéem te am mais yooyu rek wax dëgg yàlla man dama jàpp ni. wax dëgg yàlla mooy lan moom waaw daa am ñu jéem cóolle ñoo xam ne bëggoon nañ kii mayu leen waaye xanaa dégg man kay nga jéem dara cóolle waaw am na ñu doon xamoo luy cóolle maanaam lan daa maanaam jéem a yegg ci moom cóolle ah d'accord waaw mu bañ voilà yooyu yëpp am na ci audio mais am na yu mu accepté waaw am na yu mu accepté te assume na ko maintenant nag liy problème mooy may ma di Adji Sarr yéen wax na. non bu ma dugg maintenant léegi nag. non loolu du ma ca dugg man loolu ma ca dugg. loolu du ma ca dugg mais dama ni eh, am na information yu ma wax yoo xam ne bu dee mi ci audio yi te nee la ki ma ko wax man wóolu naa su fekkee génn na ci presse bi Sénégal gépp jot ci dina créer un malaise national loolu baaxul. Ah, waaw loolu moom lu leer la. Mhm. li ma lay wax ni dara du ko dindi donc xam nga man lu may d'accord nguur jarul lii. nguur jarul ngay comploter et puis surtout complot bu ñàkk fayda nii parce que ñoom mais amuñu dara c'est-à-dire que tout est contre eux yow muy maman ba muy Ndeye Khady Ndiaye muy jëkkër Ndeye Khady muy gynécologue bi ak bi gis ay ñoom lañ tuddee ñun ñun ñëpp ils disent la même chose qu'il n'y a rien yow amoo certificat médical boo wane ne y a quelque chose ñu war a dossier yëpp ne nañ y a rien sabab enquête gendarme ne na y a PV ba génn y a rien. kon y a rien. léegi moo tax ma ne la. nguur jarul loolu. la vérité. man sa samay wax ragalu ku ci ku ci mere. la vérité daal mooy waa comme deux mille vingt quatre mënut a nekk candidat. Mhm. te am na candidat boo xam sénégalais yee ko ngemb. call-call ji bari na waaye ñii call-call yëpp moo leen ëpp doole même moom mii ci nguur gi bu élection yi jaaree yoon waajee ko ëpp doole léegi nag comme dañ koo ragal moo tax ñu koy jéem a éliminer yàlla nag gis nga moom léppam euh, mat na gis nga da yaakaar nit ki mën nga koo éliminer fekk loo koy xam nga am na benn audio bu Maodo Malick bay def ci coow loolu ñu doon jéem a yëkkat ci Guy Marius Sagna muy wax ak waa APR audio boobu moom it fuité déglu ngeen ko moom Maodo Malick Mbaye mu naan leen nit boo koy xeex loo koy gën a xeex muy gën a am doole war nga xoolaat sa bopp nga koy xeex ñu dem fal ko maire te ñun bëggoon nañoo gagné Ziguinchor kon nag man jàpp naa ne nañ xool beneen yoon gis nga loolu mu leen digal nan ko jéem gis nga yoon wi jël nii baaxul waaj mun ñu koo tee nekk candidat 2024 incha allah waa ji yore réew mi jaay doole mënta nekk candidat parce que constitution bi moo ne nul nul man nag prof de lettre la nul la ñu wax ñun xam ne la mooy nul nul mooy kenn nul ne peut waxuñu sax ne peut faire ne parce que exercer et faire c'est pas la même chose man nag may nekk université traduction moo doon sama matière actuellement nii dama amatul temps mais am na une grande entreprise de la place dans le domaine du transport maritime boo xam ne pendant plus de dix ans man maay seen traducteur te ñu woon kenn ku dul man nag traduction ku xam-xam na mu jafe sotti la maanaam jëlee ci tubaab yóbbu ci anglais wala jëlee ci anglais yóbbu ci tubaab man prof de lettre la nul la la constitution bi wax nul ne exercer maanaam kenn nul ne exercer plus de deux mandats consécutifs maanaam kenn mënta am lu ëpp ñaari ay yu tegaloo mais loolu ci sëy sax lislaam da koo bañ maanaam aye fii ayewaat fa ayewaat fa te demoo ci keneen <laughs> waaw loolu sëy sax lislaam da koo tere sàccub ay la voilà léegi nag te sàcc ay dañ koy tere waa dañ koy tere kon waaje euh, fégal na jërëjëf daal <laughs> résumé na wax ji nga wax tëj nga lépp. loolu ay merci beaucoup maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ñi àndoon ak ñun di ñu suivre comme niñ leen ko annoncé woon kontaan ngeen ci seetaan Dame Mbodj comme ah, comme ni mu ko tàmmee defee saa ne. Euh, donc guddi na waxtu wi xoj nañu lool parce que 3 heures la ñu waxoon ne la ñu arrêté il est 4 heures euh, moins 27 minutes euh, balaa nga xam ne nit ñi bañ a tardé xëdd yooyu bu leen bougé parce que ci kanam suuti le journal de l'ONG Al Khayria ñu ànd ceeg Seyda Jamilatu dina def seen seen journal ndax ñoom ñoo ñuy gunge ci bët set surtout ak rubrique bi nga xam ne moom mooy Ramadan. chaque lundi ak alxamis damay dem Touba ci kanam pour def animé benn conférence maa ngi nii du ma nelaw mais c'est compliqué mais c'est merci beaucoup di jaajëfal ONG Alxayria bu baax a baax damay bàyyi gars yi rek ñu tàggatoo benn par benn Babacar Kebe ba ëllëg incha allah ci yeneen ëtt xëtu yéene kaay ngeen jëf ba suba incha allah Aïcha merci beaucoup Babacar di ko jaajëfal bu baax a baax ma jox soxna Aïcha Thiam moom it mu tàggatoo ba ëllëg ci info ramadan mu également di remercier bu baax a baax a baax daa xaw ma phénomène la xaw ma la <laughs> te bu ñu des yoon bi ah. di nga ñëw donc di àddama incha allah ci beneen info ramadan incha allah. Aïcha merci beaucoup Mouhamadou Diallo ma bàyyi la nga tàggatoo gars yow ba kañ. waaw ba saa su ko <laughs> yàlla tuddee rek mais dama lay sant gërëm da ñaari kàddu laa bëgg a tëjee benn bi si Cheikh Oumar di ko xool bu baax di ko seet parce que aussi kuy faral di ñëw si suñu plateau la. donc bu mhm. nekkee say guddi lëndëm dañuy am pensée si moom di ko ñaanal yàlla mu tegli ko natt bi loolu benn wàll beneen wàll mooy Mamour Diallo ñu ngi koy tëjal suñuy bunt. Euh, saay su bëggee mën nañ ko tëjal suñuy bunt ndax liñ ko fiy tudd bari na bëgg nañ aussi ni mhm. na bàyyi yóbbante galgal bi. ubbu lamb waaw parce que lu contexte yu defe naa war nga jëleen wax c'est hmm. important donc euh, ñu ngi koy ubbi suñu buntu yóbbante kalkal ubbul làmb Mamour Diallo merci beaucoup Mouhamadou Diallo ma jox sa Anne moom tamit mu daal di tàggatoo soxna Absa ba beneen yoon ak Ramadan de waa kon ba beneen yoon rek amet mbegte la woon teew ci plateau bi di jaay jaajëfal suñu invité yaakaar naa ni il tey été à la hauteur comme d'habitude macha allah di leen jox rek dig daje beneen yoon ci biir euh, mbegte ko ayca merci beaucoup Dame ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, Seneweb yëpp par ma ñu ngi lay sant di la gërëm ndax bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo tax euh, Seneweb mën a tëddee njaaxaanaay bu baax a baax ci li nga xam ne moom lañ ñuy bàkkee xamee ñu ko mooy faruñu fenn ku ci nekk dinañ la jox kàddu ni mu waree yow bokk nga ci ñi ñu ko yombalal ndax à chaque fois jiixi jaaxa am ci bopp askan wi suñ la wooyee nga ñëw wuy suñu loolu ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm bu baax a baax et groupe bi yëpp ak direction bi ñëpp ñoo ci ànd jokk seen kàddu ci sama yos ngir ñu gërëm la sant la ma bàyyi la nga tàggatoog sénégalais yi di la ñaanal yàlla bàyyi la fi bàyyi la ak sa wér ak sa kàttan ak sa xam-xam ak sa mën-mën ci barke weeru koor bi jërëjëf euh, Ameth Ndoye maa ngi lay sant di la gërëm di wax ma nit ni amoon naa mbégte mu rëy euh, bokk ak yéen waxtaan wi ndaxte nag yéen ay journalistes yu xarañ ngeen euh, wax dëgg yàlla da ngeen may secouer Euh, toujours euh, mais den may jox sama tamit sama occasion pour euh, la possibilité ma doxe sama xalaat ci li nga xam moom mooy actualité bi. Mm. yéen ay journalistes ngeen seen liggéey rek ngeen di def. Mm. li ngeen ma doon bousculer loolu c'est important parce que man boo ma bousculer ci laay gën a nekk à l'aise mm. parce que man bëgguma ñu may tàllal ñu may dérouler tapis rouge ci samay émission man damay bëgg ñu may bousculer may joxe sama xalaat mais ñu may déglu rek. parce que ku ma déglu mu leer comme ni ma koy waxee. maintenant nag euh, liñ fi waxtaanee yaakaar naa ni neex na ñu nu doon seetaan te ñi ngi am mbégte ci ñëw fi tout le temps Seneweb nga xam ni wax dëgg yàlla euh, liggéey bu mucc ayib ngeen di def euh, te ñu ngi leen di ñaanal également kër gi gën a yokk parce que liggéey yokk rek lañ ciy wut pour ngeen di gën a leeral askan wi tëdd njaaxaanaay bi ngeen nekk nii tamit maa ngi leen ciy gën a ñaax. Mhm. di déglu les différentes gis naa sànq Mohamed wax ni ñu ngi ubbil porte yi. Euh, Mamour Diallo loolu baax na parce que ça permet d'équilibrer pour que ku ci nekk ñu déglu la nga joxe sa version mais boo dul dem di waxal sa bopp it day da ngay gën a dugal sa bopp rek. Mhm. donc loolu mu ko ubbil je crois que euh, maa ngi koy encouragé moom Mamour Diallo mu ñëw euh, def loolu en attendant procureur di ko woo parce que li xew nii moom mënta mënta ñàkk procureur woo ko parce que lu mhm. garaaw la def. donc euh, ma man daal maa ngi am mbégte bu baax a baax a baax euh, di leen euh, ziaraat ci koor gi di ñaan lépp liñ ci jàmm rek yàlla nañu ko yàlla nangul. Mhm. donc maa ngi nuyu également seen vraiment internet yëpp di ñaan ñëpp Sénégal jàmm rek am fii surtout que li ñu doon tiit am naa yaakaar ci ni dootul am Sénégal ndaxte léegi dil bi kalaate na. Mhm. lépp leer na li nit ñi doon tiit yaakaar naa ne dootul am. léegi nag bu ko defee ñu jàll ci leneen ñu jugé wala ñu dem non-lieu bu ñu ci def rek ñu jàll ci leneen waaye daal alhamdulilah jàmm dina am Sénégal. merci merci beaucoup ma jox ma ay dara euh, mu daal di tàggatoo moom it euh, ba ëllëg incha allah ak beneen gan gu am solo. jërëjëf Mouhamed doon am mbégte gu mag mag rek di bokk ci jotaay bu am solo bii nii remercier bu baax a baax ki nga xam te moom moo nekkoon tey suñu gan di dàmbu di wax mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu jërëjëf merci beaucoup ma jaajëfal Mouhamadou Diallo mii moo nekkoon ci coordination bi Omzito ak Thierno Ba ñoo nekkoon ci réalisation bi doomu baayu Thierno Ba Aliou Ba moo nekkoon ci cadrage bi feggoo woon ak Omar Sakho di jaajëfal aussi ki nga xam ne moo jaar ci sañse bi tey di Jaabira Couture euh, numéro téléphone am xam naa di ngeen ko gis euh, di ko jaajëfal bu baax a baax euh, yor na li nga xam ne moom mooy showroom fii ci marché Fass également fële ca marché HLM saa leen fa demee rek def seen commande mën nañ leen ko livrer fépp fu ngeen mënti ne également li nga xam ne moom mooy mode ramadan ak korité yëpp disponible na ci euh, showroom yi muy góor muy jigéen euh, li tubaab bi di woowee unisex euh, nee naa nag man baat boobu neexuma parce que day mel ni luy def union ci sexe yi donc góor ak jigéen yëpp bu ñu fa demee dinañ am seen wàccuwaay ci li nga xamante ni moom mooy sañse yu rafet yi ba demee incha allah ci beneen mbégte koor yaakaar naa man damay bër ki nga xam ne moom mooy soxna Aïda Mbène moom ngeen di àndal suba ak ginnaaw suba incha allah ak équipe bi yëpp di leen jaajëfal jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan 10 minutes dal xayriya ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen dinañ daal di dem fee nga xam ne moom moo di Kédougou daal di xooli jumaa ju mag ja nga xam ne ONG yaa taxawal na ko fa waaye dinañ déglu itam ONG alxayriya ci ay leeral ci ONG bi naka lay doxee nees tuuti ñu daal dellusiwaat faram-fàcce xibaar yi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu dellu ci seen 10 minutes daal ONG Al di ONG boo xam ne dafa yëngatu ci wàllu gasum teen ak dimbale doomu aadama yi ci wàllu sociate rawatina jumaa yu mag yi rawatina orphelinat yi ba tax na tamit dañuy daal di déglu ay leeral ci liggéeyu ONG Al Xayriya. créé nañ ko mu doon association de la coopération islamique bi mu demee ba 2015 ci la nekk ONG Al te li moo comme ni ma ko waxee bañ koy commencé benn jàkka lañ doon tabax benn jàkka lañ doon tabax mooy jàkk ji nekk cité Djily Mbaye léegi mu dem ba nekk ci deux cent quarante cinq juma am nañ juróomi juróomi centre yoo xam ne yu pare la yoo xam ni ay orphelin yi ngi fa benn bi mi ngi dakaar benn bi mi ngi jëm ñaajo benn bi mi ngi Pout benn bi mi ngi Ngéwul benn bi mi ngi Louga am na benn bu ñuy waaj ubbi bees bu nekk euh, jélléerlu ngéwul sax ñaar ñoo fa nekk te li nga xam si am nañ ko ci ay orphelin tamit orphelin yu ñu interné amagum nañ parce que trois cent trois cent trois cent vingt cinq orphelin yoo xam ni euh, ñu ngi leen yore jël leen en charge yëpp ñuy jàng français di jàng alquran yore seen dund lépp daal alxayriya euh, ONG la boo xam ni lépp luy sociale ñu ngi ciy liggéey ñu ngi liggéey ci Euh, action sociale tey jii boo demee ministère de la santé action sociale euh, ñi ngi ñi ngi lënkaloo ak ñoom nga xam ne si tey ci région yi région yi Sénégal yëpp quatorze régions yi régions yi ak quelques départements seen représentant action sociale mooy représentant ONG Al Khayriya ci convention boo xam ne dañu ko def ak ñoom ONG Al Khayriya mi ngi dem ci teen yi tabax nañ léegi tabax jege na ay six cent teen yoo xam ni tabax nañ ko ci Sénégal ak sous région bi ONG Al Khayriya ba tey dina defar ay boulangerie parce que fi ñu toll nii am nañ lu mat juróom-ñett wala juróom-ñeenti boulangerie yoo xam ni ak ONG Al yi ñoo ko defar ba pare jox ko ay jullit ñoo xam ni ñu bëgg a liggéey lañ jox leen ko xam si dafa am rek benn charge bu ñu leen teg leen fin de mois bu ne na indi li ñu occupé leen ko ba mat ONG Al Khayriya mi ngi gunge tamit étudiants yu bari yoo xam ni ñu ci bitim réew te Dubai Émirats arabes bari na étudiants yoo xam ni ONG Al Khayriya ñoo leen wutal bourse ña ngay jàng foofu tey jii euh, euh, dakaar am nañ fi franco arabe boo xam ni euh, mi ngi nekk Castor kooku daaw jéeg bi ñu bi ñu bi ñu année bi ñu ubbee deuxième année bi ci dix meilleures écoles yi nekk Dakar ci lañ leen boole ONG Al Khayriya yemul foofu tamit mi ngi nekk di jàngale li ñuy tuddee maxul ummiya mooy mooy jàngal mag ñi defar ay ay école yoo xam ni ay mag ñoo fay jànge tey jii fii ci Mamel rek li fi jànge jege nañ 600 jigéen yoo xam ni ay responsable lañ ay ñu bari fenn fenn ñu jóge jàng si am nañ ko ci euh, Tamba am na fële ca Kédougou am na tamit ca Louga am na ca Ngéwul te am na tamit ca Ceneba te ñu ngi koy préparé tamit ci yeneen place yoo xam ni yu bare bare am na ay poste de santé yoo xam ni ñu ngi ko tabax équipé ko lëkkaloo ji ak def convention ak waa ministère de la santé nga xam ne si su boobaa euh, ñoom ñoo ñuy jox euh, ñoo ñuy jox euh, médecin yi yi fay liggéeyee ñun nag ñun ñooy resti des bu ko defee faj maag lépp rek ñu def ko ca nam gën a yombe di ko def lépp rek wut ci ngërëmal yàlla moo tax transparent boobu ñuy liggéey am ñu la gis nag bu ñu wootee dara dañoo bëgg def lii dañoo bëgg tabax jàkk rek am na ñoo xam ne am nañ kóolute ni ñii kat bu ma leen ko joxee jàkka ja na ci zakat bi noonu la biñ ko commencé am ñoo xam ni ñëw nañ ni kat wóor na ma ne alxayr yéen ni ñu liggéey mu leer ma sama asaka bii kat su ma leen ko joxee dana àgg fa mu war a àgg loolu moo waral bi ñu lancé lu mel nii ci diir bu gàtt affaire bi xaalis bi dem ba toll nii dem ba trent 32 million jullit dëgg ak évolution ak lu baax jullit moo ko moom fu ko fekk na ko jël. léegi bi ñu demee ba si nag. ñu joxe ci affaire wax bari na ci lañ jënd fi terrain bii nga am si président Mamadou Dia moo fi dëkkoon ñu jël ko raser ko commencé liggéey tabax bi mu dem ba nga xam si li ci dugg ci liggéey bi dëgg deux milliards yi teg na. li nga xam si moom la lu loi wax dem nañ ci notaire yi constitué nañ wax bi wax nañ wax bénéficiaire ñan la ñii ñoo koy jël ñii ñoo koy jël ñii ñoo ko am par bu boobaa su fin du mois bénéficiaire yi ñu bindal chèque chaque fin du mois ñu yóbbu ko fañ ko yóbbu. muy wax loo xam ni l'islam moo ko indi pour xeex ndóol. jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne leeral na ko demee ko ci ONG Al noona noonu itam la daal di demee fële ci Kédougou daal di xooli jumaa ji nga xam ne ONG Al taxawal nañ ko fa euh, ci ki nga xam ne itam moom moo yore action sociale ba taxaw na ko mu di euh, Mandiaye Diaw ñu daal di déglu ay kàddu. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin euh, tey di di tombeek àjjuma 4 mars 2022 euh, dañu al ONG Al Khayriya dafa mayaatoon waa Kédougou benn mosquée mosquée bi nag moom lañ doon inauguré bis na ki tey ah bii nag mooy doon quatrième mosquée boo xam ne ONG Al may na ko population Kédougou may na ko musulman wu Kédougou waaw ñu kontaan si torop muy lu rëy it ci umma islamique bi wàcce nañ fa ay kaamil ñaanal ONG bi waaye ñaanal di soxna si nga xam ni moom moo ko jiite rey nañ fay nag nit ña fa ñëw ñëpp daal di si xewul ñu julli fa ajjuma population daanaka population Kédougou yëpp teew fa euh, mbégte bi fu foo ko natt rek ëpp na ko waaye nag koo xam ni da ngay liggéeyal yàlla moom kenn du la sant kenn du la gërëm dañ lay ñaanal dañ leen di ñaanal yàlla moo taxoon man à ma qualité de chef de service départemental de l'action sociale mais it toogaloon fa sa bis ba préfet du département de Kédougou maa ngi santaat encore une fois ONG Al si jëf yi nga xam ne si def na ko Kédougou def ko rek si loo xam ne si sàbbi yu la di si wut rek lu dul cantu yàlla ak nit ñi euh, jaamoo seen borom boobu kon nag ah si turu population Kédougou si turu. Euh, autorité administrative bu département bi pour le dañu doon sant rek di gërëm. jërëjëf Mandiaye jaw ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko ci jumaa ji nga xam ne ONG Al Khayria taxawal nañ ko fee ca Kédougou ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci 10 minutes d'Al Khayria di leen ñaanal gaalo mucc guy daw jigéen yu xéewal bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.